yu ci mel noonu yëpp ak la coalition yan ñoo ci les bonnes têtes yu ñu war a jël à part même enquête de moralité yooyu yëpp c'est à revoir. Hum. Euh, ah ba ils étaient en prison aussi. ñi <laughs> dañoo génn rek dem campagne. en prison ci ngay dàq liggéey ah. ci ngay gën a am jot. non bala muy wax ci loolu Issa dama dama gis euh, Ayoba Faye mii taxaw ak mm. euh, Mamadou Thiam. ma jàpp ne lii signe de rupture la. Mm. te damay ñaan yàlla yàlla na wéy. parce que Issa quand même 12 ans yooyu ñu génn. Mm. Walfadjri nga nekk ma nekk Walfadjri man fàttaliku ma fu ma fi gisee Walfadjri taxaw palais de la république comme ça di def directam hmm. euh, mu ko gisé tay damay japp ne signe de rupture la et damay ñaan yalla yalla na continuer damay ñaan yalla également toutes les autres euh, chaînes de télévision wala radio du Sénégal que ku ci am accréditation wara dem palais def sa liguer ñu man la may nga def ko dans ces conditions là hmm. ku nek fa nga bëgg taxaw nga taxaw fa def sa ay direct ni nga ko traiter les médias publics avec les médias privés sur un même pied L'homme vraiment je tenais à le à le signaler. c'est un bon signe. oui pour moi, c'est un bon signe voilà. c'est un bon signe de rupture Il na yàlla na continuer. alors euh, yaa ngi wax sax gis nga composition gouvernement au-delà de parce que nous wax on peut gagner avec ses amis mais on gouverne avec des compétences Ablaye Wade mo wax ne am na tu gagnes avec eux mais tu gouvernes pas avec eux mhm. euh, tay bu fekkee né da ngay politique amna ño xamné da ngay dañuy ñëw and ak yow parce que dañu am mbolo. am ño xam dañuy ñëw and ak yow parce que dañu mëna wax Amna ño xamné amna ño xamné amna ño xamné ñoñu am ñëpp kenn du ñëw nga ne ko do bok parce que yow li ngay wut moy mbolo mu la au pouvoir mhm. mais bo démé bu ag ci pouvoir da ngay xol yan doomu Sénégal ñoo ëpp xam-xam ñoo ëpp talent ñoo gën a euh, sell suñ ko mën a waxee noonu. pour bokk ci li nga xam ne fa nga bëgg a dem. léegi gouvernement boobu boo ko dee wut am na ñoo bokkal parti ñoo xam ne xam nga leen pratique nga leen xam nga ne jàng nañ mën nañu waaye yow mi nga xam ne yaa na ci parti bi di nga leen xam-xam goo xam ne da nga naan Issa Tine mii de lim may jege jege su ma ko dénkee am lu ma naqari. Issa Tine moomu da nga koy bañ a dénk. pour protéger ko mais également protéger Réumi. parce que nit c'est pas parce que daf le jege. que beaucoup ko dénkee dina def li nga bëgg. bien sûr benen bi mooy. sooy des coalition boo xam ne moom moo bon au pouvoir man dama yar ne lolo, loolu warul nekk benn prétexte pour Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye xam nga lutax mhm. euh, ñom première coalition moy le peuple le peuple sénégalais ku bokkoon nag ku bokkul je ne pense pas que ni coalition bi ñu àndal je pense pas que ni ñenn ñi bu ñu bokkul woon dina changer dara ci li nga xam ne moom la décision wu euh, euh, population wu Sénégal jëloon mooy c'est en terminer avec un système teg beneen système. Mm-hmm. man dama naan sax li leen doon gën a yombal pour man mooy ñu delluwaat ci liñ ñu tudde woon seen coalition originale muy yeewe askan wi. Mm-hmm. bi nga xam ne moom lañ demal local moom lañ demal législative xool en, en dehors de la coalition Diomaye mais la coalition Yewwi Askan lui avec le parti Pastef quels sont les meilleurs sénégalais yi pour me Gëna yaatal mais pour pour ak yeneen eh, eh, a yoo xam ngi ci lañu mais exactement il y a des candidats yu génn ci Yewwi tay man buma leen gisoon ci gouvernement dama c'est une bonne chose mais loolu buñ koy wax yaatal également waxuñu ko parce que da nga bëgg a yaatal. da nga yaatal parce que da nga bëgg am les meilleurs au meilleur poste et ça c'est important benen bi nga xamné ne la laa dégg ñu bari naan euh, la rupture de forum de ce côté là mais les def parce que rupture ne veut pas dire faire du n'importe quoi Sénégal Nico Senghor gouverné Abdou Diouf gouverné ko Abdoulaye Wade gouverné ko Macky Sall gouverné ko faut am lu ñu équilibre mm-hmm. yoo xam à chaque fois que nous avons un gouvernement dieu a respecté ces équilibre y a une réalité au Sénégal la réalité au France du réalité aux États-Unis moi booy un gouvernement da ngay par exemple chaque région du Sénégal qui mm-hmm. se ci équipe bi ngay teg da ngay fexe euh, les communautés les communautés religieuses yu demee noonu gis boppam ci gouvernement bi ngay teg yooyu ay réalité au Sénégal la te man ma jàpp ne du lu du lu réinventer la chose. non non non gis naa ñu gis ñu ci wax de rupture la non non non man pour man ñi doon def dañoo xam état xam Sénégal xam ay réalité moo tax ñu ko doon def te biñ ñu koy def ba léegi loolu participer na ci di équilibrer li nga xam ne mooy la société te pour man du lu bon xawma ma nag qu'est-ce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko euh, vont faire euh, à ce niveau-là mais jàpp naa ne du du lu bon. leneen li wax nañ ko bi ñuy commencé mooy les enquêtes de de moralité. Euh, parce que enquête de moralité il faut nga xool par exemple que di Moustapha Diop mii ma dégg ma bëgg a def ministre xool naa ko nee naa ko présenté ma CV muy indil may CV wam ma gis ne am na diplôme sàngam ak sàngam ma gis ne jaar na place sàngam ak sàngam mais loolu doyul il faut nga xool ba xam est-ce que Moussa Moustapha mii mosuñu ko dénk fenn kees mu luubal ko est-ce que Moussa Moustapha mii mosuñu ko dénk fenn mu nekk fa di def lu lu luñ ko santul wala yu demee noonu. est-ce que même les diplômes sont fiables. Eh, est-ce que les diplômes sont fiables très bien yooyu yëpp yu jar a xool la moo tax ma ne te te beneen bi mooy boo gisee euh, j'ai l'impression que Ousmane Sonko Ayoba Faye moo ko wax sànq ak euh, Bassirou Diomaye Faye ils n'ont pas envie de faire un gouvernement ba après quelques deux semaines trois semaines voire un mois après ñu ñëwaat ci ne non non non dañu juumoon sur telle ou telle autre personne loolu li koy def mooy bañ a jël ce temps boo fàttali ko euh, yàlla na ko yàlla yërëm fait, na fan ñu génn. Euh, am benn ministre bu ñu le ministre de l'éducation nationale. Mm. mais le ministre de l'éducation nationale bi gën a rek. à l'éducation nationale parce que dañ ko fal matul sax semaine xaw ma. mu ñëwaat ne moom vraiment ce ministère là mënu ko gérer honnêtement ñu ñu libéré ko mu dem pour éviter ça il faut prendre le temps de de choisir les meilleurs pour teg les meilleurs postes mais ce souci ce souci d'équilibre là pour moi le lu sera il sóoraale la. yaa wax sax ci équilibre parce que déjà vous euh, faites ne dañu war a un gouvernement faaw ñu jéem a xool mhm. euh, mbir yooyu day mais nous bari des fois gouvernement de combat euh, gouvernement politique par mhm. rapport à ce ñu toll nga le président Bassirou Diomaye fait daf koy rappeler que ni fàttewuma fi mhm. est-ce que faut ñu jógee tax du ba comme li ñu baree bari doon wax wala ñu ko daan gis ci réew mi gouvernement boo xam ne naa an nga dindi ñu bëri sa jàpp nañ ne loolu moo war a am. Mhm. alors que rien n'interdit tey gouvernement bii def fi cinq ans. mais bien sûr wala même Ousmane Sonko def fi cinq ans est-ce que loolu aussi. bien bien sûr bien sûr un gouvernement qui va durer. mais ce euh, serait euh, man man euh, jàpp naa ne su fekkee ne li ñu dig Sénégalais yi ña nga ca. Hmm. ce serait une bonne chose Ousmane Sonko nekk ci bopp gouvernement pendant cinq ans. man loolu laa jàpp su fekkee ne la ñu dig ña nga ca beneen bi mooy. bul fàtte ne euh, Pastef disons Bassirou Diomaye fay ak ñi mu àndal dem pouvoir soo dee xool assemblée nationale bi ñu nekk ñoom yoruñu fa la majorité. Mm-hmm. cela veut dire quoi que ni tey Ousmane Sonko su demee assemblée pour présenter euh, pour faire sa déclaration de politique générale. Mm -hmm. euh, souvent député dañ koy voté. pour xool ba xam adhéré na ci wala déet. Mm-hmm. amul garantie ëllëg mën nañ ko tegal motion de censure ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na ñi jàng droit ñoo ma ci gën a mën a exprimer wu mais li ma bëgg wax foofu rek mooy fii ak mois de septembre parce que ñu bari nee nañ c'est le délai bul fàttali ne mën nañ dissoudre l'Assemblée nationale mhm. pour dem wuti une majorité bu leen di permettre ñu gouverner mhm. ce que veut dire quoi que ni ce gouvernement là mën nga ko teg dem aux législatives au mois de septembre yàlla nañ gagné parce que jàppar buñ gagner moy gën moy indi stabilité ci réew mi. Mhm. mais suñu gagner danañ soxlawaat wat xeyna réajuster le gouvernement. Mhm. am Issa Tine mo xam defo nañ ko ministre mais ñu né c'est préférable mu dem à l'assemblée yu mel non yoy yu jara yu jara sóoraale ah la. non même ñu nekk assemblée ñoo xam ne mën nañ fa. mën nañ mën nañ fa toog parce que buñu ñu wé comme liste bi dañoo jaxaso won amna na ñoo xam ne bu ñu seen suppléants yi nekk ñu biir passé mais mais yoy d'autres suppléants ñoy kenen moy ñëw loolu lool amon amoon na quand on a mis sur la table le cas biram Souleye ak euh, Alioune euh, Koma Bey

Ousmane Sonko mi nga xamné ne ak Bassirou Diomaye Faye gouvernement lool moy seen lool souci au delà du fait de choisir des personnes daf ci daf que je veux bi le Pastef mhm. da ngay gis ño xamné dañu dëkk ci ay zone nek de forte personnalité de Pastef nga xamné man nga leen xaar ñu ci gouvernement bi mais zone yi ñu dëkk ñu réussir gagné ko mhm nga gis à côté des gens yoo xam ne peut-être ils ont moins de de visibilité dans les médias mais gox ya ñu dëkk ci Sénégal ña ngay fexe di ko gagné. léegi yow nga premier ministre mu xam en septembre peut-être man nga demat élection législative mais da ngay am tendance su renforcer ñi nga xamné ne ñoo la mëna a ñoo ñoo doon gagné pour que nga mëna am une majorité yoy yépp c'est des réalités politiques yo xamné euh, ñi wax naan eh, il faut des ruptures nangam ak ndàngam c'est parce que nekkuñu ci place Ousmane Sonko buñ fa nekkoon dinañ xamné il y a beaucoup beaucoup de choses qui entrent en compte dans la formation d'un gouvernement et même dañoo yaatu ginnaaw euh, bërki dem rek amna na ku ma doon waxtaanal di ko tooj ma ko Pastef fa yaatu ginnaw parce que bo xolé il y a Pastef y a la coalition euh, Diomaye président ak ñi nga xam ne ñoo fa nekk on euh, me disait même que euh, mon cap bi rek nga xam ne ci la cadre yi nekk 1400 ngi ci la diaspora war a ñëw parce que faw ñu cëral leen ñoom bokk nañ ci ñi njëkk a signalé quand même déclic bi mhm. ba nga xam ne lii am nii gis nañ que ni ñoom ñoo njëkkee influence bi déjà di jéem influence ci sénégalais yi di bind di wax mhm. ñooñu ñëpp bu ñu leen waree lay c'est c'est des techniciens mais lolo ci nara metti c'est-à-dire que <laughs> Pastef balaa un parti bo xamné su amee parti Sénégal bu amel dara la diaspora sénégalaise mooy PASTEF. bien parce que je crois que contribution bi diaspora def pour que PASTEF dem au pouvoir gisuma benn parti bu ñu ko defal te nga wax sànq lu am solo mooy euh, cette diaspora là c'est pas euh, ce qu'on pourrait appeler li sama mbokku njàmbur njàmbur di wax ay moodu moodu. ay moodu moodu c' est à dire que des gens yoo xam ne dañuy dem France wala Italie wala feneen di jaay ay saag ak ay dàll ak ay ceinture c' des gens des cadres formés à bonne école qui travaillent peut-être dans le privé en France euh, en Italie aux États-Unis Canada ailleurs ces gens-là beaucoup dans le parti PASTEF beaucoup de cadres ils le programme dont tu parles ils sont 1400 mais ils sont déformés au gouvernement mais choisir parmi ces 1400 là une ou deux personnes pour mu beaucoup dans le gouvernement c'est déjà tout un problème. day jafe man ñi ma fa xam naa ne ñoo xam ne ils sont ministrables. ah mais bien sûr yàlla beaucoup yàlla difficile. yàlla beaucoup y a quelqu'un ba doon waxal barki dem sax mais bi ma gisee man en tout cas ci par rapport ak li muy liggéey ak li nga xam ne moom la méngool ci wàllum koppar pour pour pour pour genre yooyu noonu di ñëw fii Sénégal sax xëy na dina dina jafe. nga war a ñëw jël un poste boo xam ne li nga ci am du bari noonu. am xam ne sax euh, xëy na euh, bëgg guñ bëgg Sénégal. mais bañ a nekk ministre moo la nga am ils sont au Sénégal peut-être beaucoup de cadre mais c'est des politiques parce que euh, le poste de ministre Issa il est éminemment politique. bien sûr éminemment politique souvent da ngay dégg ñu waaw dañ teg ay technocrate ak nangam ak nangam mais poste ministre politique la. les techniciens ñooy nekk di ah, doxal. ministère technicien baax na ci. Eh, baax na ci sax ñooy doxal ministère yi ñoom ENA lañ jaar ñooñu man je que la la meilleure formule mooy def euh, peut-être du temps de Abdou Diouf. Hmm. Khalifa Sall moo ko doon rappelé keroog Abdou Diouf mi gouverner Sénégal moom ak Senghor dafa am des postes de ministre yoo xam ne politicien du ko occupé par exemple ministre des finances duñ ko duñ ko jox kuy politique ñoom noonu lañ daan defee ministre des finances donc ko jox kuy politique foofu quand même nous séddee ko euh, un grand technicien oui un grand technicien à la matière euh, et d'ailleurs l'ol moo lay moo lay permettre d'ailleurs su fekkee beaucoup de sa parti c'est technicien règle s'il y a problème que c'est ak moom euh, dañ may enfin dañ raconté ci livre bu ma liir yàggul dara ñu ne Abdou bimou bi mu bi mu bi mu premier ou deuxième gouvernement il y avait un ministre de l'économie et des finances su ma euh, c'est un Kébé je ne sais plus peut-être c'est à vérifier c'est un ministre de l'économie et des finances mais Kok, c'est un technicien à la matière xam nga pas lan tu a mu démissionné quelques semaines après mu am des douaniers qui sont mêlés à un scandale ci Dakar des douaniers comme la douane euh, euh, démembrement démembrement au ministère de de l'économie et des finances le ministre a démissionné

du man maa wax. mais même même les jeunes de de de Pastef soy déglu sen sen waxtaan yeeg seen publication ak yoy dañ naan le wéy ce serait bien que Abdourahmane Diouf bokk ci gouvernement bi. ñi naan ni maîtriser projet bi dafa melni ni. moom eh, eh, ñenn ñi naan moom sax mo leen gën maîtriser projet bi. <laughs> et pourtant il n'est pas le seul. Mm-hmm. tey jii soo delloo ci la yewé askan yu original yang koy wax sànq ne ñi nga xam ne ñoo nekkoon candidat. mais tay jëlal Déthié Fall. technicien xam limuy muy liggéey formé à bonne école bokkoon yewé askan wi depuis le début il n'est pas dans la coalition Diomaye parce qu'il était candidat mais sa coalition naturelle c'est le Yeu Askanu avec le PASTEF et le PUR Comme il y Aliou Mamadou Dia ak ñoom Malick il rester pour l'IGE. exactement Aliou Mamadou par exemple tu as bien fait su fait bëgg rester mais il y a tu as un gouvernement de 150 membres Imaginez maintenant, Ousmane Sonko qui se dit, moi je veux un gouvernement, comme l'a dit Ayoba, de 20 à 25 ministres, maximum 30, mm. sur une population de à Khamenei, ni nga xam rek ñu nekk ñu nekk nii sa kanam ëpp nañ cent cinquante c'est pas facile du tout et la justice aussi le département de la justice un poste boo xam ne nouveau régime bi xam naa ne dinañ ci bàyyi xel bu baax baax parce mhm. que am na lu leen war reddition des comptes yi ñuy wax ak yooyu nga xam ne c'est pas le ministre qui donne des ordres mhm. mais aussi buñ fa tegul keneen rupture bi ñuy prôné mën na bañ a demee noonu na ci ministère bokk na ci ministère yi gën a xaare Diomaye ak premier ministre parce que fi ñu jaar la mhm. ñoom ci seen bopp ils ont été victimes de ça dama ci waxtaan ak koo xam ne Issa bëriki démb euh, laa ci waxtaan ak moom moom il a fait toute sa carrière dans la famille judiciaire mm-hmm. mu ne ma suñ bëggee ministère de la justice mu dox mm-hmm. nañu fexe ba <clears throat> bu ñu fa def avocat bu ñu fa def jàngalekat poste pour poste daal bu ñu fa def bu ñu fa def mm-hmm. parce que ñam nañ avocat ak maître Aïssata Tall Sall demuñu gis nga lim jur ñam nañ jàngalekat ak Ismaïla Madior Fall c'est le pire mom mom mom moom euh, vraiment c'est un accident de l'histoire quoi ismaël Madior Fall ministre de la justice et pourtant bari na ñu nekk dans la famille judiciaire mon ismaël Madior Fall jangal na len donc il faut quelqu'un boire xamné dama japp il connaît la magistrature d'abord et quelqu'un comme euh, je sais pas franchement mais le juge Souleymane Teliko Souleymane Teliko mais je le verrais bien mu nekk ministre de la justice parce que amna vertu bi amna probité bi ba paré xamna la famille judiciaire benen bi moy Diomaye fay wax na ko bërki démb ne il faut des assises ou quelque chose comme ça euh, pour réfléchir euh, sur euh, nu ñu koy sax la justice mm-hmm. mais dañuy fàtte ne yàggul dara il y a quelques années ci ginnaaw amoon na des assises des assises de la justice yoo xam ne fii la amee woon ci ci ci méridien président ba gars yi waxtaan fa génn fa tënk fa lu leer et je crois même les travaux le juste Télico moom moo ko jiite woon mm-hmm. donc yooyu yëpp ça nous montre que ce ministère là intéresse am na beneen le ministère du pétrole ki war a yore pétrole bi ah, commerce bi nga xam ne njëg gi moom bokk na ci li gën a kii voilà mi ngi noonu Ousmane Sonko ak ak euh, Omar Samba euh, le premier. président de la République du Sénégal, au nom du gouvernement et à mon nom propre, nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à Suite toute la nation. à Dieu ce jour à Paris de l'ancien Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah John. Le Premier ministre John, natif euh, de Gossas, fut un haut cadre de la BCAO. Un homme d'État brillant et remarquable qui a servi le Sénégal avec engagement, générosité et efficacité. Nous nous inclinons devant sa mémoire et prions le Tout-Puissant pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. avril 2004, jour de sa prestation de serment, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar président de la République du Sénégal, m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre. Le chef de l'État m'a chargé de lui proposer une équipe gouvernementale conforme à notre projet pour le Sénégal. Le gouvernement ainsi mis en place ce 5 avril 2024 est un gouvernement de rupture et d'appropriation des aspirations et attentes légitimes des populations. C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers l'élection au premier tour avec 54,28% des suffrages de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Ce gouvernement donc compte 25 ministres et 5 secrétaires d'État. C'est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministère. C'est un gouvernement de proximité, un gouvernement d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalaises et des Sénégalais. Sur la base des orientations du président de la République, qui définit la politique de la nation, le gouvernement de résultats dont j'ai la responsabilité de la direction va agir autour des priorités majeures suivantes. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de, notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Je donne à, présent la parole au ministre, secrétaire général de la présidence de la République, pour donner lecture de la composition du gouvernement. Le président de la République, par ailleurs, réunira le Conseil des ministres prochainement, dès après l'installation du gouvernement. Je vous remercie.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 Général Biram Diop, ministre des Forces armées, Monsieur Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Général Jean-Baptiste Tin, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Biram Souley Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur Abdourahman Saar, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, M. Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Daoud Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, M. Amadou Mustafa Njek Saré, ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. M. Cheikh Tiziane Djei, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. M. Alioun Sal, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. M. Elage Abdourahman Djouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Serine gay Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Madame Maïmouna jay. ministre de la Famille et des Solidarités. Monsieur Yankoba Djemé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Monsieur Moustapha Mambagirassi, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Ibrahim Si, ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Olivier Boukal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Madame Hadi Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, M. Alioun John, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, M. Muntaga Diao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Article 2. Sont nommés secrétaires d'État M. Amadou Sherif Djouf, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. M. Ibrahim Tcham, secrétaire d'État au développement des petites et moyennes industries. Monsieur Mohamed Talandao, secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, M. Alpha Ba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, M. Bakarissar, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Jahar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. Décret numéro 2024-941 portant nomination du ministre secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre. Décret, article 1er, M. Ahmadou Al-Amimou Mohamed Lo est nommé ministre, secrétaire général du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Djahar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. mbokk ñu ngi leen di nuyu di baamu li ñu wax léegi ci kàllama nasaraan wax ko ci wolof ñuy doore wax ji ci jaale Sénégal yépp jaale suñuy bopp waaye jaale surtout njaboot ak mbokki ki fi doonoon élimaanu jëwriñi di Mohamed Boun Abdallah Dionne mi nga xam ne borom bi moom na ko tey ñu koy jaale ay mbokkam di ñaan yàlla ci weer wu tedd wi ak fan yi ñu toll mu tombeek fukki fanu yu mujj ci weeru koor yàlla na ko yàlla xaare àjjana yërëm ko te jéggal ko di wax ni it son excellence le président la république joxe na ay ndigal pour ñu jël matuwaay ñu war a jël yépp ba nguur gi euh, taxawu njabootam ba liñ ci war a def yépp ñu def ko it bu loolu weesoo ñuy fàttali ni njiitum réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daf ñoo tàbboon ñaari fan ci weeru awril def ñu elimaanu jëwriñ yi daal ñuy sas nag ne nañ ko jéggal jébbal ay proposition yoo xam ne dafa war loolu moo waral suñu taxawaayu tey bii ndax liggéey boobu def nañ ko diñ ko war a defee jébbal ko président de la république muy gouvernement bi nga xam ne mooy bu yees bu Sénégal tey ci fukki fan ci weeru avril muy gouvernement boo xam ne nag namm nañ ci mu doon gouvernement bu bu bees ak bu yeesal gouvernement boo xam ne li tax sénégalais yi woteel président Bassirou Diomaye Faye mooy jàpp nañ ni bëgg nañ li fi newoon ñu jëlee ko fi bëgg nañu li tubaab di wax rupture am gouvernement bobu loolu mooy taxawaayam muy gouvernement boo xam ne it la ñu seq ak sénégalais yi wax kook ñoom te tënk ko ci baatu projet muy mbébét di ñu am ñun ci Sénégal te tax sénégalais yi wóolu président joomaay jaaxar fay ba woteel ko ci téeméer bu nekk lu ëpp juróom fukk ak ñeent ak lu tegal projet boobu nga xam ne moom lañu yaakaar ni dina andi coppite gu sax ci biir réew mi gouvernement bi projet boobu la war a méngool wala moom lay méngool muy gouvernement boo xam ne ñaar fukk ak juróom ci ay jëwriñ la masalan li ñuy wax ministre waaye nag comme li woon suñu yitte mooy ñu def suñu kéem kàttan ba wàññi gouvernement bi ni mu doon toll mu ci am yoo xam ne ci ay ministère dina dis trop ci benn mbagg moo tax ñu jël ay naib secrétaire d'état nga xam ne matt nañu juróom gouvernement bi nag li nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye Diakhar fay joxe ci ay tegtal walla ndigal ci gouvernement bi mooy na nekk gouvernement bu jege askan wi bëggatuñu ministre yoo xam ne bu ñu leen fasee ba tabb dañuy sori askan wi duñu xam duñu xam lu xew ci réew mi muy donc gouvernement de proximité muy gouvernement boo xam ne bëgg nañu mu yeesal ci fànn yoo xam ne day jëm ci lu tubaab di wax efficacité mooy xarañ ci jublu ko jublu ci loo xam ne njëriñu Sénégalais yi kese la ci base boobu nag la président de la République wax ni li mu bëgg mooy gouvernement de résultat mooy gouvernement boo xam ne président de la république wax ni li bëgg mooy gouvernement de résultat mooy gouvernement boo xam ne dañu war a gis jeexital ci jëfinam waaye it résultat yooyu ñu war koo am ci ay poñ poñ yooyu bokk na ci yitte yi ñu am ci programme bi programme président Bassirou Diomaye Diakhar Fay nga xam ne ci lañ ko falee mooy lépp li jëm ci njàngale mi yar bi waaye li jëmit ci yëngatu ak xëyu ndaw ñi ak jigéen ñi ñaareel bi mooy dund gi nga xam ne seer na ba ñépp yëg ko ci réew mi mu war doon yittee gouvernement bi ba ci fan yi di ñëw ñu fexe ba dox ay jéego yu wóor ci lu jëm ci wàññi dund gi ñetteel bi mooy lépp lu jëm ci atte justice ñu tek ko ci mandute tek ko ci sans monter li nga xamné moy ak ak yelleefu sénégalais gu ne waaye it lépp lu jëm ci sellal ci ni yoré yore tubab di wax bonne gouvernance lepp lu jëm ci sellal ak lepp lu jëm ci saytu ni ñuy yoree alalu réew mi ni ñuy yoree kom koomu réew mi ak ni ñuy ressources naturelles réew mi ñeenteel bi di lépp lu jëm ci moom suñu bopp moom suñu bopp ba mun a am suñuy dogalu bopp waaye moom suñu bopp ba li nga xam ne surtout ci wàllu koom-koom nag ak ci wàllu li ñuy tuddee ressource naturelle mooy li nga xam ne yàlla may nañu ko ci alal goo xam ne mu ngi ci suuf wala mu ngi ci géej gi wala mu ngi ci feneen ak feneen ñu fexe ba moomal ko suñu bopp ba kenn du ñëw di ko foqati suñu loxo juróomeel bi mooy li nga xam ne mooy li ëpp solo ci senegal li ñuy wax cohésion nationale mooy senegal jàmm lañu musa xam demlante la musa xam kal kallante la ñu xam kafante lañu ñu mus xam amul xeet amul waaso amul diine ñu fexe ba loolu ñu gën koo dëgëral ci réew mi ndax loolu mooy li ëpp solo ci réew mi loolu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 mooy fileeg altine bu soobee yàlla ñu gaawantu ba li ñuy wax passation de service mooy lenge gi nga xam ne ñi fi newoon ci ay ministre war nañ koo jox ñiy ñëw ñu mun koo def ci ni mu gën a gaawee ba nit ñi mën a toog commencer liggéey bi parce que xam nañu li sénégalais yi di xaar ci ñun ñaareel bi mooy dañu wax ni ñi ñu tabb

président de République jox na la weer pour nga mën a tekki ndomb tànk boobu def say passation pour mun a jagleel say waxtu yépp ci liggéey bi nga xam ne moom lañ la sas muy liggéeyu ministre de la République lii mooy tegtal yi nga xam ne mooy tëj waxtaan wi ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullah voilà mi ngi noonu mu di euh, gouvernement bu yees euh, bu Ousmane euh, Sonko. ji ci euh, aljuma ji juróomi fan ci weeru avril ci la ñu ko teg euh, Moustapha ñu ngi ko doon wax euh, ni ki sànq gouvernement de vingt cinq ministres ak cinq secrétaires d'État yu nga xam ne moom lañ ñu tegal am na ci déjà ay tur yoo xam ne ñu ngi ko doon wax sànq rek ñëw nañu ci gouvernement bi d'abord bi nga gisee yenn ci ay postes yoo xam ne c'est des postes clés xëy na ñu njëkk foofu fu mel ni justice ak intérieur ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ ko jox muy Ousmane Diagne ak ki nga xam ne moo di euh, général Jean Baptiste Tine. Issa euh, remarque bi may njëkk a def d' abord mooy dama jàpp ne signe de rupture gisaat naa ko sànq. mooy lan mooy nekkuñu gouvernement boo xam ne da ngay wàññi ministères yi daanaka bañ mat 40 là c'est 25. muy une promesse électorale de Macky Sall bu mu defoon en 2012 que ne bu nekkee président du am gouvernement bu dépassé 25 ministres là ñii 25 ministres la ñuy am ak 5 secrétaires d' état ma japp kon ne c'est déjà un signe de rupture benen bi moy dama waxone ne rupture rupture lu bax la mais gis naa ne gouvernement bi ñu nara tab day nek gouvernement bo xam dina bari ay ndaw ño xam peut-être ño nek ci Pastef mi ñu leen euh, trop ci occuper yenn fonctions yi dinañ dugg ci gouvernement bi ñoñu amna ñu ci ñu ci dugg mais li nga xam mom la ci gën setlu moy ay kilifa yu mat de haute personnalité ñoo xam ne def nañ carrière yu mucc ayib ñi ngi ci gouvernement bi tey dama ciy jël exemple te xam naa Pape Sané dina après le général Jean Baptiste Tine. Mhm. nga xam ne moo jiite woon l'armée wu Sénégal astafurlah gendarmerie bu Sénégal jusqu'aux événements de mars 2021 euh, ci condition yooyu la fi jugee ba ñu yóbbu woon ko defe naa ambassadeur mhm. fële ca Moscou mhm. euh, ci Russie tey jii ñëw na nekk ministre de l'intérieur et euh, de la sécurité ou quelque chose comme ça dafay fàttali un peu une tradition bo xamné euh Abdou Diouf moko ko fi njëkkee woon euh, suma jël général Lamine Cissé def ko ministre de l'intérieur. Mm-hmm. Euh, tay euh, ñu jëlat après le général Niang qui a été ministre de l'intérieur. tay ji un homme de tenue un général mom mo nek ministre de l'intérieur. et ñi ko xam ñëpp Jean Baptiste ils disent de lui que il est irréprochable nit ku jub la nit ku xam liggéeyam la nit ku ko mën la. le fait que mu nangou tay dugg ci gouvernement bi man dama naan ça rassure parce que buñu fatané on a un président qui a 44 ans on a un ministre qui a, je crois, 48 ans ou quelque chose comme ça. Mhm. Avoir des gens comme ça dans le gouvernement, c'est rassurant. Benin bi le ministre de la justice Et ça, mhm. ñu la dans la famille judiciaire la le prochain ministre de la justice <coughs> avocat du nek jangale kat waxna ko keroog biñ togué fi man ak Pape hmm. euh, tey ils ont pris un magistrat té sànq maa ngi la hmm. un magistrat yakarna moy li gën euh, bamay may le nom de Souleymane Téliko hmm. mais ils ont pris un magistrat mais qui a énormément de valeur muy Ousmane Diagne nga xamné mo euh, avocat général jusqu'à jusqu'à fi waxé ni cour suprême Ousmane Diagne nekkoon procureur de la République du temps d'Abdoulaye Wade et bam fay jógee ba légui nit ñi dañuy nan il a été un bon procureur et lui même il avait il avait l'habitude de dire j'ai jamais été un procureur d'un ministre ni de gouvernement j'ai toujours été un procureur de la République et man ma jàpp ne am solo aussi Yacine Fall mhm. euh, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères déjà man l'appellation j'aime bien intégration africaine ensuite euh, affaires étrangères j'aime bien entendre ça Yacine Fall une femme d'une grande valeur nga moom euh, fu nekk dem na fa euh, à travers le monde à travers notamment ses fonctions nga xam ne moom ak Aminata Touré euh, c'est des femmes yoo xam ne respect bu ma am ci ñoom mooy fu ne liggéey nañ fa ba léegi mënoo gis ne lii nga leen mën a taxal. donc la meilleure la première des langues nga xam ne. da ah koy man da koy. mais elle ne parle pas que ça. voilà donc le fait que muy wax langue yu bari ba barki démb je pense rédaction maa ngi ko fay wax. que ni kooku xëy na bu demoon affaire étrangère. ce serait bien pour le Sénégal. man problème pour. mais mais yàggul dara ça doit faire à peu près euh, quelques trois ou quatre mois, je pense. Hein. Euh, Ben, des, des Africains euh, qui étaient venus ici à Dakar pour rencontrer des, des journalistes qui ont été persécutés durant le, régime de Macky Sall. mi Bokon Nadja, euh, Pape Alenia, Pape Sané, Pape Alenia Magafoon, Choro Makou Mandela Magafoon, Kerok togué, mais quand tu entends Yacine Fall parler, mais tu as l'impression que Sokhna si mais anglais la namp. Oui. Anglais la namp. Elle parle mieux l'anglais que le français d'ailleurs. Donc le fait que, en tout cas ça me fait plaisir mm-hmm. d'entendre que les mots moo euh, affaires étrangères. c'est une excellente chose Je dugg si yeneen un ministère, mais ça Sané du côté boobu parce que man ñaar yooyu daf ma ñor muy justice intérieure. intérieur Ben bi ñu un général un procureur. Qui. ça, euh, vraiment. Euh, à, l'image de Moustapha damay consacré rek damay ne que la rupture a été consacrée. Mhm. Euh, pourquoi En tout cas, il y a un bon signe. Voilà. C est, c est, pourquoi euh, Qualité ressources humaines yi. Mhm. nga xamné mom lañuy jot waxtaanee légui légui ni euh, wax nga ko euh, Ousmane Diagne voilà euh, kon euh, bu fekkante rek mën nañ leen a jëli jiwaat euh, Mamadou Thiam ak Ayoba Faye ngir rek ñu daal di ñuy defal un petit résumé euh, laata ñuy dellusiwaat ci plateau bi ngir tàggatoo ak ñoom ñoo ñu di nekk ca palais de la République Mamadou Thiam. qui suivait pour nous cette publication de la liste des euh, 25 membres du gouvernement d'Ousmane Sonko et aussi Allô, je vous entends. am euh, Yagi ngi euh, ci palais de la république euh, Tcham. dafa mel ni euh, dégg-dégg bi euh, neexul en tout cas ñi ngi ko doon gis euh, normal je sais pas pourquoi son bi demul xëy na même bu dee dafa am interférence warte. oui Issa yàgg Mamadou diam voilà kon ñu daal di euh, wéyal Pape Sané euh, yaa ngi woon ci euh, ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñu teg tey ci ay poste stratégique muy intérieur nga xam ne wàllum sécurité daf ko war a gérer waale nekk un général ak justice nga xam ne un procureur qui a qui s'est montré xëy na avant même mais bii aussi wanewaat na ci boppam bu baax a baax mu di ca Cour suprême. Issa, pour la première fois dans l'histoire, je vais, je, vais je vais dévoiler un secret, qu'on dit secret d'État. <laughs> je vais le dévoiler. Parce qu'il faut que tu n'y aies pas le général Biram Diop. Le général Biram Diop, exactement. Euh, euh, forces armées. Forces armées. Je vais le dire, j'ai jamais voulu le dire, les gens l'ont dit à ma place, nous menons Cheikh euh, mais j'ai jamais voulu en parler. Mm-hmm. Mais il faut qu'on parle un peu de ces hommes-là, l'Union du Sénégal. Mm-hmm. quand il y a eu justement les événements de mars, mm-hmm. le 8, nous avons Ousmane Sonko il dit le doyen des juges, qui dit président Macky Sall à travers le ministère de l'Intérieur, a une réquisition pour ñaan wax soldats soldats général Biram Diop ni palais, ba ne a aucun problème vous êtes le chef suprême des armées les soldats vont sortir. Mmh. mais si nous mon général je ne serai plus responsable de tout ce qui pourra advenir. général Biram Diop mon sol est sol ay Moustapha mhm. dem fële sa section recherche fa ñu fekkee woon Ousmane Sonko. Mhm. boobu il ah. était quoi. il était chef d'état-major des des armées. d'accord am na ci ñaari nit du bëgguma tudd seen. tur jaru ko jaru ko du tudd seen tur quoi. mais moom sañ naa tudd turam. Mhm. parce que peut-être seq naa ko ak moom. moo déplacé wu dem ba fële sa section de recherche wax ak Ousmane. ne ko man je te donne la garantie ni que ëllëg le huit. da ngay ñubbi sa kër. mais dama lay ñaan lenn li lay wër soli moy que bu manifestation bu dara am parce que bu amé vous nous mettre dans une situation extrêmement difficile Ousmane jël ne ko nañ ko indil téléphone ñu andi ko téléphone mu wax passé quelques coups de fil ne ko nag j'ai foi en la parole d'un général mu sama cadeau mu ne ah, suba da nga ñubi sa kër loolu mën nañ ci sax buruxlu Wakale rôle ba nga xam ne Samba Sall mais le moment viendra on en parlera. des juges des juges. parce que Takal nañ ko waxal mauvais rôle bu mais moi, je suis un bi plus mun naa ci que si la situation a été décantée mhm. ils ont joué un grand rôle dans l'intervention de sëñ Mountakha Mbacké le chef général des Mourides la délégation de mu yónni woon kooku nañu chef détat major général des armées c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nga xam qui pouvait moom. Mhm. général Birame Diop tey jii boo taxawee ci armée bi boo laajee ñu ne la bokk na ci chef d'état-major yi nga qualité de vie ci armée bi ak euh, le mieux-être dans dans les armées bokk na ci ñu ko fi indi il a tout fait pour la troupe. Mhm. kooku tey moom le président Bassirou Diomaye woo ne ko bàyyi sa poste ambassadeur. ñëwal ah, fii ambassadeur waaw mhm. ñëwal fii le ministère des forces armées parce que nous avons koy wax passé je crois. comment le ministère des forces armées nous délicaté. Mhm. oui on en a parlé. et avant-hier. disait que c'est le domaine réservé du président de la République euh. alors tu as jël quelqu'un du sénat nga jox ko mais vraiment, euh, c'est le Graal pour les militaires. Ouais. Parce qu'ils vont être doublement commandés hum. par un général, le chef d'état-major, et par un général, le ministre des Forces armées. Donc, L'autre général, euh, défendre, à <laughs> Jean-Baptiste. <laughs> Waouh! Jean-Baptiste, également, je dis. Jean-Baptiste, Jean deux, deux, ah, choses sur Jean-Baptiste. Mmh. Hum. c'est le capitaine euh, Sirina Touré qui me l'a raconté. Euh, tout le bien qu'il pensait du général Tin. Dans les moments les plus difficiles, le général Tin a joué un rôle beau, xam Selon le capitaine Touré waxee c'est pas possible il a été comme ils disent un soldat digne. digne de la République. tout à fait je bi c'est sama benn journaliste je veux pas citer son nom parce que qui connaît très bien le général Tine il m'a dit une fois le général Tine n'a pratiquement pas d'amis parce que ndax il xarit yaa rek. déjà événement mars yi am na lu bëree bëri lu ñu doon wax ci moom. que ni dafa hommes euh, parce que xëy na euh, bu doon répression bi ci war dëgg am ci événement mars yi du demee mais au moins ils avaient une retenue bon xam ne. Mm-hmm. Euh, tax le Sénégal a évité le pire. tout à fait euh, Jean-Baptiste boobu au-delà du fait que sax mu diriger gendarmerie. Mm -hmm. qui est une troupe de police comme police bi comme ministère de l'intérieur bi mu mm-hmm. mais dafa doon que nga xam dafa xam vu ses expériences internationales notamment au niveau des missions onusiennes nous fa chef de mission au niveau des Nations Unies dafa xam agrégat sécurité internationale Moi, maanaam. Mhm. les normes les normes les ko euh, de l'homme nous avons nga nu ñuy surtout les fi ay maintien de l'ordre mu et ay nit dee ci la norme bi nga xamné mom la euh, Nations Unies édicté moy la gestion des foules en démocratie kooku c'est un des des des des des principaux acteurs yi nga xamné ñom ñoom ñoo doon véhiculer lolu dans les missions des Nations Unies. c'est important mmh. parce que Ousmane Sonko dafa wax ci biir waxam né dañu bëgg gouvernement bo xamné tuduna turu paix. Mmh. tudd na turu réconciliation. Mmh. xam nga yoy de ko jël le ministère de l'intérieur dénk ko un général. un général l'armée d'un coup un général da nga ciy gis ne euh, dénk ko ko mais da qui ci gis leneen mooy lan moi li il faudra réformer. Mhm. les forces de défense et de sécurité pour réconcilier les populations population ñii dinañ ci mën dara. xam na lan mooy xam na xam na lan moo doxul merci Issa le fait que général Tine boobu xam les normes internationales en matière de maintien de l'ordre dina tax xëy na d'ici les prochains mois dinañ defal seen seen seen les hommes. seen hommes seen homme de troupe bi. une formation boo xam ne bu ëllëgatee buñ dee wàcc wara a xalé yi. Mhm. Euh, pour wala étudiant wala yenen dans le cadre d'une manifestation dinañ xam nuñ koy gérer en tout cas de meilleures relations. Mhm. entre ñi sol tenue ak ñi nga xamné ñoy sénégalais yi nga xamné ñom ñoom ils ne demandent qu'à être sécurisés. Mhm. mais Moustapha et puis quelque chose de bon. ñi ngi fàttaliku bii général Jean Baptiste di nek au commandant de la gendarmerie Moustapha ci jamono yooyu. nga doon gis. ay patrouille mix police gendarmerie ci dëkk bi ñuy liggéey je sais pas ndax yaa ngeen di fàttali lool. donc amoon na benn embryon bi nga xamné mu ngi ko doon commencé. Mhm. créer ci walu sécurité publique. Mhm. xam nga nomination bi jotone fi indi problème ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique. Mhm. sécurité publique bo gisoon ñu yok ko ci woon moy manam dañu bëggoon jël comme le modèle français. jël ñi nga xamné moy la gendarmerie mobile nga avons ñom ñoy intervention yi comme policiers maintien de l'ordre et consort mhm. lañ leen bëggoon jël ministère de l'intérieur comme cela a été le cas avant 1962 mhm. donc quelqu'un qui a commandé la gendarmerie mhm. ñu avons mu commandé le ministère de l'intérieur commandé la police une mission pour mu jël ñaari corps un corps de sécurité publique très bien donc on Birame Diop aussi côté armée parce que xam nga ONU déjà ci ñuy ci ñuy recruter. Mhm. Euh, euh, secrétaire euh, général bu wàllum recrutement ci la nekk ONU. donc mon xam bu aussi côté armée bi nakala la ñu war def ba lutter contre insécurité bi fi nekk ak mhm. yenn ci ay jafe-jafe yoo xam ne xëy prérogatives. tout à fait tout à fait donc loulou mooy ñaari soldats yooyu. ki ci des muy. Ousmane Diagne procureur de la République. Pape bala ngay pare ci soldats yi rek euh, xam nga depuis avant campagne ba mhm.

buruxluwaale ci mbir yi rek est-ce que mënuñoo gis une track aussi euh, Ousmane Diagne procureur qui a euh, donné même plusieurs revers euh, gouvernement bi nga xam ne moo fi génn ñu def ko tey le ministre de la justice. amul beneen signe bi muy joxe. non non gëwuma traque. Hmm. gëwuma traque. lañ lañ ko lañ yóbbu yëpp moom il a pris leur contre-pied. waaw non non gëwuma traque mais li ma gëm. Hmm. mooy que au moins une chose. Ouais. Et ça. Hmm. les magistrats. vont recouvrer la plénitude de leurs moyens. C'est-à-dire que Taïdi Japna avec la présence de Ousmane Diagne à la tête du ministère de la Justice, magistrat, beaucoup de choses. Il y a beaucoup Parce que je une chose. Il faut respecter Bopam, de respecter magistrat. am na ay intervention sax da nga koy ñaan petit frère je suis mal à l'aise pour ñaan li parce que Il y a mel ñaan magistrat. doguma <laughs> mm-hmm. Ousmane Diagne bi mu nekkee parquet. waa Walfadjri quotidien gi. dañoo bind seen une journal. les délinquants de la république xaw ma nu leen tuddee woon. def ci ay photo ministre Abdoulaye Wade yu bari. alkaati digg yi ñëw fii jël leen yóbbu rédaction jël nañ fi ñu bari. Euh, ci ngoon ga jour boobu ci ngoon gi ma woo ko téléphone mi ngi may dégg moom euh, Ousmane Diagne mu ne ma de toute façon une rédaction comme ça mënuñu leen a téye dinañ leen bàyyi mu xam lu mu ci yokk. Mm-hmm. dafa ne mais booy nag il faut nga wax ak sa gars yi. des ministres de la république on ne les traite pas comme ça. voilà parce que moom lañ fa yóbbu loon ñoom caat ak gars yooyu noonu mu ne leen. lan caat ak Alioune caat caat ñi ko jàppe woon unité 15 euh, parce que dafa kii woon euh, dafa waxoon kàddu yu jëme ko ci Abdoulaye Wade yu mm. mm. yu ñàkk ñu jàpp ko yóbbu commissariat central garde à vue pendant ñaata fan bëgg ko defee rek au parc mooy leen bu leen génn sama parquet. <laughs> parce que j'ai jamais demandé son arrestation. Alioune également c'était à la Issa ñu rappelé rek très et des Affaires étrangères. Général Biram Diop, ministre des Forces armées. Vous préciser par ordre protocolaire. par ordre protocolaire donc que Fall assurer intérim comme on dit mm-hmm. voilà donc Fall <laughs> merci Pape ministre de de l'intégration africaine et des affaires étrangères général Biram Diop ministre des forces armées Ousmane Diagne ministre de la justice garde des sceaux général Jean Baptiste ministre de l'intérieur et de la sécurité publique mm-hmm. biram Souley Diop il va quitter l'assemblée parce que Ousmane Sonko est na may un mois <laughs> Ah <laughs> non c'est Diomaye Diomaye may de ku un mois pour nga démissionner de toute façon député et ministre mom démissionner par force mm-hmm. mënul mais maire Thiès ba may nañ ko un mois pour mu démissionner muy euh, kon cumul day jeex foofu Biram euh, Ousmane Sonko aussi may nañ ko un pour mu démissionner maire Ziguinchor Birame Souleye Diop ministre de de l'énergie du pétrole et des mines Abdourahmane Diouf, ministre de l'économie, Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Cheikh Diba, ministre des finances et du budget, Malik Ndiaye, ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens. C'est Daoud... Malik Ndiaye, pour nous rappeler quoi. C'est El Malik Ndiaye qu'on appelle Malik Ndiaye, d'accord. Donc c'est le euh, ministre, des infrastructures, des transports terrestres et aériens, Daoud Ngom ministre de l'environnement et de la transition écologique les cadres de Pastef Wa di nijaay ci euh, Fadilou Kaita. voilà alors euh, Amadou Moustapha Njek Saré Moustapha Saré un des amis de Issatine, ministre de la formation professionnelle porte-parole du gouvernement meilleur yor du gouvernement bi gouvernement Saré mhm. euh, Cheikh Tidiane euh, qui était candidat à la présidentielle mhm. ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Alioune Sall Sall c'est le député de la diaspora France ministre euh, de la communication des télécommunications et du numérique. donc c'est un jeune. qui est notre ministre. exactement El Haji <laughs> Diouf ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation euh, Serigne Gueye Ndiaye. qui était Serigne Gueye Diop qui était très ami à Macky Sall, hein. euh, euh, euh, ministre conseiller Macky Sall, maire de Sanjara Ouais. Euh, Serigne Diop, un excellent cadre. Coalition Diomaye. Hein? Usine Yom Def Sandiara. Ah Qui a rejoint la coalition Diomaye. Exact, exactement. Il est ministre de l'industrie du commerce. Là, vraiment, c'est rassurant parce que moi, Issa Amine koy euh, Voilà, dans ce domaine-là, voilà. <coughs> donc il faut que nous def pour que nous mën à Issa dama ko dégg mu wax le solo ci RTS laa ko seetaane woon moom Serigne Ndiaye mi Diop encore une fois pourquoi je dis Ndiaye qu'est-ce qu'il m'a fait alors mouné bac il était le seul candidat dans tout Sanjara. Mon rek moo fa candidat au bac Il da doon jugee de dem des Mbour de pour man fa defi bac ci l'as décidé qu'il il n'est pas question que l'idée continue. et qu'il fera tout pour que les enfants de Sanjara qui vont venir après lui soient ñuy def bac duñ soxla dem Sanjara. moo fa le lycée. exactement. Il faut usine buy defar euh, ay batterie ak Serigne <coughs> alors Fatou Diouf que je connais pas. c'est en tout cas c'est pas notre Fatou Diouf à nous. Euh, c'est pas Fatou Diouf qui est ministre des pêches des infrastructures maritimes et portuaires Maymouna djey maire de Padoua donc Padoua, dem len ngeen wouti benen maire fi ak un mois Maymouna Dieye dina len abal euh, Maymouna donc ministre de la famille et des solidarités. Mm. Yankoba Djemé, papa tu le connais. Oui, président conseil départemental conseil départemental bu mom aussi day démissionné conseil départemental ña na est-ce que lii mooy yàggal liste bi pour wax leen ne nañ tànn Euh, il y avait eu des arbitrages très très. oui très très divisés d' accord alors Yankhoba Diémé ministre du travail de l'emploi et des relations avec les institutions je vois le projet c'est un bol bol, bol bol ministre. Balla Moussa <laughs> Fofana qui est ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. c'est son domaine il a écrit même avec Ousmane Sonko sur ça. ça veut dire que ni c'est c'est un peu le Ousmane Sonko du ministère de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire lim lim xalaat Ousmane Sonko doon ko xalaat ci wàllu aménagement territoire. il va ba bind ko ci livre ñoom ñaar ñi moom la ñuy appliqué. moom am na lu muy am na programme déjà. mooy am na programme voilà li ci livre bi la ñuy def nañ fexe ba jurbel euh, nekk beneen dëkk. Euh, ma ngoog euh, Moustapha Girassi ministre de l'éducation nationale je pense que c'est un bon choix. Mm-hmm. pourquoi parce que c'est un homme très très pondéré. qui parle qui pourra parler. avec les enseignants exactement il est dans ce domaine. il est dans son domaine Ibrahima Sy que je connais pas ministre de la santé et de l'action sociale. Olivier Boucalpap, c'est qui C'est un inspecteur du Trésor. Ok. Récemment, euh, qui élargi de prison. D'accord. Ah, il était en prison Oui, ah, il était en Maroc de Ok. Euh, arrêté quoi. Donc, euh, c'est le président du mouvement Goudoum pour Debout. D'accord. Bi rejoint PASSEF. D'accord. Il devient donc ministre de la fonction publique et de la réforme des services publics. Khadi Djen Gay, ça, ça me plaît. Parce que c'est très, très rare d'entendre une femme ministre des Sports. Je crois que c'est la première au Sénégal. C'est la première. D'accord. Donc, partenaire, c'est la première. Gisna aussi, Nyom El Mamadou Diaye bind c'est la première fois c'est une excellente nouvelle elle, elle je la connais pas elle ressemble à ah ma gisee photo <laughs> euh, donc moi ministre de la jeunesse des sports et de la culture Mabouba Diagne tu le connais non non ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage Aliou john ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire. Muntega hmm. Muntaga ministre, tu le connais pas ouais, De Kolda, ouais. De Kolda, Il est ministre du tourisme et de l'artisanat. Hmm. Donc, les Nyonyo et les 25 ministres du gouvernement de Ousmane Sonko. Les secrétaires d'État, il y a Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État au Sénégal et de l'extérieur. Chérif Diouf, moi, je suis venu tour, moi, je finance au PASTEF. Moi, je finance au PASTEF. Moi, Canada. Stratégie Walum Khalis, c'est Chérif Diouf. D'accord. au Canada. Canada, le pourtant, c'est son grand frère, c'est le, c'est le procureur, l'actuel président de la Cour suprême. Ah oui L'actuel président de la Cour suprême. C'est son grand frère. ah oui, je ne le connais pas donc il devient donc euh, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur Ibrahim Thiam secrétaire d'État au développement des PMI et PME petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries euh, Momat qui devient donc secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement quoi mhm. ah. Alpha Ba de Guédiawaye de qui était à Pencho juste avant euh, un gars aussi très très pondéré euh, très correct secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan il est dans son domaine parce qu'il enseigne à l'ENSA de Thiès. Hein? Oui. Voilà, il, donc le domaine de l'agriculture, c'est important parce que euh, organiser la, les agriculteurs, les encadrer, euh, bañ leen a mm-hmm. bàyyi ci loxo ñi ñu tuddee ay xawma lan ay ay xawma euh, opérateur waaw waaw <laughs> opérateur yooyu moom buñ leen buñ leen génnee ci loxo béykat rek baax na xam naa ben am na benn waay bu sant Ndiaye ma nga ca Bombali mi ngi may seetaan war naa parce que léegi am nañ koo xam ne moom la waxal directement au lieu que seen i mbir di jaar ci ay euh, nu ñu ko wax sax Pape opérateur voilà alors le dernier donc c'est Bakary Sarr qui est secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique voilà muy ay euh, nit ñoo xam ne ñu ci bëree bari ci seen i euh, poste lañ leen jox yu euh, nga xam ne xam nañ ko bokk na ci ku ci mel ni Abdourahmane Sarr nga xam ne moom itam am na toogu bu mu yore daanaka ci côté boobu la maa ngi doon dégg sax ñu bëree bari doon wax sa nomination autant pour moi waa Abdourahmane Sarr mhm. parce que man depuis bërki démb je pense maa ngi gis lu ñu mel mhm. Jiba aussi nga xam ne finance Jiba gisoon naa turam waaw voilà donc moom itam daanaka nit ñi mhm. joxe woon nañ ko moussafa dañuy jël ay ministère bokk na ci bu ci mel ni wàllum finance ak budget nga xam ne. Uh-huh. Euh, jël nañ ko euh, joxe ko euh, ak bu finance budget ak beneen boo xam ne aussi moom lañ jox Birame Souleye Diop muy wàllum énergie. Birame les postes stratégiques aussi ci jamono ji. dafa mel ni Mamadou caam mu ngi ci bu mu jokko bi ñu jëli ji ko laata ñuy desuwaat ci plateau bi ngir jeexal Thiam. cette fois-ci je pense que c'est la bonne. waaw Thiam d'accord waaw. damay nekk direct damay nekk direct damay nekk direct xaaral Mamadou Thiam technicien yi bu dee mën ngeen wax ak moom nekkoo ñu ngi déggante ak moom euh, mu euh, dugg jox ñu rapidement ñoom seen euh, ay résumé ak ban impression la ñu am ci gouvernement bi ñu teg surtout ku mel ni Ayoba Faye bu fekkente ne mi ñuy dégg Mamadou Thiam. Thiam dafa mel ni euh, dégguñu Moustapha ñu wéyal ci côté boobu rek jël euh, finance ak budget ak euh, wàllum koom gi ak bu ci mel ni ministère bi Birame Souleye Diop yore mais gisuma fi commerce. commerce mi ngi ci Serigne Gueye Diop Serigne Gueye Diop voilà dañ ko jël rattaché ko donc pour ma bañ a waxaat Serigne Gueye Ndiaye <laughs> donc ko dañu boole énergie ak commerce moom la Serigne <coughs> <coughs> moom la Serigne Gueye Diop yore. Euh, énergie mooy euh, Biram Souleye Birame Souleye mooy ministre de l'énergie du pétrole et des mines. et des mines voilà. Euh, Serigne Gueye Diop mom côté industrie ak yoy la yore. ministère de l'industrie et du commerce. donc ñaari ministères yi lañ jël dal di ko koy bolel hum. ci côté liñ jot a gis déjà ci walum yu ci bari bari ñoo xamné seeni poste quand même don na poste yo xamné du yu ñuy ñëw di réer <coughs> ndax poste yu ñu min la euh, Pape Sané ci côté bobu waaw waaw poste yi mom moom daanaka. Euh, je crois que tamit bokk na ci li gënoon retardé parce que il fallait euh, recadrer faire en sorte que le maximum de de de de. Mamadou Thiam Thiam bu fekkene ne yaa ngi ñuy euh Mamadou Thiam ñu bayil nga ñëw ci li nga xamni mom nga gis tay ni kii ca palais de la république muy publication liste bu 25 ministres ak 5 secrétaires d'état euh Mamadou Thiam ak Ayoba Fay approche kii maa ngi déglu de yeen yéen a nekkoon di communiquer. économie yëpp di ay ponk yoo xam ne Ousmane Sonko ñëw na ci. dégg waaw waaw tey euh, li nga xam ni moo ñu waaw waaw li nga xam ni moo ñu dajale woon foofu nag moo di euh, listu gouvernement bu yees bi nga xam ni ñu ngi ko doon amal euh, fële ci palais de la république euh, ilimaanu jëwriñ yi Ousmane Sonko doon ko xamal doon ko xamle tey nag bi nga xamee ni daal dinañuy daje foofu li nga xam ni moom la njëkk xamle laata ñuy ñëw ci daal di leen di lim kenn par kenn ñoom jëwriñ yooyu xamle ni na bile gouvernement nag gouvernement bu rupture la gouvernement la boo xamante ni day jël li xamante ni moo di aspiration sénégalaise yi daal ci ci gaawee loolu moo tax euh, ñu daal di koy euh, tënk te nee na moom euh, ginnaaw altine rek dina daal di jël fonction te ñi nga xamante ni ñoom la ñu fal itam dina daal di fexeek ñoom bépp bu ñu leen installé rek ñoom tem ñu daal di jël fonction daal di sëgg ci li nga xamante ni moo di jafe-jafe askan bi Euh, bi la gouvernement nag wute na ak yi ñu doon euh, kii ndax ankar na ko daa dëggal sax li ayo ba doon wax ni njort na ni dina gën néew ci ab lim ñi nga xamante ni ñoo fi doon euh, am ayo ba alors ñu am gouvernement boo xamante ni ñaar fukk ak juróomi jëwriñ la am ak juróomi secrétaire secrétaire d'État ban appréciation nga ci def d'abord waaw di wax rek ni ñoom li ñuy diggee woon en tout cas ci gouvernement de rupture dans le dans nombre en tout cas respecter nañ ko euh, ñi ngi doon wax ni entre vingt cinq et trente ministres tey jii ñu am vingt cinq ministres yo xamante ni euh, nommé nañ leen ak cinq secrétaires d' état Euh, donc loolu day wane ni wàññi nañ bu baax euh, lim bi nga xamante ni moo fi doon am ci duñ ko doon teg ci ay 40 ministres wala yenn saa ñu dem sax ba ay cinq wala 50 ministres bii nag euh, gis nañ ni cinq ministres rek ñoo fi nekk mu doon gouvernement boo xamante ni vraiment dans le nombre ils ont ils ont ils ont nu mu tuddati respecté nañ li nga xamante ni moom lañu waxoon ak askan bi nii gouvernement bi dañ ko réduire au au nombre. alors ñu am loo xamante am seetlu nañ ko ci beneen jàngat mu mel ni ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay membre éminent je peux bu fekkee mën naa ko tuddee noonu nekkoon ci terrain en tout cas ñi doon gën gis mu mel bari ñu ci lool ci gouvernement bi euh, damay bañ lim waaye lu néew la euh, ban jàngat nga ci def waaw effectivement ñoom ñoo jige woon ak askan bi tamit ni ñoom euh, liñ doon xeex comme li ma ko waxee sànq rek doon ay poste moo tax ñu doon xeex don de soi pour la patrie la loolu la ñu woote woon te loolu moo askan bi tamit dem ci urne yi fal leen bi nga xamante ni dimanche 24 mars donc euh, Euh, man il fallait s'attendre vraiment à ce qu'il y ait moins de euh, responsables wala militants passifs du gouvernement bi gouvernement bo xamanteni ni day représenter Sénégal yépp bo dee gouvernement bo xam ne bu représenter Sénégal yëpp nag munoo rek ni ci ci militants passifs yi la wara yam euh, donté comme ni nga ko waxee léegi lim bi nga xamanteni mo nek ay militants passifs wala responsable passif ci gouvernement bi xawna na peut-être euh, lolu après dinañ ci dinañ ci am benen jangat mais amna ay tour yo xamanteni tamit ñewna ba nga xamanteni xamé nañ leen lool ci sen public bi muy ci nga xamanteni mom lañ jox par exemple justice muy procureur Ousmane Diagne ñëpp xam ko ci indépendance am euh, ñëpp xam tamit démale yi nga xamante ne nañ ak régime bi nga xamante ni euh, prise de position bu mujj bi mu mujjee jël rek mooy ci cour suprême keroog bi nga xamante ni ci la ñuy àtte euh, li nga ni mooy kiiwu mambe Niang bi ak Ousmane Sonko recours Ousmane Sonko bi ci kanamu Mambé Niang bi mu ne Ousmane Sonko dañ ko war a delloo ay dañoo war dañoo war a delloo ay yelefam yi nga xamante ni moom la ko état bi amee parce que dafa violé woon ay droit am donc kooku buñ ko ci gouvernement bi nga xamante ni teg ko ci nga xamante ni place mooy justice euh, loolu ñuy woowee reddition des comptes mun nañ cee rafet njort euh, keneen ki nga xamante ni moom lañ teg à l'intérieur mooy Jean Baptiste xam ngeen yëpp histoire Jean Baptiste nu mu demee moom mi nga xamante ni moo nekkoon au commandant de la gendarmerie keroog bi nga xamante ni événement mars 2021 yi am nañ ko te bi événement yi passé euh, ki nga xamante ni mooy président Macky Sall jëlee woon ko ci poste boobu daal di koy affecté remplacé ko par le général Moussa Fall donc tey jii buñ ko indiwaatee à l'intérieur peut-être am nañ yaakaar ci moom que mu que mu tegaat yëpp mbir yi ci yoon euh, ba lépp di doxaat ci yoon donc euh, yassine Fall moom lañ def euh, affaires étrangère ak intégration africaine muy koo xamante ni tamit am na ay réseau sur le plan international ñëpp xam nañ ko elle est elle est elle a été fonctionnaire en tout cas international bu weesoo loolu ki nga xamante ni député diaspora bii di Alioune Sall ñu teg ko mu yor communication ak li nga xamante ni mooy télécommunication moom itamit mu doon def liggéey bu am solo foofu nga xamante ni mooy ci diaspora bi ak fii nga xamante ni mooy ci assemblée nationale daanaka euh, li nga xamante ni mooy sortie médiatique yi nga xamante ni responsable Pastef yi moom la ñu am sur le plan international ci télévision internationale yi muy muy France 24 RFI TV5 Monde yëpp moom moo ko doon coordonné ak ki nga xamante ni mooy le vieux euh, le vieux vieux Aïdara mi nga xamante ni moo fi nekkoon donc euh, poste boobu bu ñu ko waxee je pense que mën na doxal liggéey bi ñi nga xamante ni noonu la noonu la waree donc am na ay yeneen poste yoo xamante ni clé am na benn responsable tamit nga xamante ni mooy Birame Souleye Diop moom lañ def moom lañ jox énergie je crois am na responsable Pastef la bu fës ah, moom laa gis ni ak Olivier Boucal mi nga xamante ni inspecteur du trésor nga xamante ni arrêté woon nañ ko te biñ ko libéré yàggul ah, moom la ñu moom lañu jox fonction publique ah, donc ñaa muy ñaari responsable Pastef yoo xamante ni ràññee naa leen bu baax ci ñi nga xamante ni mooy liste gouvernement bi bu weesoo loolu Ousmane Sonko tamit joxe na information bu bu am solo ci ci ci ci ci gouvernement bi nee na bépp koo xamante ni fal nañ la ci 25 cinq ministres yooyu wala secrétaire d'État yi euh, fii ak un mois lañ la may président Bassirou Diomaye Faye mais ne la un délai d'un mois pour nga tekki sa ndomba tànk fekkee am nga yeneen ndomba tànk électif maanaam bu ñu la nommé conseil départemental wala ñu mel la maire wala ñu nommé la député am nga un mois pour tekki ndomba tànk yooyu pour consacrer wu exclusivement euh, ci li nga xamante ni mooy euh, tâche yi nga xamante ni gouvernement bi moom moo leen di moom moo leen di xaar donc muy loolu muy am solo maintenant nag léegi liggéey bi ñoom ñi ngi ko accès ci ay ay ay ay ay ay priorité maanaam ndaw ñi ak jigéen ñi ak seen lu demee ci seen wàllu xëy loolu def nañ ko priorité justice bi wax na ci def nañ ko def nañ ko vraiment priorité ak cher bi cherté bi nga xamante ni dund bi moom la moom la moom la cher loolu tamit ah, def nañ ko priorité te nañ gouvernement de résultat la ñu woote maanaam du ñu fal nit ñi rek bàyyi leen ñuy doxal dañ leen di laaj ay résultat donc gouvernement nit ñoo xamante ni da leen a fal tabu leen ah, peut-être da leen di fixé ay objectif objectif yooyu nag dañoo war a atteindre ah, li nga xamante ni moom la leen fixé ci résultat yooyu lañ leen di gën a xaar Euh, muy ngok loolu lañu leen euh, jëlale fi nga xamante ni moo di palais de la république euh, su ñun ak suñu naatango ayoba fall moom mu daal ci dellu sax ci ni mu gën a yaatoo nga xam ne amal nañu gouvernement bu bu bu toll ci ñaar fukk ak juróomi jëwriñ ak juróomi cinq secrétaire d' état ñu xam le nag daal daal di fas yéene sëgg ci li nga xamante ni moo di préoccupation askan bi def ko muy seen réalité absolue boo xam ne dañ ci daal di sëgg laaj ci ay yu am solo joxe itam yeneen information yu yu am solo yu mel ni ni euh, li ba mujj évoqué rek euh, nga xamante ni képp koo xamante ni am na fal nañ ko fii ndomba tànk euh, dañu ko daal di may benn diir bu toll ci benn weer ngir rek mu daal di mën a démissionné ci yooyu la poste ak diir bu gàtt bi nga xamante ni ñoom daal di nañ ci fas yéene jël service daal di installé wu daal di sëgg ci li nga xamante ni moo di liggéey bi ngir andi ay saafara ci jafe-jafe askan bi loolu la ñu fi jëlagul ni ay xibaar xañ na du ñàkk rek ñu am yeneen jotaay yoo xam ni dañu ko gën a mën yaatal jërë ngeen jëf jërëjëf Mamadou Thiam mi doon suivre euh, information yooyu léegi nga xam ne euh, moo doon rote ca palais de la république maa ngi koy wax sànq Moustapha Abdourahmane Sarr euh, frère la ci Oulimata Sarr Oulimata Sarr mi nekkoon voilà ministre des finances moom itam tey <laughs> euh, gis nañu euh, poste bi nga xam ne ko jox muy ministre de l' économie euh, du plan et de la coopération ñeneen itam ñoo xam ne gis nañ leen ci sax muy mun marumba boobu ñuy wax ci wàllum agriculture ci lay yëngatu donc yooyu yëpp di ay uh-huh. poste yoo xam ne quand même ñi ci nekk seen milieu la uh-huh. Pape yaa ngi Mountaga Mountaga Diawo uh-huh. moom la ma le correspondant de Wolf Quotidien à Kolda Diawo di wax léegi mu ne ma cousin wu <laughs> on a vu des postes yo xamné ils ont le profil de l'emploi comme on dit euh, je crois que Djangbi, du euh, que très rapidement ils vont prendre leur marque euh, mais mais mais dañ glissement mhm. Ousmane na euh, dans ses différentes tâches et tout mais tay charge bi mu am que il est au-dessus c'est-à-dire il est dans il est le patron de la chancellerie je à administrer la administrer justice mo wara faire ba nga euh, justice bi euh, la lamu soxla dana ko am euh, ñañu wara récompenser récompenser l'un, ñañu wara tek manam les bons hommes à la bonne place donc loulou, je crois savoir que. Euh, et ça nous permettre un bon fonctionnement de la justice nous permettre aussi magistrats yi gën a débrouiller gën a lâché wu. Mhm. maanaam mun a euh, teggi pression yi nga xam d'habitude moom la yenn ministres yi wala yenn gouvernement yi ont teg seen ndodd tey ils ont un premier filet de protection qui est un magistrat comme euh, moi, le garde des Sceaux et ministre de la justice donc loolu loolu rek euh, euh, mun na jur euh, mun na jur ay njeexital quoi pour les justiciables que nous sommes léegi ci yeneen poste gouvernement ministériel yi liñ ci seetlu mooy effectivement dafa mel ne y a une économie une économie il y a eu des des des des des réglages il y a eu des des des des des des ententes qui ont été euh, faits pour permettre nous réduire le nombre de ministères mooy maanaam da ngay gis la nga xam ne moo doon am mooy benn ministère ñu éclaté ko mu nekk trois quatre ministère bi hmm. yoon dafa mel ni dañu jëlaat loolu yëpp delloo ko mu nekkaat euh, comme ni mu woon mooy maanaam une orthodoxie gouvernementale hmm. loolu je crois que ça va permettre aussi aux différents titulaires de ces départements nous mën très rapidement jël seen repère euh, les les les décrets d'application de ces pour xool ku ci nekk ñu mission yi ñu la euh, direction yi ñu la assigné département yi ñu la division yi ñu et tout loolu tamit mu nekkaat un arbitrage et je crois savoir mm-hmm. pour que attente yi nga xam ne moom Sénégalais déjà xaar gouvernement bi rek euh, xawoon jour, jur tuuti parce que ku ci nekk di le gouvernement gouvernement kañ mm-hmm. donc les léegi il faut encore ñu xaaraat encore un nouvel arbitrage moy lan les décrets d'application yi nga xamné moy orienté ministère bu nekk voilà direction yi ngay am ainsi de suite ainsi de suite après nak buñ fa joggé nak soog a dem si direction générale yi ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen mm-hmm. mais liñ ci mëna japp rek moy que les différents tutelaires yi ñu fi wax nii mm-hmm. Euh, professeur euh, docteur Abdourahmane Diouf. Euh, docteur Cheikh Diandier, docteur Cheikh Abdourahmane Diouf ko déjà son xolé son centre qu'il a ici kat la. Mhm. voilà c'est quelqu'un qui a l'enseignement dans le sang il le fait tous les jours donc il est dans son domaine. Abdourahmane, Balla Moussa Fofana. Moussa l'a dit tout à l'heure livre bi mu bind rek voilà donc il est dans son domaine Comme le chef Cheikh également Comme le Yassine Yacine Fall Bon, elle est dans son domaine c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui elle a toujours été au niveau euh, des panels internationaux ainsi de suite donc je crois que dans une croix de transmission ba nga au Sénégal de Sénégal retrouver très rapidement son image y ñëw ci dernière bi dernière politique bi mais ci euh, côté limodo wax sank Moustapha muy poste une parce que comme le chef Cheikh déjà euh, moom xam lañ dénk finance ak euh, budget inspecteur des impôts et domaines la nekkoon na itam directeur de la programmation budgétaire euh, donc bobu itam dañ koy yokalé ci yenn ci poste yi euh, Abdourahmane Sarr man koy wax sank frère de même père même mère ak ki nga xamné déjà poste bu am solo la yoré won ci gouvernement. am Abdourahmane Sarr n'est pas le frère de Oulima ah, Sarr. donc donc on s'excuse. si c'est si c'est pas ça non mais je sais pas je sais pas ce que ça oui oui oui mais comme tel, la donc si ce n'est pas ça voilà c'est Sarr. voilà c'est juste des des informations yu recevoir.

ça veut dire quoi que ni programmation budgétaire la nekkoon directeur aussi. oui voilà. ça, ça veut dire quoi que ni li nga xamné mom la ñom euh, Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye di wax depuis ñu fallu ba légui même bien avant moy avoir euh, Pape Sané xaw mo ñu ko wax ñoom une économie endogène. endogène c'est-à-dire économie bo xamné ñi kay ñi kay ñi kay produire. mooy ñi nga xam ne ñooy doomu Sénégal yi. Mhm. à travers une assiette fiscale boo xam ne day gën a élargie. au lieu que Pape di fay Moustapha Diop ak Issa Tine lank ne duñ fay Pape Sané di supporté di jëpp ñoom ñoom loolu la ne dafay jur pression ci ñenn ñi bu ñëpp fayee moom mooy gën. Mhm. te ñoom jàpp nañ ne man dool dégg naa Diomaye wax na ko fi Issa daaw. Mhm. yaa ngi fa woon ci ci ci. salon d'honneur bi muy wax ne impôt mën naa financer lu bari Sénégal. Si nous respectons, nous fayee jaar la nous fañ ko jaar financer le bari cette préoccupation là tax c'est dans le domaine ba nañ mhm. liggéey kon euh, ay évasion ay amnistie qu'est-ce que ça va produire pour nous hein, mhm. mais parce que quand même Issa mhm. li nga le gouvernement Macky Sall très souvent que ni Abdoulaye Wade bi fii Macky Sall di jóge bàyyi na fi ñaata la ñu wax Pape 14000 milliards de bor. 14000 presque milliards. oui léegi su fekkee ne da fal gouvernement bu bees ñoom it ñu bëgg a liggéey dara ci wàllu infrastructure ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu xëyum ndaw ñi et tout su fekkee danga ko bëgg a tegaat ci di waat mais xamuñu fan lañ jëm. Mm. te leb googu ñu bari nañ yaakaar ne. du am benn incident ci li ñuy dunde ci li ñuy dund ñun mais lépp googu mooy tax gouvernement bi xëy na su bëggee yokk ay salaire du ko man parce que y la pression de la dette qu'il faut payer chaque année ñu koy woowee nan Pape le service de la dette xaw chaque année ñu war ko ñu war koo fay e-, exactement ce qui fait que yu bari duñ ko mën donc man li ma gis mooy ñoom li ñu bëgg xëy na mooy mënoo dund.

xam ne quand même du euh, reer ci euh, poste yi nga xam mom lañ leen di jox euh, amna keneen ku nekk ci coalition bi Diomaye 2024 déjà mi ngi confirmé. confirmer c'est clair maintenant que ni c'est son frère voilà mmh. Fa ci côté finance ak budget bi déjà ya yaa ngi ciy ñëw mmh. mais dafa melni kon ñom amna na lu ñuy bàyyi xel bu baaxa baax muy walum kom gi nga xam bokku na ci lu wara gëna def seen bilan bu dee bilan positif lay doon mmh. su dee leneen aussi ñaanuñu ko yàlla foofu la foofu dina ci bokk ci ciy jóge mais aussi li ñuy séntu muy pétrole ñu jël ko cëral ko biram su lay jóg xam nga euh, pétrole dafa dafa am lu am solo lu ci am. mooy koom gu baree bari moo ci nekk. ba pare ñii bi ñu nekkee opposition euh, parfois sama damay fàttali ne ñoom ñoo nekk au pouvoir léegi bi ñu nekkee opposition bari na seen discours lu ñu daan wax ci wàllu pétrole defe naa sax Ousmane Sonko bind na ci livre bu tudd Pape naan pétrole et gaz au Sénégal pétrole et Sénégal voilà donc kim koy ki koy dénk wala boog ñi mu koy ñi mu koy dénk ñoom moom ak euh, Bassirou Diomaye Faye certainement dañuy bëgg un nombre boo xam ne ñoo exactement gis-gis ci mbir yooyu. te effectivement ñoom ak euh, Birame soulay Diop exactement gis-gis ci mbir mm-hmm. parce que ñoo wax nañ les contrats là dañ mm-hmm. les contrats signé pour ba xam est-ce que ñoom ni la Sénégalais yi. Mm-hmm. na a et ça ça me semble extrêmement important. beneen bi li nga buñ commencé exploiter ak même buñu signé ba parce que y' a beaucoup d'argent argent ci ci rien qu'avec avec la signature des contrats. Mhm. suñ ko défé ba pare comme bi ci génn pap man lool moma soxal. cest dire fan lañ koy def. est ce que dañuy tan isa mhm. def ko ci santé. est ce que dañuy tan def ko ci économie euh, astafurlah def ko ci éducation réew mi est ce que dañuy tan comme comme disait Macky Sall def ko ci genn caisse pour les générations à venir. mais yooyu gouvernement bu ne ak ni gis-gis Ousmane Sonko am je crois que Biram Soleil il est bien placé mm. pour appliquer gis-gis réussite euh, nit projet bi exactement parce que ne mm-hmm. euh, euh, Ousmane Sonko mm-hmm. même bu El Diouf même gis-gis bi c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été même c'est pour certains avant le PASTEF. nekkoon ci benn syndicat liggéeyandoo am même gis-gis Sénégal quand ils ont créé leur parti ils ont écrit un projet boo xam même gis-gis bi lañ ci am. donc ñooñu c' est pas compliqué pour ñoom. ñu appliquer seen gis-gis boobu. Mm. mais man moom xaalis bi génn ci pétrole bi. pétrole bi yàkkamti naa ñoom ñu wax fu ñu koy def. fu ñu koy dugal. waaw da ci am solo. fu ñu koy dugal xëy na Birame Souleye dina ci ñëw déjà mm. parce que euh, député la ca assemblée nationale donc. dina fa jógee Birame Souleye war défendre euh, son budget à l'assemblée assemblée <laughs> nationale. parce que il faut wan ministre il faut ñu wan ko lu ñu mel. <laughs> la la femme là déjà Dakar la nekkoon parce que moom. inspectrice euh, régionale des sports de Dakar la yore woon ñu xam ne moom la yore woon. Mhm. Euh, par rapport ak si li ma jot ci xibaar. Ah, bon son militantisme effectivement son militantisme dans le passé moo tax ñu relevé ko fa mu nekkoon lañ ko jox far mu jiite ko muy sport euh, Pape Sané ci côté euh, ministère yi. muy yu nga xam ne maa ngi koy wax sànq Moustapha nekk na loo xam ne ci lañ war a mën a gën a compter ñoom. Mhm. ñu yore woon seen projet xëy na am na ñu ñëw après apporter ci seen touche mais muy fu mel ni finance ak budget mais aussi li a pétrole bu ñu ak yooyu ñu jox ko ko xamné c'est un homme du projet Biram Souleye waaw tout à fait xam nga déjà pour ñom pour ñu mëne sen seen projet soxlawul won à bien seen projet soxlawul won ñu occuper l'ensemble des postes ministériels donc euh, ñu ko doon wax fi je crois que Moustapha moy buñ ñu doon wax mhm. am na nga xamné il faut ñu jox leen de mhm. par leurs expériences et leurs expertises il faut ñu jox leen donc ci cas bobu euh, euh, Issa mhm. je crois que ci walu pétrole bi nga xamné dañ ci bind livre ñom euh doon la nga xamné dañ ko doon mës di kaas ne nañu signer contrat contrat baaxul c'est désavantageux vis-à-vis de l'état du Sénégal ak yenen ak yenen ak yenen mhm. donc tey ji bu fa défé quelqu'un de Pastef euh, euh, le le le l'Équateur de Pastef ñu dugal ko fa moy manam euh, effectivement mun nañu très rapidement candidat à la candidature voilà mhm. très rapidement mun nañu xam ñom fa ñu jëm benen bi moy ci benen walu bi moy par exemple li nga xamne ne moo sen sen sen seen moy droit de l'homme respect euh, des droits humains nangam sangam tay kañ fa que brimé nañ ko mm-hmm. étant procureur général mm-hmm. étant avocat général et tout mm-hmm. bon quand je dis brimé moy on a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues ba on a préféré bon lui a fait faire des choses qu'il a refusées. donc xamna dit donc tay droit de l'homme mais il va pas du tout accepter mom injustice biñ ko tegoon mu koy tek ay nit. waaw diko tek ay sénégalais aussi donc loolu duko sétane benen benen bi moy ay ay ay nawlay magistrat am yaakaaruma ne dina jël téléphone am di leen woo naan leen. Euh, envoyé moi Issa Tine en prison. yalla yàlla yàlla man leen ils ont ils bénéficient d'une double protection. Absolument. protection de leur métier. de oui. leur de leur statut. et protection de du ministre parce que tay kooku du nangou dara da nga xamné euh, je crois que y a quand rappelé rappelle les filles, euh, naan tok à quelques années de ma retraite di gàkkal sama carrière. Absolument. voilà donc je crois que tamit buñ ko super ministre du tax mu carrière mm-hmm. donc en tout cas li leer ba l'air aujourd'hui Passef et son projet ont toutes les possibilités pour aboutir à bon port légui nak lay modul am lay. bien sûr mais sur 30 sur trente euh, personnes yo xam mom lañu y a que 4 femmes 30 bon euh, xam nga man loi sur la ah, mënoon mënoon na ëpp man loi sur la parité déjà àndu ma ci mhm. waaw parce ah que je dis c'est une insulte aux femmes vingt six góor ñeenti jigéen waaw non non man loi sur la parité gëmuma ko man li ma gëm mooy justement euh, performance mhm. euh, effectivement mënoon na ëpp mënoon na ëpp mënoon na ëpp parce que bu dul Pastef mais ben, Sénégal regorge na de femmes de valeur de femmes de qualité yi nga xam ne am na ay postes yi nga xam ne mënoon nañ ko sax xaw a équilibré indi ko ba dix mhm. sur trente sax lu mun a nekk la. mais bu ñu fàtte aussi ne la la la deuxième personnalité du gouvernement c' est une femme. c' est une femme, une femme. oui Yacine Fall mais ci euh, côté euh, politique Moustapha déjà ñu ngi doon wax une large coalition boo xam ne moom la yore ñun bokk xëy na ñi def ni xamuñu ñan ñoo ci eh, allié ak ñen ñu ci far Pastef exactement. am na ci ñu euh, xam ne il va falloir regarder. voilà mais euh, ñi ñi ci gën a xam mooy ku mel ni docteur Tidiane Dièye ab docteur As Abdourahmane Diouf ak Moustapha Mbamba Girassi euh, ñeneen ñi ci des bëri na ci ñoo xam ne en tout cas Pastef la ñu nekk xëy ñi ngi xaarandi les directions yooyu noonu mais ci côté euh, nomination yi mën nañ ne kon Ousmane Sonko il veut quand même dem droit au but mooy ñu nga xam ne dina ko mën a coordonner normal mën a jàll euh, ndax déjà lundi la ñu def de service. non man dama dama jàpp ne très sincèrement que Ousmane Sonko li mu waxoon moom la def. parce que dafa taxaw mbuur. à deux jours de la présidentielle. mu ne képp ku yaakaar ne <coughs> suñu faloo dañuy séddoo yaa ngi nax sa bopp lu ñuy séddoo amu fi tey su fekkoon ne dafa teg un gouvernement mu gis 40 membres wala 50 membres alliés yépp nekk ci ñu ne gars yi ñëw mais parmi les alliés qui sont ministres kan nga ciy gis ne kii le nekk ci gouvernement bi soo ma il a été ministre de la communication d'Ablaye Wade ñëpp gis le rôle qu'il a joué euh, pendant que Ousmane Sonko était en prison moom ak ñoom Dambo Dieuk ñoom ñoom tout le groupe donc qu'il soit dans le gouvernement qu'il Moussa ne Moustapha à mon droit d'être dans le gouvernement mais si fait qu'on est dañu da pour neexal ñi nga xamné ñom la mhm. mais je nañ Abdourahmane Diouf à quelques jours de la présidentielle le rejoindre coalition bi. Mhm mais su Abdourahmane Diouf nekkee ci gouvernement bi mais c'est parce que. Sénégal gep ko ci yeewoon tay nek Abdourahmane Diouf nek na ministre mune la man na koo nekk. et j'ai vu beaucoup de personnes même euh, ab législative ñu don wax naan. li ñuy rêvé moy gis Abdourahmane Diouf Ousmane Sonko docteur Cheikh Diaye oui sur une même table de conseil des ministres. finalement mais mais même bi même bi Abdourahmane Diouf <laughs> nekkee dans dans dans le kii là une coalition nu mu ar ar ar, ar, aar kii. aar Sénégal waaw même boo waa passé bu ko attaquer da ngay dégg ñu naan mën ci ñun la waroon. waroon mais mais voilà donc quelqu'un comme ça. qui keneen koo xam presque seexam la. Euh, docteur Tidiane Dièye ñoom ñaar plateau yi daanaka. mais euh, mais bien sûr c'est des c'est des jumeaux. mais ñu bari car on est docteur Cheikh docteur Cheikh Tidiane Go Cheikh Tidiane Dièye moom Ousmane Sonko naroon def candidat. Mm-hmm. parce que beaucoup na ci ñi nga xam ne daf leen a wóolu. Euh, bul ne bari na ay génn yu daan génn à Ziguinchor ñoom ñaar ñoo doon ànd. autant da nga daan gis par exemple quand Ousmane Sonko faisait certaines sorties après l'épisode Barthélémy Diaz. su doon def yenn sorties à Dakar fii ñu gazé autant donc nous ko doon comme ak ñoom ku Fall par exemple mm-hmm. autant su daan dem à l'intérêt du pays tu le vois avec quelqu'un comme Abdourahmane Diouf donc qu'il soit ministre ça ça ne surprend mm-hmm. personne. que Sané ci côté boobu euh, finalement lañ waxoon def nañ ko mooy ñëwuñu fi pour pas ay postes. poste ah, sénégalais ñoo dul nangu sax ñuy postes. Euh, jusqu'à présent en tout cas ils respectent leur. promesses leur promesse. tout à fait moom laa c'est-à-dire le malheur pour Pastef. moi que ils ont créé une masse critique danse au Sénégal. Quelqu'un kenn mënu reproche? reprocher. que ñi c'est des gens. qui méritent d'être là-bas. Franchement, voilà. Awa a d'ailleurs que euh, Diop est, un, maire de Sandiara, il est allié, mais c'est un bosseur. Ouais. Non, c'est ce que tout le monde retient de lui. C'est le meilleur maire. C'est le meilleur maire du Sénégal. nomination, ay côté prix yu ñu def ak yooyu noonu moom moo gagné. voilà qu'il nous prouve qu'il peut être meilleur ministre du commerce du Sénégal. du commerce du Sénégal. et la route bi nga xam ne moo relié Sandiara ak euh, euh, fële nu mu tuddati. Euh, Ndiaga Niaw keroog rek fa lañ jaar déjà ñi ngi tase Caterpillar yeeg ñoom seen ñu nekk di. di defar tali fait noonu pour ñu lool ko te lu mu yàggoon a annoncé aussi. tout à fait donc l'essentiel mon moo madame je dis que Pastef a créé une chose mooy lan une masse critique dans ce pays. Ouais. masse critique bon euh, la vigie comme président Macky Sall masse critique la vigie pour que toutes les promesses le projet bi nga parce masse critique bon, moi, a à tous les moments pour wan leen ni que ça waaye doo leen wàcc yoon nii ngeen ko dara defé motax ñak patio bi je crois que c'est plus qu'une exigence ñom dañu mujjé dem ba daf ko une réalité daf ko sen momel té niñ ko defee ni je crois que war nañ ko defee nonu également au niveau des postes de direction et des autres postes yi nga xamné dans les jours à venir dañ ko djel gis nga isa buñ ko defee c'est seulement en ce moment bu nga bu ñu toogee jàkkaarloog sénégalais yi len voilà comme on vous avait dit on s'est donné les moyens vous nous avez donné les moyens d'aller là Les on est là on est prêt accompagne nous encore accompagnement ça va être un accompagnement avec beaucoup beaucoup beaucoup de conditions Il nak vraiment waxé que cette masse critique créée vraiment va jouer un rôle mm. très important on voulait vraiment prendre cette euh, ces nouvelles têtes yi nga xamné ñom lañu ñu gis euh, euh, ci le gouvernement d'Ousmane Sonko le général Biram Diop est un hein mm-hmm. oui Diop c'est ce que Ibrahima Ndiaye me dit notre mm-hmm. correspondant à Thiès mon ne ma c'est un Thiessois bon je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire un Thiessois <laughs> Bontin, un travailleur il a transformé l'armée avec beaucoup d'innovation mm-hmm. c'est comme le procureur Ousmane Diagne qui est Thiessois également, hein. également. Oui. oui procureur Ousmane Diagne qui habite d'ailleurs à Thiès à côté de Wolf Thiès oui il y a il y a même euh, xëy na ci la grande miette, ku may bind ne ma c'est la meilleure nomination ci liste bi def ah oui Birame Diop Diop voilà <laughs> di nuyu ki nga donc qui nommé il ne s'est pas il ne sait pas trompé c'est la meilleure nomination moom sax li ma xam ci yëpp ci Gaye était l'inspectrice régionale des sports à Dakar. Mais quand elle a affiché son appartenance à PASTEF, elle a été relevée de ses fonctions à Dakar pour être

c'était le samedi loolu laa ko njëkk a wax déjà pourquoi doo génn par rapport ak lim def yëpp il m'a dit que je suis un homme de l'ombre mhm. euh, félicita euh, en tout cas duñ leen féliciter là il va sortir de l'ombre hein. voilà il va sortir de l'ombre moom euh, Chérif Diouf Moussa kon ñu tàggatoo ci question boobu rek déjà Ousmane Sonko dafa fas yéene jublu ci mbir yi lundi ñu def passation de service ci ay kii yu bari moom déjà ak le premier ministre dinañ ko def beneen bi mooy secteur yi mu wax que ni faaw ñu liggéey ci bokk na ci justice reddition des comptes souveraineté solidarité unité avec Walum sécurité et économie. oui parce que là il y a, y a pas de, de de temps à perdre du tout hein. Euh, c'est qui ça euh, Alioune John il y a un ministre qui s'appelle Alioune John. il, habite du côté de Khombol. hein. Alioune John mbokk Issa la. peut-être ma xam ko en bon c'est ce qu'on me dit comme ça tu reçois tellement de de de qui. alors Pierre-Edouard qui nous dit. Yankoba Diémé le ministre du euh, du travail et de l'emploi et des relations avec les institutions et l'actuel président du conseil départemental de Bignona. on a dit tout à l'heure jël rek ci émission euh, la mi-journée ak opinion aussi. donc ah ok d'accord Yankhoba euh, Diémé Ibrahima Sy. Mhm. mon kam la bokk donc mooy li ma doon sànq rek xëy na am na ci ñun. El Malick Ndiaye a fait une formation en transport et donc il est il est il est un peu dans son euh, dans son, domaine. il, est du département de, Dakar. Et voilà. Alors euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, d'autre là j'oublie parce que a commencé de <laughs> en tout cas il y a trop d'informations le secrétaire général du gouvernement. l'eau, L'eau l'eau qui, est de Louga. Hein, mm est Louga. c'est le même lot dont je parle, dont mhm. on m'a parlé. Mhm. Il est le fils de euh, Modou mhm. qu'on appelle nous Oustaz Lo. Il habite le même quartier que nous, à Louga. Donc, euh, il est le frère de Moubarak Lo mu baragloo voilà ok euh, Cheikh Djiba bi lañ may rappeler euh, donc euh, moy liñu wax niki sank nekkoon il est il était jusque là directeur de la programmation budgétaire à la direction générale du budget mhm. et c'est un inspecteur des impôts donc mom xamna né assainissement bi wax ci walum finance dina ko def bu baxa bax baax Pape Sané ñu jaajëfal la ndax normalement xajal Bala Moussa Fofana de de Djurbel. Mhm. normalement moi, war aurait également affaire inondation yi hein. waaw assainissement. assainissement aménagement du territoire. Mhm. vers inondation yi voilà c'est effectivement ça le secrétaire général du gouvernement est l'actuel gouverneur euh, national de la BCEAO. Ni mhm. la kat ministre bi ñu dénk que ñi c'est est Maymouna de euh, de euh, moom la ñu dénk euh, jigéen ñi mu doon liggéey moom moo jiite les femmes de nga xam ne mooy xeex ak wàllum cancer rek yu ni mel ci nga xam ne déjà gis nañ liggéey bu am solo bu mu ciy def moom bi ñuy xamante mi ngoon foofu lay ca LISCA donc nekk na loo xam ne aussi dina ko war a xam parce que ci mbir yooyu yàgg na ci yëngatu muy taxawaayu jigéen ñi mhm. feebar yi leen di dal ak yu ni mel Pape Sané merci merci à vous aussi Moustapha jërëjëf de la santé xëy na mënuñu xam qu'on notre temps pour <laughs> voilà Aliou John, c'est un docteur planificateur spécialiste de microfinance il est de Bambey Aliou euh, de il y a deux ministres qui viennent de la région de Djurbel. Hein. Bala Moussa ak euh, Aliou euh, voilà merci de toute façon en regardant la liste du gouvernement ça aussi c'est l'enseignement que j'en tire c'est qu'ils n'ont pas trop tenu compte de l'appartenance régionale et ça c'est des équilibres sur lesquels il faut mhm. tenir compte mhm mais ça n'empêche pas un gouvernement de faire un travail. Parce que le ministre, il est ministre de la République, mm. il, n'est pas ministre d'une région. Et voilà, c'est ça. Et les députés vont, euh, ñoom représentation boobu ñoom lañ ko dénk. Mm. Euh, muy représentation wu dëkk yeeg yooyu noonu am région chaque département a un euh, nombre de députés. merci à vous Moussafa Diop et Pape Sané merci aussi à Amdi Sidibé Serigne Mketa, Keita Cheikh Tidiane Ndiaye ak Mamadou Thiam ak Ayobo Faye nous ñu nekkaloon du côté du palais de la République nous avons une liste de 25 ministres ak Juromi secrétaire secrétaire d'État euh, ñeenti euh, jigéen euh, nemmeeku nañ leen ci sport bi nga xam ne moom la ñu bëree bëri di wax jamono ji ku jigéen moo ko jiite mu di Khady Diène Gaye en tout cas di leen ñaanal bon réussite la santé côté Podor la dëkk donc mi ngi noonu kon Ibrahima si merci à vous dañuy xajal yi ñoom Mouhamadou Bitey équipe bu salon d'honneur ak seen ak gan gi nga xam ne moom la ñu fas yéene dalal mu di maître Ngagne Demba merci beaucoup xaar effectivement euh, listu gouvernement bi euh, pour xam li nga xamante ne ni ñu ñuy doog a fal ñu ngi koy mébat naka ak ñan lañu compter pour yegg foofu euh, li nga xamante ne nii nag daan nañ ko posé wu comme question ñenn ñi sax ndax gouvernement bi dina méngoo ak rupture maanaam ndax ni ñuy gisee gouvernement bi dina wuute mm-hmm. ak li fi daan am la question mun nañoo wax ne mooy oui. Mhm. Euh, puisque c'est un une équipe restreinte Si je prends juste rek exemple euh, ministère de la jeunesse nga avons ne dañ koo boole ak sport bu nekkoon ministre. Mhm. mais également pour ko ak. Euh, culture bi nga mhm. xamante également également ministère la woon. donc nous avons ne quelque part un nañu resserrer. Euh, donc du yem tout simplement ci resserrement bobu pour nga japp ne rupture amna mais également euh li liko mëna woné moy mooy ñi nga xamante ni nommé nañu leen ku ci nek danaka ci sa domaine lañu la euh la euh, nommé doo gis par exemple ñu né ki kat ab médecin la mom lañu ñu nommé ministère des forces armées. Mhm. do gis également ñu né la ap euh comment dire sportif le nommer nommé ministère de la justice. Mhm. donc ni ñu nommé poste yi ñu nommé. Mhm. jàpp nañu ne profil ba. Mhm. Euh, euh, leneen li nga également mun nañ euh, c'est la fin du temps des ministres auprès du ministre. la création du président Macky Sall donc nous devons comprendre ko effectivement ak nouvelle équipe bi gis nañu loolu soppeeku na. Mhm. leneen li nga xamante ne nii tamit mun nañ ko ci jàngat mooy euh, quelque part dafa Sénégal bu yàggul dara dañu nekkoon ci ay guute yu baree baree bari ñu jàppoon ne li ko waraloon mooy dafa am ay poste clé yoo xamante ne nii. Mhm. dañu ko dénk ñoo xamante ne dañuy par parloo donc ñu gis ne euh, wax dëgg yàlla yenn poste yi nga xamante ne nii mënoon na susciter quelque part ay jafe-jafe. surtout di wàllu justice surtout di wàllu intérieur gis nañ ne ña ñu ko dénk am nañu dayo ba matee nañu ko te jàpp naa ne également nekkuñu ñoo xamante ni dañ leen a xam ci langue politique bi ba mën a njortu ne ñu nekk ci parparloo mhm. wax dëgg yàlla c'est des personnalités yoo xamante ne nii mosuñu laale ak politique en tout cas ci liñ ci xam ku mel ni euh, euh, le général Tine Nous avons man de rendre hommage mhm. ndax responsabilité bi nga manifestation en mars 2021. Je à sa place nous ñu des dizaines de morts mais nous na yegg ci centaines de morts té lolu suñu ko dañuy responsabilité d'abord général Tinle, la mhm. ñu affecté ko Suisse ci circonstances yoo xamante ni quand même Sénégal yu bëri déploré woon nañ ko parce que dañu bàyyi ba à deux mois de la euh, de, de de sa retraite ñu jëlee ko ci euh, post bu mu occupé woon daal di koy yóbbu Russie. Mhm. ñu bëri jàppoon ne puisque deux mois moo ko dese woon waroon nañ ko mun a bàyyi mu yegg ca au mois mu recevoir honneur yi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla carrière ak fu mu jaar yëpp Euh, wane nous mérité malheureusement euh, loolu lañu gis <laughs> ma dinañ euh, point mais Ayoba mi remarque def autant J'entendais ministre d'état ministre de mais cette fois ci je l'ai pas entendu on dirait qu'il n'y a pas de ministre d'état secrétaire d'état plutôt ministre en tout cas nomination ministre ministre d'état euh, parce que ministre d'état une particularité il du dépendre trop hiérarchiquement du premier ministre mais chef d'état euh, directement dépend. cette fois ci il Pour pour pour man la a Ministère mhm. ministres yi dañoo sous la tutelle du premier ministre bi nga xamante moi, exécuter la politique du président de la république mhm. donc ak li biram doon wax léegi Nous vraiment nous avons askan en tout cas sur le plan sur le sur sur le plan du nombre c'est un gouvernement vraiment restreint avec 25 ministres et 5 ministres d'état Euh, donc pour man loolu moo loolu moo ëppoon solo ci li ñu doon xaar parce que tey jii bu ñu ñëwoon annoncé un gouvernement de 39 ministres quand même dina bett euh, dina bett nit ñu nit ñu bari. waxtu tamit ci poste clé yi nga xamante ni moom la ñu cité léegi muy intérieur ak justice dafa doon ñaari poste yoo xamante ni quand man dama mos a gëm ni waruñu ko. Euh, wanu ñu ci nommé ay nit ñoo xamanteni dañoo dañoo dañoo am péetam euh, politique donc ku melni Ousmane Diagne quand même euh, c'est une forte personnalité avec un fort caractère bo xamanteni régime yi nga xamanteni ni Ablaye Wade muy Ablaye Wade ak Macky Sall yépp jonjoo ak ñoom ba am ay ñoom ak am ak ñoom ay demale tout justement parce que ay conviction may ko woon muy exécuter ay ordre ministre de la justice yu mu jàppoon ni ay ordre politique la donc loolu euh, gis nañ taxaway bi mu ci am ku ci melni Jean Baptiste euh, général Jean Baptiste gis nañ tamit taxaway bi mu amone ci les événements de euh, mars 2021. mille donc mu don ay ñaari postes que yo xamanteni man mom la gëna japp ci ci li nga xamanteni mom moy mom moy nouveau gouvernement bi maintenant. Hmm? ak général Birane Diop ça c'est important parce que ñu armée bi jox ko général tamit c'est c'est c'est très important amul coloration politique et tout donc c'est les postes yo xamanteni vraiment. Euh, ñu jox ci jox ko ñoo xamante ni dañoo tëddee njaaxaanaay amoon na amoon na solo trop maintenant nag le reste mooy ah, peut-être xam naa après euh, suñu suñu gan bi dina ci ñëw maître maître Ngagne Demba Touré xam naa du ñàkk ci biir Pastef mu am ñoo xamante ni peut-être am nañ ay frustration parce que boo xoolee euh, gouvernement bi day mel ni Pastef bariwuñ ci bariwuñ ci bariwuñ ci bariwuñ ci trop donc après loolu xam naa nag dana doon benn euh, linge boo xamante ne seen biir euh, lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy laver euh, mais en tout cas liñ digge woon ak askan bi moom ba fi mu fi mu fi mu toll nii peut-être peut-être def nañ ko léegi nag Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Sonko li mu wax mooy gouvernement de résultat lañu la ñu bëgg uh-huh. gouvernement de résultat mooy am na ay yu ñu fixé ñi nga xamante ni ñoom lañ fa teg maintenant nag d'ici un peut-être délai bi ñu leen di jox foog ay résultat am pour vraiment jafe-jafe askan yi ñu jéem ko ñu jéem saafara ci loolu lañ leen di loolu lañ di xaar euh, ba ci kanam ci loolu lañ leen di jugé incha allah sunu sunu ministre rek ci côté boobu euh, muy Alioune Sall Euh, nga xamné ci côté télécommunication ci lay yëngatu ca France euh, nékkone député parce que dans un mois la Ousmane Sonko la leen euh, le président Diomaye appel pour ñu mëna joggé ci seen poste déjà moom sax naturellement daf ci wara joggé parce que mënul mënul cumuler les deux côté presse bi parce que xam nga dañ koy bolé benn bi moom c'est son domaine pur et dur communication télécommunication voilà muy télécom yeeg ñom seen côté numérique beeg yoy mais côté presse beeg yoy est-ce que nékkone la doon xaar côté presse waaw parce que moom. Euh, euh, pour Alioune Sall pour communication bi. ngay wax moy côté moy côté presse donc am nga d'habitude ministre communication dañ koy dañ koy dañ koy dëndaleeg télécommunication dañ jël yépp def ko ci def ko def ko ci benn. je pense que euh, ak fiñu ñu ministère bi ñuy jógee quand même. nga xamni moy Moussa Bokar Thiam nga xamante mom dafa yaakaaroon ni quand même <laughs> internet bi ben interrupteur la bu mu nekk yor bir négam xam ni yu xëyee rek. quand il se lève du pied gauche mu ni tey Sénégal bon li ma gis nak neexuma xaaral ma coupé. Euh, je pense que bu ñu jógee ci loolu ñu fal benn ministre ak ku mu mën a doon nag ak péete ak donte am na péete je pense que war na bàyyi xel lu bari bari bari bari ci li nga xamante ni prédécesseur am mom la nekkee woon te ñu ko te ñu bëri ñaawlu ko aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Mhm. Euh, donc comme c'est son domaine. c'est son domaine ñing ci xaar nak quand même mu am mu indi ci ay mu indi ci ay réforme yu am solo. bien sûr parce que dañu nekk ci ère digitalisation. on veut plus de liberté. mais aussi on veut plus de voilà comme niñ ko waxé ère digitalisation lañ nek mhm. ñu yembalal sénégalais yi. Mhm. ba seen dundin. liberté bi pas euh, gën hein. yomb ci walu ci walu aussi bien administratif te def na Euh, rôle la te dinañ ci ci. d'accord dinañ ci gën a xuus. Euh, ah, ci biir waxtaan bi pas anarchie. poste poste poste par poste. loolu moom dama koy wax. quatre femmes tamit. non foofu kañ yow bàyyi rek. parité gi moom ah. bu te teg si euh, buñ ñëw buñ ñëw naan ay non parce que euh, c'est pas c'est pas pour. non man je ne parle même pas de parité mais il y a yoo xam ne à nañ leen ngañ dema si point boobu dama la ciy interpeller avant may bala ngaa jox ngañ bala ngaa jox ngañ bala jox ngañ man dama am ñaari ministère yoo xam ne moom a gënoon a ñor ci gouvernement bi. muy culture euh, communication ak culture. communication du ci wax mhm. mais culture dañ ko rattaché ak sport mhm. ak jeunesse alors que culture ku ne xamna am ci réew mhm. culture dafa nek lo dafa am ci réew mi peut-être réussir mais alerte la rek pour ñu xel ci bi nga la culture am ci doole bi nga la culture am ci réew ci doole bi la culture am développement maintenant maintenant maintenant nañu ñaan direction bi ki koy yor ki yor direction culture bi nañu ñaan mu nekk koo xam ne te dama leen koy ñaan nañu ko xoolal bu baax muy koo xam ne mun nañu ko defaral normal ba nga xam ne structure yi ñu am fii yépp li may wax di à chaque fois maa koy wax parce que je reçois des choses yoo xam ne peut-être xëy na man dañ ma yaakaar ñi nga xam ne ñoo nekk ci culture bi dañ ma yaakaar ci yu bëri moo tax ñu may <laughs> envoyé message bu dara amee parce que man maa leen ko mun a waxal donc ko kooku nga xam ne moom la ñuy tànn direction ba nañu dimbale ngir yàlla mu xoolal ñu baax li muy def lan la ensuite nañu xoolal suñu structure ñaar yi nga xam ne moom la añu grand théâtre moom ak Sorano nañu ko xoolal parce que loolu daf ñu ñor bu baax dinaa wax ñu consulter la waaw non jarul sax ñu may consulter mais xam nga man yow neel waaw rek d'alerte laa avant may ñëw ci Aliou Sow ak Thioro tey euh, ñu ngi ah? wax euh, ministère yi mais également dafa am yoo xamante ne Mame Khady soulevé na ko léegi moo di euh, le nombre de femmes 4 sur 25 ministres. waaw non da nga ciy yokkaale secrétaire kay. 30. 30 ministres. 4 30 membres du gouvernement. du gouvernement voilà 30 membres du gouvernement. ñu jël 4 rek jox jigéen bon bon gis-gis la te Jigen ñi aussi bu leen euh, seen gis-gis ak gori yi nga xamante ne am nañ ci beneen gis-gis mun nañu ko wax mais man ci li ma jàpp. sama mm. xalaat laay wax euh, mun nañu euh, accès commentaire bi sur des choses beaucoup plus substantielles ci rôle ministère mhm. ci est-ce que am nañu compétence. est-ce que am nañu intégrité. parce que tay Sénégal li fi nek ci ay jigéen yépp mo xam ay personnes âgées lañ mo xam jigéen yo xamné ay femmes adultes nañ mo xamné ay jeunes filles nañ. Mhm. ñom ñëpp ku ci nek dafa am lu lay impacté ci lo xamné c'est transversal dafa laal tous les ministères. par exemple jigéen bi am 15 ans di jàgg buñu ñu un bon ministre de l'éducation buy liggéey ba éducation bi avancé da ciy comme ni góor bi amee 15 ans di yëg boppam jigéen déplacé wu di transformer ay fruits ak ay légumes de Casamance wala mu nekk dans la zone des Niayes bu secteur agricole doxee da ciy gis bopom comme góor bu ciy yëngatu li muy gisee boppam yéen ci communication. Mhm. ministre de la communication et des télécommunications ci li su liggéeyee ba secteur am avancé da ngeen ciy donc vous avez un sax dans l'attelage gouvernemental le ministère de la femme Amatoul, li am ministère de la famille et des solidarités. su Si vous France da France, vous ministère de la famille vous ko fonk. code c'est l'un des codes les plus les codes fondateurs les textes juridiques fondateurs au Sénégal le code de la famille. 1972 pendant 52 ans qui l'a ko. pourtant il y a deux tendances il y a une tendance conservatrice du Japonais, code de la famille dañu ko war a euh, gën a méngaleeg suñu cosaan ak suñuy am tendance boo xam ne moo gën a progressiste bu code de la famille dañ ko war a moderniser ci lu jëm ci àq ak yelleefu jigéen le ministère de la famille rôle am ci ban politique def pour famille parce que c'est la cellule de base pour la société da koy poursuivre donc ce qu'il faut comprendre nekkatuñ dans ce cantonnement de femmes et ni jeune jeunes yee nombre de femmes ci ministère ou wala nombre de jeunes ci ministère. je donne un exemple yéen jigéenu Sénégal est-ce que satisfaire am satisfaction ci nguur yi fi jaar ci seen taxawaay ci je pense que l'écrasante majorité des femmes vont me dire non parce que beaucoup nañ ci processus bu indi alternance ci élection bi passé et pourtant nombre de femmes ministres ñoo ëppoon ci gouvernement yi weesu kon li substantiel c'est c'est pas nombre de femmes ministres on aurait souhaité moins am plus de femmes d'accord nañ ci mais li substantiel le secteur bu nekk te jigéen di fa góor di fa yëngatu nañu fexe ba mu développé bu ko defee sénégalais yëpp ci seen bopp. loolu laa bëggoon aborder ci question boobu. réductrice. une première une première ministère des sports au Sénégal aussi. c'est une question mm-hmm. gouvernement bi également répondre na déjà attente ñi nga xamantene ñoo di askanu Sénégal ci pour euh, euh, développer ce Sénégal là. loolu rek déjà rupture la awa mhm. euh, ni nga xam ne noonu la ñu wàññee gouvernement bi ba mu toll ci euh, ñaar fukk ak juróom mhm. ñuy wax euh, yeneen ci ay secrétaire d'État te yaakaar naa ni ñoom loolu la ñu defe woon diggee seen diggante ak askanu Sénégal amaana bu ñu defoon leneen ñu ne du yi ngeen waxoon te lu mën a nekk la parce que ci gouvernement yi jàll dañ ñoo mës a tàmmal que Euh, séddoog pàccoo il faut mu am ñu euh, xar-xaral ministère yi ku ci nekk ñu dugal la euh, ci post boo xam ne ni yaa ma neex laa ak bumbaay mm. ak leneen loo mën a indi ci wàllu politique ak yeneen mais soo gisee ni ñu ko tëggee da ngay xam ne kat wala nga xalaat ne xëy na rupture bi ñuy wax ñoom loolu la ñu respecté te yaakaar naa bu ñu jëlee ci yenn dëkk yoo xam ne ni sax dañu naan xëy na du du du ñu royukaay ci ñun ci yenn yi mais kan tam mën nañoo xool ci ñoom ci yokkute ci wàllum li seen gouvernement di liggéey. Mhm. Euh, France tey jii 60 millions d' habitants ñu am tey jii 35 ministres ana euh, États-Unis 50 euh, états ñu am tey jii 7 ministres. loolu yaakaar naa ne bu ko Sénégal tey jéemee ci ni ñuy doxalee ci côté rupture. lu ñu mën a xaar la beneen bi mooy. ñaar ci ay nomination daf ma euh, gën a dalal sama xel ci wàllu rupture bi ñuy wax mu di euh, euh, Jean-Baptiste Tine ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Diagne mm. parce que ku ci nekk rek wane na courage ci li nga xam ne moom mooy domaine bi mu bi mu jóge ak lam ca doon def boo jëlee le cas de Ousmane Diagne mm. courage bi mu wane ci li nga xam ne moom mooy dossier Mame Mbaye ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mm. daf lay wan ni kooku ki toog ak Macky Sall mi nga xam ne dafa yoroon loxoom bu diis di dóor te faalewu ko ci jamono jooju faalewul ay nomination faalewul alal ju tegu faalewul leneen ak leneen tey jii du ay Ousmane Sonko lay sëggal wala muy sëggal Jomaay Fay wala keneen euh, xel mën naa dal côté boobu ñu ñëw ci li nga xam ne ni moom mooy nomination wu euh, euh, ministre des forces armées caserne yaa ngi yëngu ñu ngi yëngu bu baax a baax ci information bi ñu ko tabee ñu ngi yëngu bu baax a baax ñi nga xam ne oui mi ngi yëngu dañuy kontaan mi ngi kontaan mi ngi yëngu ak contentement parce que lii lañ doon xaar mm-hmm. les hommes qu'il faut à la place euh, aux places parce que loolu mooy rupture bi nga xam ne moom lañ doon xaar euh, ñu ñëw léegi ci maaxat yi mi ngi ko doon wax jigéen ñi bokk na ñoom ñu parité jigéen laa mais dama ne euh, dañu jóge fu metti ñëw ci loo xam ne nii dañu war a faire face ak au sénégalais seen demande euh, nekk demande yoo xam ne xaaral ma ñëw awa demande bi nekkoon demande boo xam ne lu lu lu lu yaatu la lu rëy la. xaar bu rëy la waaw xaar bu rëy. Mhm. nee naa la euh, info ci information euh, palais fan yi ci li ci doon jaabante ci ay CV bari na. ci li ci doon jaabante ci ay CV bari na. Mhm. est-ce que du compétence bi ñu doon wax ak xëy na jaar jaar ci loxo bu set ak yenn moom moo indi tey jii. Euh, xëy na ñu nommé ci quatre femmes man foofu laay waxee beneen bi mooy euh, bu ñu nee euh, vingt neuf ministre des sports jaar na fi ci ay nguur yu ute ñu ne kat ministre des sports ñu ngi koy njëkk a nommé ci jigéen ci ci gouvernement bu yees bi dama naan foofu xel mën naa dal parce que xam nañu ne jigéen am na yenn compétence yi te am na loo xam ne nii moom lañ leen di xaar te bul fàtte cumul bi ñaata ministère lañ ko tegaleel ak ministère bu ci nekk ay problème am te Khady Diène Gaye euh, Khady Gaye Diène autant pour ma ñu fàttali ne moom ci euh, domaine sport boobu ci la yëngatu inspectrice la woon Dakar gi la nekkoon après lañ ko muté yóbbu ko Kaolack euh, mu nekk fa ci domaine am déjà Jatara da ko da ko da ko da ko sanctionné yóbbu ko Kaolack waxal loolu mm. muy gaynde ay Yacine Fall la ñuy xam ak ñii mais gaynde la te ci kanam dinañu xam. incha allah Jaxar la ko sanctionné woon yóbbu ko yóbbu ko Kaolack mu fay def lu lu am solo mm. te bitee maa ngi lay wax loolu ci wàllu culture boo duggee euh, euh, euh, ci li nga xam ne moom mooy ci domaine am ci wàllu culture di nga xam lan la def ak lan ak lan ci wàllu culture donc xel mën na dal

Euh, wa mun ci rafet njort mhm. euh, ci euh, ñetti ka wala ñeent yo xam dama ko dama ko gis ma xalaat ni xëñ mbir yi mën na am mais bala bala ma yegg fofu dama bëggoon rappeler que un ministre délégué pour ñu xam et un secrétaire d'État c'est exactement la même chose un ministre auprès et un secrétaire d'État gagne je pense que ni loolu difficile c'est exactement la même chose parce qu'un secrétaire d'État et un ministre délégué rarement sax la ñuy conseil des ministres tant que euh, amul euh, lo exceptionnel lo xam lañ un dossier important jour bobu ci conseil des ministres un secrétaire d'État est toujours rattaché à un ministère c'est d'une évidence donc c'est exactement la même chose Tu vois le nombre ministres tu vois le nombre de ministres c'est bien euh, tant que euh, euh, nous restons restreindre constituer quelque chose de positif pour nous liguer de manière efficace il n'y a pas de problème le nombre ça n'a pas véritablement une certaine importance Si vous avez les européens les occidentaux en général du avons bari ay regardez le cas de l'Espagne l'Espagne fait pratiquement 45 à 45 46 millions d'habitants l'Espagne a 14 14 ministres donc euh, euh, je crois que ni comme on est des pays à construire effectivement selon politique par rapport à la rupture par rapport à certains changements que tu peux faire entre 30 à 40 ministres ou 50 ce n'est pas véritablement ce qui est important Et nous avons 10 ministères aussi euh, tant que nous avons 10 ministères nous sommes efficaces pour liggéey avec comme nous avons ko des secrétaires d'État qui nous accompagné donc forcément ce serait je dirais pourquoi pas parce que de toute façon n'importe comment c'est un début et début beaucoup ci les xaar euh, dégg nga maam euh, bi meuna meuna meuna meuna meuna meuna ci sénégalais euh, que que ce soit par rapport à, à l'employabilité que ce soit par rapport au train de vie de l'État à location et surtout par rapport à la justice la justice awa mm où nous avons un monsieur justement en 24. oui quelqu'un un monsieur boo honnêtement il faut euh, lui reconnaître cela par rapport à sa trajectoire de vie professionnelle. Bon, aussi, aussi qui ministère des forces armées ce général là je l'ai suivi. et je ne voulais pas rentrer dans les détails mais on l'a on tout suivi. c'est un monsieur qui est euh, de qui est extrêmement intègre Quoi intégrité là. Bon, aussi qui... Euh, le ministère de l'Intérieur, euh, euh, très, très, très honnêtement, je crois que ça, ça, pourrait, ça, pourrait être convenable pour, pour solo au jour d'aujourd'hui nous comme euh, euh, le ministre des Télécoms, que c'est un monsieur qui est extrêmement brillant. Hmm. Certainement, mais le jour où effectivement il y aura le bordel dans ce pays, wala dafa pour euh, déstabiliser les institutions ak si ce serait nécessaire pour que nous ñu couper internet pour la sécurité du pays bu boobaa ngeen di non mais Aliou allez-vous, quand même <laughs> non non ben quand même non non déglu ma déglu me bu quoi. si ma paree continuer parce que moi je dis ce que je pense. non non nous défendre à coupure internet. qui ay soit disant non laisse-le terminer. Après, euh, tu apportes la réplique s'il le termine s'il te plaît. mais il faut pas me couper hein. me me tout. Les Les gars, le monsieur là le nouveau monsieur ministre là. là.

anarchie ne veut pas dire anarchie donc forcément c'est pas parce que liberté liberté liberté femme a une limites il faut que nous jàngal aussi suñu nous réew yi liberté quelles sont quelles sont nos limites est-ce qu'on a le droit d'insulter nos instructions? est-ce qu'on a le droit d'insulter Bassir Diomaye je serai totalement en porte-à-faux avec ce genre de comportement là parce que c'est le président de la République est-ce qu'on a le droit donc suis président dañu war couper d'accord Yo niveau a nga ci sama non quand même des choses qui sont liées à la sécurité du pays. le jour où ce ministre là qui vient d'arriver que je ne connais pas dafa moi je suis profondément républicain. jour boobu mu wara décider quelque chose parce que mon loolu le avec son patron de président de et de ministre et de premier ministre bu il n'y aura aucune raison pour mu bañ ko parce que nous lañu jox gi évaluer la sécurité du pays. par rapport à certaines décisions. par rapport à la ñun xamuñu liberté il faut qu'on arrête liberté liberté y une limite dans une liberté. d'accord on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut dans ce pays là. d'accord euh, et surtout parler de l'intérêt général Awa. parce que ça c'est important le débat qu'on vient d'ouvrir euh, d'ailleurs wone importance bi nga ministère ministère de tutelle muy ministère de la communication tay di euh, suscité nos déjà par rapport à internet mais par rapport également digitalisation fi digitalisation, ñu boole ko ci li nga ministère est-ce que c'est pas trop balèze est-ce que nous ko woon euh, écarter également pour mettre plus l'accent sur l'informatisation ou d'abord, parce que sans cette question c'était euh, très spécifique à affaire jigéen question aussi c'est très spécifique la communication bi mhm. il faut partir du général du particulier cest à dire si avons un attelage gouvernemental bi ban un nañ ciy def première bi moy un gouvernement comme restreint ou contracté mhm. parce que rappelez-vous, le dernier gouvernement bi ñu am le 8 mars c'était avant l'élection présidentielle 6 jours avant l'élection. Nous avons regroupé les ministères parce que nous avons nommer les ministres yu Nous avons 34 ministres mais en réalité la structure bi nga ne conservé depuis lu yàgg mooy 39 ministres bu ngeen dolle delloo le gouvernement le 11 octobre 2023 39 ministres la avons 34 ministres avec seen portefeuille et 5 ministres auprès de ministres wala nga ministres délégués. donc aujourd'hui si on passe de 39 à 30 ministres et secrétaires d'État moi, rationaliser les 9 ministres si on passe de 34 ministres avec portefeuille 25 ministres avec portefeuille moi, rationaliser les 9 ministres donc loolu moi, rationalisation de l'administration ça commence d'abord par le gouvernement Je vais vous donner un exemple. patent Si ngeen avez énergie ak mine dañ ko bolé énergie ak mine désormais dañ ko bolé parce que l'olive est ay ressources extractives ah, souvent c'est le même modèle contractuel soit c'est des contrats de concession ou des contrats de partage de production et ben même positionnement stratégique nañu am par rapport ak réew limu am ci ay ressources stratégiques muy or bi muy zircon bi muy fer bi pétrole bi gaz bi ñu un un maximum de revenus mais dans le domaine du contenu local sénégalais yi ci liguey il ci seen bopp mais mu générer aussi ay emploi bu ngeen jëlee ministère emploi ak travail dañ koo boole lu yàgg emploi dañ ko volé boole ak jeunesse alors que le président Ousmane Sonko na il était contre la catégorisation de l'emploi emploi des jeunes c'est politicien emploi rek la bu industrie bi doxee agriculture dox élevage dox pêche dox mi formation professionnelle jouer son rôle insertion day am am donc, on, est passé du stade de la catégorisation de l'emploi vers une, une, optique pour xam emploi dañ de façon générale Pour nous, emploi ak travail mais dañu koy xam nga emploi nañ ba am travail mooy boo amee naka nañuy les ba say droit ñu respecté ko nga syndicat say contrat de travail yi nga am nga ñu CDD joxé nga CDI mais aussi nous jëm ci boy liguey l'assurance assurance yi nga wara am euh sa souscription ci obligation sociale mais pour retraité la sécurité sociale donc transition entre l'emploi et le travail nit ki bi ba retraité donc cette fois-ci da ngay une cohérence axiologique nga jël euh, industrie ñu bolé ak commerce dañ doon wax transformation industrielle ou le renouveau industriel cette fois-ci nous jël industrie boole ko commerce parce que dafa am ñetti secteurs yoo xam ne ñun économie mon secteur primaire agriculture pêche élevage mais nous nous voulons jëleewee ci nature industrie mooy mais le secteur tertiaire est assurer la commercialisation donc si on euh, fait une articulation entre l'industrie et le commerce il y a une jonction qui est très cohérente nous voulons tout le secteur du transport Le transport terrestre et infrastructure le transport aérien le mm. transport euh, ferroviaire le véritable cap c'est de miser sur la sur le transport ferroviaire pour économie de mais aussi pour développer l'intégration sous-régionale avec les Africains. yi mm-hmm. nga train donc transport c'est dañu secteur qui est je pense que c'est une rationalisation qui est très louable le ministère de l'urbanisme nous bolé ko ministère euh, des collectivités locales parce que dañ doon l'aménagement aménagement du territoire ak collectivité locale après ñu jël urbanisme def ko ministère bolé ko ay cadre de vie ay hygiène publique etc. cetera wala habitat cette fois-ci urbanisme nous nañu l'aménagement ak aménagement du territoire ak collectivité locale parce que naka nañu war occuper espace bi fan moy zone industrielle fan zones zone forestière fan moy zone touristique fan moy zone bi nga xamantene infrastructure ñoo fa à travers le domaine public euh, de l'État, parce qu'il y a le domaine public naturel mais il y a le domaine public artificiel moy fi état di tabax tam ñep ñëpp comme tali yeeg yoyu naka nañuy occuper sol ça c'est l'aménagement du territoire te y ñan ñoy bras état moy l'État qui est présent partout te lolu pan yi la déconcentration moy gouverneur yi préfet, yi sous préfet yi les services déconcentrés de l'État. Il faut dem fekk fa ben perception il dem fekk fa centres euh, centre des services fiscaux faut dem fekk fa des école wala ben IF, wala ben inspection d'académie moy l'État qui est présent partout mais il pan bi ëpp solo moy les collectivités territoriales donc quand on parle d'aménagement du territoire ñan ñoo fep ci État y a les services déconcentrés mais il y a les collectivités locales te ñooñu ñoy sièges yi nga xamante ne la askan wi di à travers des conseils municipaux donc boo jëlee collectivité collectivités nga boole ko ak aménagement du territoire boole ko ak urbanisme en réalité mooy xam nga fi nga jëm ñu bolé, jeunesse sport ak culture yaakaar naa bii nañu gën regrouper ay ministères yu bari ci ben ministère je pense que Mame Birame wax parce que les politiques de jeunesse dans ce pays dafa am ben rupture bo xam dafa wara am wax naa la jeunesse ak emploi nañ doon bolé. te lepp luñ doon def ci politique d'emploi pour jeunes li ci ëpp ay 7000 jeunes nañ doon wax ñom la ANPEJ ou wala product accompagné pour ñu emploi Les ci ont mis sur l'auto emploi mais cette fois-ci ban gis-gis nga am ci ndaw ñi culture du musique cassette, te musique lu am solo la l'art plastique est là le livre est là donc vous né nee jeunes yi nak ngay def ba culture si vous bu ngeen France ngeen gis le gouvernement de Gabriel Attal bi mu nekkee ministre de l'éducation dafa insister ci ñu le théâtre à l'école kérok man kay wax suñu meeting mbour bi quand on parle des jeunes souvent dañuy raté euh, ni ñi yaatalee mbir yi parce que ñetti jeunes ñu am dafa am jeune bo xamné c'est un jeune enfant qui juddu ba ba muy amé 15 ans ñoñu xam nga ñaata nañ ci population Sénégal 39 pour cent juróom benn fukki sénégalais yo jël ñent yépp ils ont moins de 15 ans wala 15 ans au plus ñoñu bo fexé ba à travers ministère de l'éducation ak ministère de la culture ak ministère de la famille ñu jox leen seen cër mais ñu def ci ñom protection bi ñu wara a def ci ñom lolu liggéey bu am solo la li ci tek nak moy jeune adolescent yi jëm ba 17 ans 15 ans 16 ans 17 ans nous, ñu ngi tollu ci âge de la puberté à travers les canaux de communication à travers les nouvelles technologies nous ñun ban ban gis-gis nañu am suñu ndaw ñi nan nañ mel après nga dogo dem ci jeune yi nga xamné légui am nañ 18 ans tamay wax né ñooñu ay pa lañ lu tax ma ne ay pa lañ moy pa bi am 90 ans bu yoré carte d'identité voté yow nga voté yow jeune bi am 18 ans so défé bàkkaar ñu bindal lako mom bu défé bàkkaar ñu bindal ko ko sur le plan pénal yeen ñaar yeen a responsabilité pénale manam boo defee même infraction même sanction yi mën nañ ci fekk kon kooku mag la jeune bobu nonou luñ fexé luñ wara def moy bu wesso cycle fondamental ba paré formation professionnelle wala mu dugg université ñu formé ko li ci dess nak moy jeune adulte yi moy souvent jëm 25 30 ans jëm 35 ans nga xamné buñu bolé pan 0 ba 35 ans ñun ñoy 76% population bi hmm. ñent yo jël yi les politiques de jeunesse sont des politiques transversales la participation citoyenne c'est le les jeunes wara pour beaucoup ci effort de développement te le président Ousmane Sonko wax na ko dafa am ñaar yoo xam ne weesu na te boo benn bi am beneen boo xamante ne dañ ko dañ ci war a insister am na loo xam ne dafa weesu fal président di ko bàyyi naan élection laay xaar pour sanctionner ko bu dee def na lu dul yoon déedéet suñu bët da ko war a teg ci moom di alerter parce que la démocratie elle n'est pas qu'électorale mmh. deuxième bi des bi weesu ci àdduna mooy fal président de la république tok di xaar est-ce que dina réussir wala dina échouer ñun suñu génération dañu am une responsabilité historique participer à l'effort de développement loolu moo tax ngeen gis campagne de cette satellite yi jeunes yi def mm. te ñu koy rafetlu bu baax a baax di leen jox dig ne à travers la JPS que je dirige dinañ accompagner l'État du Sénégal le gouvernement du Sénégal ci lépp lu ñuy sumb te soxla ci participation citoyenne dinañ leen wax suñu gis-gis te toutes les 46 coordinations départementales de la JPS que je dirige, toutes les sections communales de la JPS sont prêtes à travailler avec le gouvernement du Sénégal pour politique de développement à def jeunes def participation citoyenne donc lolu moy côté jeunesse sport pas du football cassé. Donc, ñun bëgg nañu dem jël coupe d'Afrique bëgg dem coupe du monde sori mais le développement du sport à l'école tay est-ce que dañu wara miser sur nawetaan wala dañu wara a la ci école yi compétition entre écoles yi def ko mu nekk culture d'excellence pour nga def culture les arts martiaux est-ce que état bi war ko accompagner pour parce que dafa am lu muy def ci discipline nit am lu ñuy def ci ci jikko ci doomu aadama donc bu ñu jëlee ministère yooyu articuler ko bu kenn jàpp ne dañuy dajale rek pour ne ministère yi dañ ko restreindre mais dafa am benn politique bu leer benn vision bu claire bu ko sous-tendre. liñ ko jalal bëriwul. lu ñu ko. jalal bëriwul. bëriwul.

benen bi muy culture ñom bité ak mbokam yi nga xamné ñom itam bari na lu ñuy kii hein, du lu du lu oui un hein, secrétaire d'état pour la culture oui oui je sais oui c'est que xam nga ministère également ma yobanté la benn mo di euh, yi nga wax né pour la jeunesse également ya nga wax JPS nga jité mais comment faire également pour fédérer le Sénégal parce qu'il y a des jeunes qui ne font pas de la politique qui ne font pas partie de votre c'est ça loolu moo tax ñi rafetlu initiative yi amone ci secrétariat yi bari na des responsables de PASTEF qui m'ont interpellé pour me dire que lolu yéen GPS yéen ko wara yor man len dès depuis début semaine lañ ci attendre pour def ko mais on a insisté sur ñu bàyyi élan citoyen bi. oui. tàmbali ko après ñu ngi ñoo accompagner xam lu ñuy bañ mm. bu ñu ko defee yëfi parti politique ak yëfi mouvement de jeunes parti politique rek mhm. yeneen sénégalais yi téye seen alors que ñun dañu war a nekk ay partie prenante mhm. am na ay plateforme yoo xam ne yàggoon nañ ay luttons contre l'indiscipline au Sénégal seen rôle ci loolu yàgg na mhm. est-ce que da jàpp ne parce que yaa jiite mouvement aux jeunes parti yow rek yàgg na légitime pour jouer loolu boobu je pense que c'est le c'est le moment de faire une synergie populaire même quand bu APR nous bëggee accompagner ñu ci nous sommes prêts et nous sommes preneurs mm-hmm. li ma bëggoon wax ci le ministère yi xam nga ministère c'est une fonction de coordination c'est ça les directions la un rôle les directions générales la c'est un rôle mm-hmm. souvent les structure où état comme par exemple agence. bu ngeen jëlé emploi xam ñu wax ministère de l'Emploi et du travail. Mhm. mais li ëpp ci politique d'emploi du ministère boobu mo koy def. xam koy def lu programme. moy grande agence gouvernementale pour l'Emploi et le travail nga xam structure état yi doon yëngatu ci emploi yi ñu yëpp ay ay ay ak ñu ñu grande agence gouvernementale pour l'Emploi et le travail le programme gunge nga xam ne jeunes yi am formation ba pare war a insérer wu am programme bu ñu programme gunge le fait que nous ne curricula université ak institut de formation désormais dañ ci impliquer le secteur privé pour ñu bokk ci ñu définir curricula pour mu am une adaptation entre li ñuy former nit ki ci université ak barabu formation yi ak la ñuy la ci entreprise Oui. xam nga agence boobu noonu <laughs> da ngay ministère mais agence bi pour ëpp donc juste pour dire que ministère c'est une fonction de coordination li am solo moy yenen structure yi nek ci ministère bi ak yenen structure yi nga xamné day dépendre ci ministère bi parce que société nationale yi ngi fi les offices ñi ngi fi les établissements publics ñi ngi fi te yooyu yëpp ci ministère bu nek dañ dafa dañ ko renforcer mais tek fa ay nit ñoo xamné ñu compétent nañ mais ay nit ñoo xamantene am nañ intégrité ma continuer ci yenen ñaari ministère yu ñu bolé moy tourisme ak artisanat mm-hmm c'est extrêmement important parce que booy jaay la destination Sénégal lan ngay jaay li ñu moom lu ñu xarañee li ci tegu mooy li ñu contracté agriculture ak élevage Sans rek may ñëw maa ngi déglu ci rajo bi acteur secteur bi di saluer loolu ne enfin mu am benn link bu leer entre l'agriculture et l'élevage donc au total on a rationalisé neuf ministères te bu ci nek rationalisation bi tëguñu rek rationaliser mais dafa am ben cohérence bi nga xamné moko moo ko sous-tendre wax globalement sur nuñ ko rationaliser li ci tegu nag moy profil yi parce que rationaliser nga ñan nga tek ñu ñu teg ay nit dañ ñoo xamné presque à 100 presque lay wax sen secteur d'activité lañu nek c'est extrêmement important moy nekatuñ fi pour ne ci parti politique la nekkoon amna telle légitimité dama wara nek euh, ministre donner un exemple dafa am exemple. ne ma ministère de la jeunesse comme ni nga oui oui. je lui dis c'est beaucoup ci contrat Le président Ousmane Sonko je koy en 2016 Il a ñu ko impôt Je ma xam En 2017 ma ñëw dugg passif contrat am ak man musul dans ci parti bi pour nous donner ci pouvoir bi a lay Le contrat boobu musul Nek, ken, contrat avec président Bassirou Diomaye Faye moy ñu au Sénégal ñu tabax Sénégal suñu tabaxé Sénégal man dina ci bénéficier directement xam nga wax nañ ci priorité dina ci ñew réduction coût de la vie ak amélioration pouvoir d'achat pouvoir d'achat ñaar nga koy améliorer soit da ngay yokk revenu comme salaire soit wala nga subventionner pour prix tu peux faire les deux à la fois donc il y a la méthode active y a la méthode passive mais bu ñu yoké salaire yi man may fonctionnaire du ko li doon jar cent francs, su jaree fukki dërëm du ma ko yëg contrat boobu laa am ak ñoom les finances publiques alal biñ bi waroon jëm ci man tam waroon dem ci santé bi structure boobu noonu sama doom war fa dem faju sama soxna war fa dem faju man ma affecté parce que semaine prochaine incha je compte jël dem jëli poste à maatam dem heureusement Macky Sall légui dem Fouta yomna parce que il Ila Touba mo tijji Fouta. Mm. on le veuille ou pas 5 heures 6 heures de temps nga yegg nga yegg Matam maximum. buñu développer infrastructure yi ma mën accéder sama lieu de travail buñu fexé ba liñu wax l'équité territoriale am. Ah. ba territoire yi Matam ku fa nekk du ñee ku nekk Dakar man duma and ak sama soxna ak sama doom yóbbu leen Matam nek fa installé comme fonctionnaire contrat bobu nañu am ak ñun di ci tek ne. beneen bi ñun ñi nga xam ne inspecteur des impôts avant boobu avant a daal chapitre boobu entre guillemets ay responsable nañ à Pastef muy coordonnateur départementaux yi. Mhm. yu GPS comme yu parti bi. muy coordonnateur communaux yi. muy ñun membre bureau politique muy ñu bokk ci cabinet président Ousmane Sonko muy commissaire scientifique muy national mouvement Nous avons obligation de décevoir décevoir sénégalais les sénégalais seront vraiment déçus si ne sont que ñun kenn nous ñun muy mer wala muy frustré parce que avons un poste de responsabilité hmm. Nous avons une conception jouissive hmm. du pouvoir c'est l'interpellation de Ayoba qui disait tout à l'heure que les ministres yi ñu nommé gisuñu ci sont Pastef ñu mais c'est ça hmm. parce que

jouissance mo amu fi djubal mo fi am kon ñun nañu defal sénégalais mais nañu fixer le cap ñun responsable responsables yëpp bu ko militants yi adossé wu su ñun mooy ñi ñi lay pression ci ñi lay jege ci ñi xam sacrifice yi nga def mais yow li nga def nañ xam xamul ñeneen lu ñu def ñaareel mooy li nga def ba nga koy def defoo ko pour fayeeku da pour

taxawaay bi nga xam ne moom na ci beneen bi mooy un inspecteur bu nekk impôt domaine di liggéey ci budget après ñu jox ko finance muy euh, Cheikh Diba ñi ngi doon wax waxu impôt yeeg ñoom seen finalement kon xëy na entreprise yeeg yooyu mën nañoo taxaw di xaar euh, wàllum rëdd fiscalité yeeg yooyu noonu euh, côté Ousmane Diagne aussi la justice

c'est un directeur directeur de la programmation budgétaire. C'est nga député yu nekk ci assemblée nationale pouvoir comme opposition laaj leen bu session budgétaire kan mooy Cheikh Diba. parce qu'on voit le ministre des finances et du budget mais administration bi derrière la direction générale du budget ak direction yi direction solde wala direction euh, du budget direction de la programmation budgétaire. programmation budgétaire parce que. Euh,

bu le ministère de la justice li am solo moi ki ñu tab un magistrat de parquet nga xam ne indépendance hmm. sur le plan institutionnel magistrat de parquet dépend nga du ministre de la justice mais ba muy nekk procureur de la république ba muy procureur général ba muy avocat général près la cour suprême nous avons son indépendance Si une indépendance personnelle def suñu gis-gis que sous le sceau de l'indépendance de la justice li c'est du profil bi cassé. les réformes judiciaires parce que le président de la République a son adresse à la nation du 3 avril nous wax que concertation sectorielle inclusive ce les assises de la justice les assises de la justice regrouper toutes les professions du secteur je pense que c'est un moment important pour nous évaluer nous faire le bilan l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la justice nous fixer le cap avec les acteurs et les parties prenantes parce que régime bi fi secteur bi ñu gën souillé le secteur de la justice utiliser nañu ko ba image am yàqu ci sénégalais utiliser nañu ko ba acteurs yi fa à l'aise de Dakar, sénégalais c'est le moment de redorer le blason comme le président de la République pour la euh, justice pour xamante ne proche des sénégalais dina tëddee ñaaxaanaay mais dina garantir les droits et les libertés De l'OLU, amener programme l'élection du juge des libertés et de la détention aussi l'élargissement de la carte carcérale le fait de miser sur euh, les, méthodes d'aménagement des peines notamment les méthodes alternatives à la détention a le bracelet électronique mais vous nous condamner nit le travail au bénéfice de la société Nous lay nous fenn ngay lekk di naan mm. ak nga Sénégal

naka nga déggé changement bobu ak buñu ñu li nga gis ci gouvernement bi yow ban jàngat nga ci ak ban genre changement de système lay doon. merci beaucoup parce que lolu mo doon sama troisième partie intervention moy qui incarne gouvernement parce que le premier ministre le président c'est le chef de l'État le premier ministre chef du gouvernement bi. te globalement ñaari rôle la am. coordonner l'action gouvernementale. et conduire la faire le suivi de l'action gouvernementale. coordination bi moy bu ñu waree def ay conseil interministériel ci loo xam ne dañ koy engagé ci réforme wala ay mesures te mu laal ministère yu bëri les conseils ministériels mën ko présider mooy fexe kon ba ñu méngale parce que secteur yi dañoo dañoo dafa imbrication bu am mais faire le suivi de l'action gouvernementale c'est extrêmement important mooy li président de la république orienté ci politique de la nation ministre yi ñu ko dénk ñu fexe ba ñu def ko boo amee premier ministre boo xam d'avoir une autorité sur les ministres parce que là c'est un chef de parti c'est extrêmement important ñaareel bi mooy dafa am ben charisme naturel bu ko yalla def bo xamné ne fu mu taxaw imposer fixer un cap soit tu le suis bu parce que li muy fixer lu bax la pour Sénégal wala sénégalais yi xamné intérêt Sénégal donc lolu qui est am rek dafa am boo ben rôle bu muy jouer lolu moy leadership groupe bi ni ngeen nekk n'importe qui moo koy que rek muy am même culture d'entreprise wala am même résultat même motivation personnelle le président Ousmane Sonko en tant que premier ministre dafa am dafa imprimer comme marque dans le gouvernement. jàpp ne dina oui il va l'impulser le Sénégal a besoin de son leadership le Sénégal a besoin de son leadership pour impulser le développement parce que lan moo fal une énergie populaire qui est disponible qui est là cette énergie populaire kan moo mën tirer les ficelles bu ñu waroon dem vacances ñëw ñu ne dañuy def ay vacances patriotiques ñu ne dañu soxla jeunes yëpp ñëw bay ji Ousmane Sonko en tant que chef de gouvernement sur sous l'impulsion du président de la République Bassirou Diomaye Faye bu ñu impulsé loolu da ngay gis ne dafay am benn dynamique bu muy créer ak benn motivation naturelle parce que yàlla moo leen ko defal mais yàlla defal na ko aussi euh, le chef du gouvernement <coughs> loolu mooy nit ki li des mooy tey Fixer déjà les priorités et ce sont cinq priorités première priorité moi, jeunesse éducation formation entrepreneuriat emploi première priorité deuxième priorité moi, lutte contre la vie chère et faire améliorer le euh, pouvoir d'achat au sénégalais c'est des mesures urgentes que les sénégalais demandent troisième bi justice promotion des droits humains bonne gouvernance ak démocratie électorale nan lañuy fexé ba optimiser ko ba améliorer ko té fofu amna ñetti mesures yo xam président de la République annoncé déjà déjà première bi li jëm ci ñi voter. ñu automatiser l'inscription sur les fichiers électoraux Le <coughs> président de la République du fi nekkati ñi ne la yow def révision exceptionnelle nga mëna fixer durée bi ngay ñëw comme li président Macky Sall 2023 né un mois nga may sénégalais pour ñu bindu ba dernier jour sénégalais ont di cette commission administrative d'inscription ont fait le rapport d'audit du fichier électoral de l'Union européenne bu 2022 def jeunes yi 19 ans ba 20 ans ñi ci inscrit sur le fichier électoral bi 9 Vous savez lañ xam fichier fidèle. donc si bu ñu l'inscription dañuy automatiser sur les fichiers électoraux am 18 ans nga dem directement tout le temps l'administration, administration bi ko yor muy di def radiation d'office pour ñi nga xam ne décédé nañ di def radiation ñi nga xamante ne dañoo dañoo dañoo dañoo perdre droit civil et politique mais loolu c'est une une avancée majeure beneen bi rationaliser les partis politiques c'est un vrai problème au Sénégal mais il faut le faire avec les acteurs concernés les partis politiques et la société civile pour nous, am parti politique yoo xam ne leen constitution bi may participer à l'éducation populaire et citoyenne nous jëm vers ce cap troisième bi mooy Sénat bi nga xam ne mooy superviser élection mu quitter rôle superviseur nekk rôle organisateur moo tax ñuy jugee ci commission électorale nationale autonome une ci commission électorale nationale indépendante loolu maanaam da ngeen bëgg a génne organisation élection yi ministère de l'intérieur oui parce que champ d'application bi nag fal lay étendu bi mm. mais ce qui est clair mooy élection acteurs yi ko wër xam nga ne cour yeeg tribunaux yi ñooy àtte contentieux yi ñooy proclamer résultat définitif yi. ñi nga observateurs internationaux et nationaux yi dañuy ñëw le superviseur l'arbitre, c'est le la Sénat. Qui organise, mooy l'administration. administration. ay DGE ay DAF etc. mais aussi l'administration territoriale. territoriale. boo fexee ba Sénat boobu noonu parce que waxoon nañ ne Sénat am na rôle superviseur. day dans toutes les étapes du processus te capacité pour injonction autorité administrative pouvoir de sanction am pouvoir de substitution mais phénomène e donc nous évoluer dans ce dans ce domaine là pour une commission électorale Élections élection débat est-ce que diw day du parrainage est-ce que day qui est-ce que nous inscrire est-ce que fichier est fiable ou wala dañuy dépasser débat yooyu. indépendant kon boobaa débat bi ci lan lay nekk. des sur les politiques de développement. Ah. muy élection locale muy élection législative muy élection présidentielle mbirum projet de société lay doon mbirum programme. d'accord donc réforme boobu. Hmm. en réalité impact boobu lay am donc dina amal une démocratie Sénégal. Hmm. mais dina amal une conscience collective sénégalaise. sénégalais. c'est la cela santé que donc euh, par exemple ki le président Sénat le président de la République moo koy nommé. mun nañ jëm vers ça parce que si si a ça y' a problème parce que gis nga avec Sénat Sénat bi ñu génne euh gis ngeen biñ fi ñëwé ni dañuy dañuy substitué à la DGE. Mhm. pour pour pour pour pour euh, remettre Ousmane Sonko dans ses droits. Mhm. le président dafa bind décret rek. dal di leen di daal leen di ñu mhm. jàll mais loolu c'était illégal. le décret était illégal. oui parce que Boy nommé membre Sénat bi da nga wara nommé d'abord, abord ñoo euh, politiquement kenn xamul leen corrélation ñaareel bi dafa war a am ño ño wara consulter organisme yu yu mel ni ordre professionnel yi lu mel ni yi loolu la loi bi wax ñetteel bi booy renouvellement bi dafa war a nekk par tiers des membres nga xam doo def renouvellement général kon décret boobu c'était un décret illégal loolu mooy dëgg mais qu'importe donc loolu loolu munuñ ci basé wu di wax kan lan mooy seeni modalité de nomination mooy li may encore une fois hmm. champ d'application bi champ d'application maanaam étendu wu transition de l'autonomie à l'indépendance acteurs qui sont autour d'une table nous attendons, ko muy pouvoir l'opposition, la société civile Nous sommes d'accord ñu def d'accord Mame Birame. Euh, waaw xam nga man euh, sànq maa mhm. euh, répondre un peu par rapport à la forme bi ak la ma gisee ne que la avons resserrer la taille du gouvernement Mané est-ce que loolu wane na rupture la question la réponse est oui. Mhm benen bi nga xamante ni sénégalais yi doon nañu ko posé wu euh, moy est-ce que dina am partage du gâteau. Mhm. maanaam euh, président Macky Sall biñ ko falé en 2012 daf fi ñëw ak euh, ab formule bu bess on gouverne ensemble on gagne ensemble on gouverne ensemble donc bi tamit quelque part ñu ngi doon xaar que comme que ni ko daan une coalition triple XL mo accéder au pouvoir

ci ngay gisee quelque part que souci wu euh, ñi di dogo a nekul ne ñun ñoo àndoon dañuy xol naka lañuy ñuy séddalante poste yi mm-hmm. li nga xamanteni ne nii moom euh, euh, nek la directive moy naka lañuy def de sorte que dëkk bi avancer xoluñu compétence ki ndax bokk ci campagne électorale bi xoluñu ndax ki fi la far wala fële la far luñu def moy dañoo xol ño xamanteni ni nañu ne am nañu dayo bi jub nañu te bu ñu leen dénkee poste de responsabilité yooyu dinañu ko def. ça ne veut pas dire que ne ñi nekkoon ci coalition bi xëy na meluñu noonu mais tey jàpp naa ne. est-ce que tey fii ak suba ñu leen xaar ñenn ci ñoom génn di respecté kii di mel Mame Birame. Euh, non je ne le crois pas. te ah tamit bu nekkee bu nekkee ne am na. day wone tout simplement que euh, li leen yitteloon réellement. Mhm. mooy bu nekkee ne coalition boobu nga xamante ni gunge woon nañ ko au pouvoir.

ñuy am ñoo xamante ni dañuy kaas mais équipe bi nii soo ko gisee doo mun a xalaat ne kii c'est parce que dafa sonnoon ci campagne bi doo xalaat ne kii parce que ben parti bii la nekkoon amoon na doole bi mu ñuy jàppale da ngay gis ne tout simplement avons xool le Sénégal euh, comme sélection équipe nationale ak Aliou Cissé les meilleurs lay les meilleurs mm. mais qui c'est Mangok. Mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, d'accord il y a efficience bi euh, Mam mm-hmm. question avant Aliou waaw man ci priorité yii rek lay ñëw xam naa boobu sax euh, ki nga xam ne mooy suñu jëwrin euh, kooku lay euh, gën a gën a gën a dem mooy ci lu aju ci gouvernement bu ñu teg xam nga wax ngeen gouvernement boo xamante ne bi lu aju ci transparence lay doon ci ñu xaar est-ce que tamit euh, du baax i euh, lii acte peut-être bu que bu euh, suñu ministre tutelle di def mooy ñu légaliser la loi sur l'accès à l'information parce que loolu c'est un problème euh, pour ñi nga xam ne ñun ñii ni ñoo nekk ci communication parce que euh, boo gisee ci démocratie yu gën a mag euh, la loi dañ ko dal di voté ba tax journaliste bi dina am accès dem ci information yi nga xam ne moo aju ci wàllu administration pour mën def ay investigation et autres mm-hmm. excellent yow lire nga programme bi mm-hmm. parce que ci wàllum transparence bonne gouvernance dafa am ñu ko séq dafa am loo xam ne citoyen yi la am les structures de l'État la dafa am ay organes sont corps de contrôle IGE IGF e, OFNAC Cour des comptes Nous est renforcée. koy renforcer yi ci présidence de la République notamment l'OFNAC ñu dindi ko nous avons ferons, ba périodicité bi nga xam loi bi pour publier un rapport nous avons def ñu rapport yi saisir ngi justice directement donc nous organes peuvent jouer pleinement le rôle mais yamul foofu citoyens yi mën accéder à l'information mooy loi Bob ñu wax suñu programme dañ koy def pour citoyens am droit di informer accéder à l'information publique mais lors du dañ koy bind ci loi rek dafa am lu ñuy wax les offices de d'ombudsman voilà mes souhaits, foofu le ëppee d'or. maanaam citoyen, yi bu ñu demee ci administration di laaj dara ñu bañal leen ko wala ñu ay pratiques yu illicites mun nañ saisir euh, office yooyu noonu pour ñaxtu loolu benn pan la beneen bi mooy le président de la République rappelé na ko te mu ngi woon ci programme mooy li ñuy wax les lanceurs d' alerte mu am loi boo xam ne moo leen di protéger mooy moo leen di récompenser. Mm-hmm. parce que bu ñuy nekk ci ay fi ñuy liggéeyee ñoom bu ñu bu ñu amee tendance di dénoncer ay actes de malversation ay njublang souvent leen ciy fekk xam nañ ko ay pression la wala ay intimidation la wala sax ay licenciement mm-hmm. nga fexe ba protéger leen mais aussi nga récompenser leen bu dul dëgg ñu porté loolu nag lay wax ni dégg naa ñenn ñi di wax ci télé yi rafetlu naa seen xalaat parce que ñun Sénégal bi ñu dugg Sénégal Sénégalu démocratie boo xam ne ku ne da ngay wax sa xalaat boo demee ci aduna bi. les lanceurs d'alerte sont protégés. il y a 60 pays au monde où il y a une législation ou une réglementation sur les lanceurs d'alerte lu 60 dëkk ci aduna bi def Sénégal dafa war a des ginnaaw États-Unis lay jël un exemple depuis 1863 pendant la guerre civile la amone amoon benn loi bo xamantene dafa dañ ko tegoon pour les concessionnaires de l'armement ñi nga xam ñom ñoom la lañ doon jox pour ñu jënd arme ñu wax fonctionnaires yi liggéey ak ñom ak ñi liggéey ci seen entreprise luñ ci gis luy njublang nañu ko dénoncer fofu le mbir yi tàmbalee États-Unis boobu lay dess dafa am luñ wax les whistleblowers ñom ñoy les lanceurs d'alerte dafa am une loi de 2007 bo xam dañ ko adopté fofu Koufa def dénonciation de fraude de corruption ou d'actes, c'est répréhensible 30% ou l'État a banquier Bradley Brinkfeld en 2009 dafa doon liggéey UBS Bank avons def une fraude fiscale dénoncé il a gagné 104 millions de dollars c'est milliards il a permis à l'État américain de faire un recouvrement général dans le secteur bancaire vous savez américain gagne 780 millions de dollars 780 millions de dollars c'est près de 400 milliards parce que organe de contrôle yi visitent, ils def visites sur sur pièce ou sur place c'est inopiné moo xam dañ ko programmé dafa limites parfois mais citoyen citoyens, souvent même l'agent de la fonction publique di laaj loo xam intérêt parce que il est protégé wala liggéey ci biir parce que dafa am intérêt parce que il est protégé te mun na ci am récompense Moi, désormais da impliquer l'ensemble des composants de la nation muy citoyens, yëpp le processus de quête de transparence et de reddition des comptes Canada c'est un pays très avancé dans très avancé dans le domaine de, la législation en matière de lanceurs d'alerte France il y a ce qu'on appelle la loi Sapin de 2016 boo xam dañu protéger renforcer les lanceurs d'alerte su boobaa dañu dañuy def encadrement légal bi lu mel le secret des correspondances lu mel nii nit ki li muy échanger ak avocat am lu mel nii euh, loo xam ne dañ ko war a extraire wala dañ ko war a exclure du champ en tout cas de nit lu mu mën a dénoncer loi bi mooy mooy mooy énumérer wala mooy délimiter le champ d'application et l'étendue donc de. mais est-ce que dañu mën def encadrement bi maître encadrement bi mais c'est une mesure ba pare ma daaneel. baal ma baal ma balaa ngay ñëw baal ma rek au-delà des lancements d'alerte wax na keroog loo xam ne dëgguma gars attiré ci attention moy l'amnistie des prête et leur désintéressement sous condition d'autodénonciation dafa am ko xamné dañ ko dénk ministère wala direction mu def détournement mu dem tabax ci ay immeubles yu bari wala mu dem jënd ci ay terrain souvent du ko def ci turam day ñew def ko ci turu Aliou Sow Aliou Sow bobu nonu suñu ko nee boo dénoncé wé li ñu amnistier fay yi ñu doon toppee mooy yow kenn d'autre la ba pare ñu désintéressé la maanaam am na sax lu ñu la mën a jox ndàmp la ci loolu loolu mooy désormais transparence gestion vertueuse bonne gouvernance reddition des comptes acteurs yëpp lañu impliqué cap boobu la ñu fixé alalu Sénégal amul benn dërëm bu war a jugee ci gafaga sénégalais yi di dugg ci poosu jàmbur te nekkul loo xam dañ la koo fay nga mérité ko mais encadrement bi ci côté ci côté encadrement bi kii euh, Ngagne Demba euh, c'est juste daanaka ci lancé boobu sax xeyna meuna baña guddou moy ci lanceur d'alerte pour encadrement aussi parce que lanceur d'alerte buñ ko waxé réew yi nga fi cité yëpp am na muy doxé amna ño xamné dañ naan xeyna ñi ñoy lanceur d'alerte xol lañuy wax aussi parce que dëkk bi nak gis nañ ni affaire yi mel des fois nga xamné euh, fu nek la xibar bi jógee xibar yo xamné du wér mën nañ ci yaq aussi ay dundu doom adama c'est juste xeyna na c' pas contribution la doon wala question parce que faaw mom encadrement ñu bàyyi rek isa xey wax lu ko neex ci bité après taxaw né lanceur d'alerte là bon je suis protégé tout à fait effectivement y avoir des échappements manam lanceur d'alerte duñ wax diw la voilà mais d'abord dafa am exigence ci lan nga mën def lancement d'alerte wax na la moy dañuy délimiter loi bi mhm. ñaarel bi moy il a une obligation d'apporter la preuve parce que ci droit la charge de la preuve incombe à l'accusateur te yow booy indi preuve vous peut nañu sax système de preuve libre dem ci système de preuve légal, mhm. parce que le système de preuve libre c'est ce que vous mën apporter comme preuve mais par exigence de rigueur vous nañu wax le type de preuve par exemple preuve écrite je donne un exemple ou leur témoignage en tout cas les cinq types de preuves yi nga euh, le code des obligations civiles et commerciales dit les types de preuves yi rek admettre pour tel secteur ou pour tel type de dénonciation mais encore une fois mesure le annonce le engagement là ce ci contenu modalité d'application et de mise en œuvre c'est ultérieurement lañ mais on a fixé le cap d'accord Si vous euh, par rapport à la euh, reddition des comptes lan ngay wax ci ñi nga xamantene ne ñu ngi koy mengalé ak chasse aux sorcières déjà ak fiñ ñu doon waxee ne euh, y aura pas euh, chasse aux sorcières mais justice euh, fan la limite bi nek ak bu ci nek fan moy délimitation effectivement xam nga tay sénégalais yi ñun dañu am lo xam ne dañ ko ñom euh moy assainir les finances publiques dafa am lu président Macky Sall waxoon bi fi nek te buñ ko dëggaloon lu am solo la mu ne pas pour ñëlé la OFNAC pour yéen la d'accord mon ci créé parce que juridiction d'exception là, renversement charge de la preuve jiiñ la ba paré nan la defal et puis mon droit def appel ci arrêt voilà etc. donc vraiment c'est une juridiction d'exception bo xamné les droits de la défense et le principe du procès équitable mais li am solo moy Sénégal alalam ku ko jël man sama gis-gis mooy da nga ko war a de sénégalais yi delloo bi nak du ma Samba moo déterminer du ma Demba déterminer le parquet son rôle c'est de d'engager des poursuites s'il y a des indices de faire des enquêtes à travers la police judiciaire de saisir les instructions pour ouvrir des informations judiciaires ku ñu gis ne am na loo amel sénégalais yi nga jox ko sénégalais sans muy am une répression boo xamante ne euh, bu aveugle ou une chasse aux sorcières comme li ngay wax mais loolu yamul ci ñi ñu musoon a yor te ñu musoon a yor <laughs> politique rek dañuy wax mais am na ñoo xam ne defuñu politique soit dañu nekk ci sénégalais yoo xam ne dañu def complicité ak euh, ay nit ñu nekk ci biir wala ay sénégalais yoo xam ne def politique mais ils sont dans la haute administration li ci des mooy ñi fi nekk te yor exigence de bonne gouvernance bi si ñoom la tàmbalee te loolu jàpp naa ne chantier bu am solo la xam nga lu mu ñuy jëriñ mooy dafay restaurer la confiance entre ñi gouverner wala ñu yor ay mandat wala ay fonction publique ak ñi nga xamné ñoy sénégalais té restauration de confiance bobu su amé rek c'est fini moy mën nga am adhésion sénégalais yi ci euh, objectif de développement yu fixé donc c'est un chantier extrêmement important bi nga xamné ne résultats yo xamné c'est pas des résultats uniquement superstructurels euh, immatériels mm-hmm. nga da ngay les finances mais des résultats matériels dans dans dans le cadre de ce qu'on appelle l'environnement des affaires parce que da ngay leer ne marché public su ma ko bëggee gagné su dee man mérité na mérité naa mën naa marché public nekkatul ne tel ministre wala tel directeur d'agence agence mooy jël marché bi def ko baara yugoo jox ko parce que dafay am améliorer l'environnement des affaires confiance day am ci investisseur ak ci secteur privé euh, national bi aussi. Bah, euh, euh, dafa am c'est vrai que monsieur Touré vous wax wax yu euh, j'aime bien son côté très explicite. Ouais. ça a l'air d'être clair dans sa tête. Puis si tu as des interrogations également, ce serait bien de oui, oui. soumettre au comité de réponse. mais dafa am ñetti mbir wala ñett daf ma intéressé ci mi euh, la la transparence dans la gestion des affaires publiques. Euh, vous savez que ni après le la nomination du du gouvernement il y a plus de 300 euh, directions nationales ont on avait remarqué que ni direction ont fait la ay sur certainement proposition d'un ministère concerné Ou le ministère de tutelle direction quand on parle de gestion euh, euh, et de transparence wax deug yalla fofu le luubal yi di gën di baré sama xel mi ngi ci port autonome de Dakar sama xol mi ngi ci ay euh, mi ngi ci ay ay ay centre euh, train euh, train mar bi nek avenue Lamine Gueye sama xel mi ngi nek ci direction de la pêche je pense aux licences de pêche sama xel mi ngi nek ci béréb yu bari yoo xam ne mi ngi ci réew mi yoo xam ne ay ay béréb yoo xam ne la foofu la luubal yi bare ci réew mi ba ci ba ci terre bi ba ci euh, société des chemins de fer du Sénégal boobu etc cetera yu bari mënoon nañu ko cité fii yoo xam ne le luubal bi di ëppee parce que fi xaalis war a pour dugg ci gafagalu nguur gi du fa duggee alors que on a besoin d'argent parce que pétrole bi ñuy wax ni ak gaz bi doyagul pour ñu liggéeyal dëgg dëgg dëgg suñu réew donc on a besoin de récupérer des ressources quelque part te béréb boobu am licence de pêche yi ñëpp xam nañ ni li ci xew nan lañuy def pour que licence de pêche yi ñu arrêté ko définitivement favoriser suñuy euh, euh, suñuy mbéykat ba tollu sax ci ben niveau bo xamné ces bateaux de pêche là yi nga xamné ay bateaux industrie yi ngay gis ni 5 milliards bateaux yi 5 milliards nga am bateau ñom ñi ñëw di ñëw di demander ay licence de pêche di ko pavillonner Sénégal eh bien ñoom bu ñu jëlee bu ba fi dañuy corrompre suñuy gars yi pour am ay licence leen di permettre ñuy ñëw di ratalé suñu suñu suñu ba nga ne pêcheurs gis problème yi am yii moo indi ñun toujours di am ay des marins pêcheurs moi j'en connais beaucoup beaucoup beaucoup surtout même un ami spécialement dafa jël yëfu Il te tey ne ko na ko ji dee na waaye fi bu yow dina ko ndax mon fils parce que marin pêcheur la parce que dañuy am bateau dañuy possibilité dem appui fini bëgg par rapport à leur délimitation vous n'y indi euh, euh, li indi transformer ko qui biir bateau bi de dafa am ay usine de transformation à l'intérieur de ce bateau là n'est la ñun Sénégal le ñuy sachant que encore une fois ces bateaux ben bu su nekk rek 5 milliards rek nga am ko légui ñëlé ñokay jënd indi mm-hmm. buñu jëlé yaboy bi awa jaay ko euh, euh, raatale lépp ba ñun ñu am problème ya boy légui ben 500 ñoo buñu paré dañ koy duggal ci seen i euh, sardine yoyu congelé conserve yoyu buñu démé 1000 fois plus cher lañ koy jaayee en Russie ou dans les pays d'Europe du Nord loolu ñun waron nañ ko mëna def buñu joggé après ñun buñu lijeenté lijjantee loolu ba paré ñun ñoo koy jaay ba paré dinañ duggal ay devises suñu réew té dinañu fay ay impôts té bateau yooyu dinañu fay lu bari war nañu mëna ci ben mandat wu juróomi at au moins am jappalé ay société de pêche yu mag yi yenn nit ñi nga xamné ay sérieux sérieux nañu des des des des des des chefs d'entreprise sérieux pas ñi nga xamné dañuy bëgg di gagner kessé li si des yépp ñom ñu koy garder ci seen biir ba paré di tricher ci euh, seeni fiscalité d'accord awa ah yoyu euh, j'aimerais bien euh, qu'on qu'on en parle et puis après certainement ci kanam dañ ñëw ci affaire souf bi suuf si on va l'aborder par rapport à la souveraineté alimentaire. donc euh, gestion bi la interpellé déjà bokk na ci euh, les nombreuses directions. également nomination et qu'est-ce que do retourner wat comme niñ gissone nomination politique également nga xamantene ne mo moo nar indi également d'autres problèmes. oui je suis entièrement en phase parce que xam nga hmm, sans anticiper ci le président de la République ak premier ministre nga xamne chef d'administration, en mhm. réalité mhm. def direction mo gëna laaj technicité que ministère ministère mo gëna nek fonction politique que direction. Mhm. te rien que dans les ministères rek gis nga technocratie bi ñu comme rigueur donc lolu amna limuy wané ci euh, ban ban ban trajectoire nañu bëgg nañu bëgg jël. donc je suis entièrement d'accord sur nécessité opacité bi am ak nébuleuse bi am ci biir direction yi donc ñu gën ko léral mais ci mo xam ci côté recrutement ci xam ci côté effectif bi mais ci côté financier parce que du du côté souvent bu ñuy wax assainissement wala ñuy wax gestion bu vertueuse dañuy faté li def nit ñi tek ay personnes compétentes recrutement politiciens et tout ça leneen ak leneen lolu yëpp ay chantier la yo xamantene je pense que euh, dinañ ci djublu hmm. le jëm ci pêche aussi wax nga dëgg. le secteur primaire euh, pêche rek nañu détaché ak agriculture élevage. Hmm. parce que pêche au-delà de la pêche en tant que telle. y a toute une économie maritaine maritime donc wax nga port te ñu war a dem ci ay port yu bëri war ay mhm. port sec donc am un port minéralier et vraquier donc loolu c'est tout une économie euh, léegi pêche doguma la 30 secondes gis nga port minéralier boobu ngay wax noonu mhm. euh, benn nit kese lañ ko jox ci réew mi euh, boo xam ne wax dëgg yàlla man loolu je vous attends là-dessus parce que kooku dañ ko jox lépp ne ko yow léegi am nga droit importation exportation yi lépp ci Sénégal fépp foo leen mënti jóge ci port boobu ngeen koy indi parce que moom kese lañ ko jox loolu man je vous attends dedans au-delà des des des ICS voilà voilà tek lépp ci yoon mhm. les ci pêche xam nga dafa am li jëm ci exploitation ressources naturelles bi moy mhm. fexé ba disponibilité wu jën am loolu nak il faut nga xeex la pêche illicite mhm. té il faut nga renforcer l'inspection au pêcher Contrôle. moyen d'intervention yi suñu marine am il faut que nga ravage yi pêche industrielle bi di def agression bi sur la biodiversité moo il faut que ñu wax programme dañu organiser un repos biologique femme période nous xam da nga war pour espèce de reproduction. il y avait ça on l'a pas respecté. le repos biologique ce qu'on appelle le repos biologique. parce que ça permet de respecter la biodiversité. respecter la disponibilité ou ressources parce que nous, ni war am pêche artisanale est semi industrialisée c'est-à-dire que nous avons ay moyens. léegi tu as parfaitement raison Nous, Nous wax programme nous voulons un état présent dans l'économie un état c'est le statut parti un état qui assume son rôle primordial dans l'économie L'économie néolibérale bi nga privatisé le dañ Il état da nga privatiser un hmm. secteur hmm. ñun dañu bëgg a dellu ci état boo secteur B. daf investir créer société nationale pour am pour récupérer secteur pour renforcer ko hmm. balaa dem ci transition boo dina secteur privé national état bi assumer son rôle pas de gendarme de l'économie mais son rôle d'acteur clé de l'économie en investissant et lolu dañ ko assumer té dañ ko wax suñu programme lolu moy ressources yi disponibilité bi té li la wax pêche illicite bi mais accords yi ya les accords nga xam dañ koy signé ak ay état wala ngay signé signé ko ak ay organismes internationaux mo xam mooy organisation intergouvernementale union européenne nga ñëw ñi lay jox ay 3 milliards wala ay 1 milliard 5 5 par an les licences de pêche ñi ngay jox ay bateaux yo xamné ay bateaux étrangers yo xamné dañuy ñëw créer société def ci le Sénégal mais en réalité étranger ñom capital il faut que changer législation bi donc lolu accord mais licence de pêche lolu moy la partie amont mu am la la phase intermédiaire muy la partie mid bu jënéwé jën bi conservation bi oui. c'est un problème transport bi ñi dañu war am ay outils fofu nak lay ñi nga xamné dañ leen ci secteur moy les te ñooñu seen rôle dafa am solo. ba ci maire biy jaay jën. jëlal nga jël benn da ngay jël benn zone comme Tëngéej wala nga jël Yaraax. Mhm. wala nga jël Caaroy ñaata suñuy yaay ñoo xam ne dañoo jàmbaar 4 heures 5 heures du matin dañuy jug dugg si njaga njaay yi yor seeni paan di napp jën il suffit de les organiser en coopérative. Mhm. nous accéder au financement état bi appuyé len yor seen auto yo yoo yu ndaw. Mhm. yoo xamante dafa am phase frigorifique. Mhm. ñi mën di ñam di jëndi jënd nga organiser len ñi gagner xaliss di mën mhm. accéder au crédit di liggéey. il faut juste les organiser. donc ñooñu <clears throat> dañu am solo ci phase intermédiaire bi di ci des nak moy phase aval bi moy surtout la transformation. ba yow mburu bi ngay jël di ci diw ton xam ah, nga dama bëgg ton nak <laughs> nga fexé ba mu jugee ci transformation wu euh, jën yi nga xamantene mom moom la donc pêche pêche rek c'est toute une économie waxuma la nak l'économie maritime en général mmh. nga xamné mmh. effectivement c'est un secteur névralgique bo xamné war na mëna permettre euh, ñu atteindre les dafa am ci déggul wala moy lo xamné parce que comme li nga wax ton bi jën bi tañ mu kay yóbbu ci consommateur bi muy dem ton il faut nappkat bi moy dem géej est-ce que tamit gisoo leen ne il faut aussi euh, ñu renforcer euh, ci wàllu équipement ak moderniser li nga xam ne nii mooy bateau yi par exemple les bateaux en fibre de verre par exemple parce que on voit que ni les pêcheurs dañu am problème bi euh, par rapport au bateau bien sûr loolu mooy rôle état parce que état du du du mooy ñëw créel nit dara nit ku mënal boppam dara parce que pêche ay temps waxoon nañ ne 600 euh, milliards lay contribuer ci PIB mais les statistiques ba légui mettre nañ ko en jour. Mm-hmm. pêche ñi ci yëngatu bokku nañ ci sénégalais yi gëna a yu gën dañuy am ay risques yu énorme yu énorme lay wax. Mm-hmm. yi ñuy jël pour mën liggéey. té ñun ñu am 715 kilomètres de côte. Mm-hmm. littoral de Saint-Louis à Cap Skirring. Nous devons ba outiller en termes de formation en termes d'appui un appui technique un appui financier. Mm. un appui matériel. Mm. ce qui va permettre de nous donner gis seen Légui, Ayoba ma interpellé la ñu ñëw euh, ci euh, point Bobo. dëkk déjà pour investisseurs yi il faut qu'il y ait de la stabilité la euh, sécurité tay ji réconcilier également les Sénégalais avec les forces de défense et de sécurité le ministère de l'intérieur va en parler ak ki nga et quelle doit être tay la procédure à suivre pour instaurer le yëpp tey ji au Sénégal wa ci sen ci sen nous cinq programmes yi cinq priorités en tout cas daf ci am cinquième bi consolidation de l'unité de l'unité nationale loolu laa bëgg mu mu ñëw ci nan lañ koy defee te euh, ñu dund fi quand même li fi dund entre mars 2021 et février 2024 euh, il y a eu euh, plus plus plus plus plus de 60 morts ñi ñi ngi compter pareeguñu ba léegi ils ne sont pas encore d'accord sur les chiffres mais quoi qu'il en soit il y a eu des dizaines des dizaines de morts plusieurs blessés des familles brisées nan ngeen nan ngeen fas yéene cohésion nationale boobu fileeg justice amul parce que les familles aussi réclament justice ñi nga xamante ni teg nañ leen ay teg nañ leen te tooñ nañ leen ñooñu ñi ngi réclamer justice te tant que loolu pour man loolu amul euh, cohésion nationale bi dañ koy wax nii rek mais du du mos a am parce que euh, tooñ bi dafa tooñ bi dafa dafa kawe trop te nan ngeen nan ngeen fas yéenee defee loolu ak loi bi nga xamante ni voté nañ ko muy loi d'amnistie bi nga xamante ni day day day fànk loolu yëpp. ñaar bi jiitu mooy li président de la république wax li président Ousmane Sonko wax premier ministre mooy vengeance du am justice mhm. c'est clair parce que jàmm gens am sans dëgg am. Mhm. te dëgg pour mu am il faut que ñu leeral mbir yi c'est clair. deuxième affaire bi ma gëm mooy dafa am lu doon diingatee wala luñ doon ŋàññee régime bi fi jugee mooy ay nit yu nekk ci exécutif di immiscer wu ci pouvoir judiciaire wala ay nit yu ci parti au pouvoir wala coalition au pouvoir di wax ci justice ni la préparer l'opinion wala di joxe ay signaux je me permets je ne me permets pas de dire que suite bi nii lay parce que désormais je ne suis plus dans l'opposition je suis dans le pouvoir wax la li ma gëm mais du man maay wax kii nañu topp nii nañ koy toppee ñi def telle affaire wala telle affaire lii moo war a nekk sort dëkk bi am président de la république bu fal nañ premier ministre fal un gouvernement bu bees am na ku ñu justice am ay cours et tribunaux yoo xam ay professionnels ñi ngi fa muy magistrat muy greffier keneen ak keneen magistrat yi ñoo war a di procureur ak ay juge lépp lu ciy cëru justice jàpp naa justice dina ko def en tant que militant du parti au pouvoir je ne peux pas me permettre de dire ce que la justice doit faire comment il doit le faire elle doit le faire et quand elle devra le faire. mais day yéen voté contre l'amnistie. oui technique quand même. D'accord, vous un excellent journaliste. <laughs> Mais vous êtes un voté journaliste. Vous avez voté contre l'amnistie. oui technique. D'accord, vous êtes un amnistie. Vous avez dit l'amnistie de faite. Il départ 1er février 2021, 25 février, 25 25 mars, 25 mars 2024. Donc 25 février 2024. Donc, pour justice, il faut et vous amnistie est-ce que bokk na ci seen mbébét ngeen teggi amnistie boobu. mënuma ci wax dara parce que dégguma si suñ programme ñu wax ne dañ koy tegg parce que biñuy bind programme bi amnistie bi amul woon lu dëgg dégguma président de la république wax ci dégguma premier ministre wax ci du dëgg est-ce que teggi amnistie kase mooy tax nga mën a topp mbir yi wala boo teggiwul amnistie am na yeneen méthode de contournement Hmm. en tant que juge il y a une méthode de contournement je ne peux pas vous <laughs> parce que damay anticiper ci loo le rôle rôle justice le terme ñun la justice am indépendance am vous ñu demee justice war communiquer je ne crois même pas à une justice bavarde mais justice bu demee ba mu communiquer le parquet l'article 11 du code de procédure pénale mais ci cas pour bañ divulguer des informations parcellaires sans pour autant nous ñu la présomption d'innocence may nañ ko mu communiquer. d'accord donc man euh, mënuma wax sur ces questions là franchement. interpellation bi ma def Ayoba par rapport également à la sécurité tey et euh, gis nañu temu mu ren bi 4 avril. thème bi c'était la quintessence moo di réconcilier les Sénégalais avec les forces de défense et de sécurité ak les fi de a jaar yëpp ak ñoom tey également zone yi nga xamante ne manque de sécurité moo tax amul benn stabilité bi amul développement économique dans ces zones là effectivement parce que dañu jël consolide 5e euh, pilier bi euh, priorité bi mi wax. Mhm. consolidation de l'unité nationale cohésion sociale paix et sécurité. oui donc da fay melni kon pour jam am pour kaaraange am fay fekk nit ñi mengo nit ñi juboo ba paré dëkk bi unité bi war a am booloo bi war am entre sénégalais tout en mhm. respectant la diversité religieuse ethnique régionale culturelle politique nous avons le pluralisme démocratique. oui force de défense et de sécurité yi dafa am rôle armé. mais il y a signal que nous avons interprété la nomination du général Jean-Baptiste mhm. au ministère de l'intérieur. c'est un gendarme. Oui. un gendarme à l'intérieur. Mhm. parce que gendarmerie. doit à cheval entre le maintien de l'ordre mhm. mais aussi la défense. bien sûr parce que force armée le pas. en général ça suscite suscité débats, même pour que les gendarme intérieur pour diriger les policiers. oui gendarmerie policiers. oui mais gendarmerie maintien de l'ordre hmm. du gendarmerie euh, même même même même hmm, non du man c'est-à-dire gendarmerie bu njëkk en zone rurale la nek, nek en zone urbaine mais depuis quelque temps gendarmerie da nga présence avec beaucoup de brigades mm. mm-hmm. hein? yi sont ci ay zone urbaine donc gendarmerie mën na jouer ci lu dans le maintien de l'ordre léegi li am solo ministère de l'intérieur direction yu bëri sécurité c'est ci solo mais dëgg la mais direction générale des élections mi ngi fi. relation ak sphère religieuse mi la direction de l'automatisation du fichier mi direction de la protection civile mi ngi ministère de l'intérieur sapeur pompier ci kan lañ dépendre. ministère de l'intérieur. kan mooy gérer link bi ak parti politique avec ak association mhm. c'est le ministère de l'intérieur. Mhm. kan moi, kan moo jiite le commandement territorial. c'est le ministère de l'intérieur gis un militaire dafay caractériser par une chose non seulement a am compétence comme ñun civil yi mais dañu am rigueur. discipline dañu am rigueur. donc il faut pas réduire balaa sécurité il faut pas réduire le ministère de l'Intérieur aux questions simples de sécurité questions de sécurité yi kese. bu fa réduire ministère de l'Intérieur intérieur léegi bu ñu sécurité boobu dafa am loo xam ne am ñu fi renforcer l'infrastructure infrastructure yi permettre abriter ay ñu war sécurité Nous commissariat yi brigade yi le jàpp na Sénégal a du mujj def effort il faut il faut poursuivre ça recrutement wu personnel Le personnel est gën il, faut que New York un autre problème les ASP qui ont été mhm. insérés. infrastructure moyens après ñi personnel mhm. personnel mhm. qu'on le veuille ou pas sécurité du une police gendarmerie sénégalais un rôle C'est un rôle la sécurité de proximité. C'est une dans la sécurité de proximité est-ce qu'il faut maintenir cette agence est-ce qu'il faut partir vers une autre structure mm-hmm. mais la participation des citoyens dans l'effort de sécurité c'est un solo mm-hmm. am na loo Sénégal les collectivités locales souvent ont un rôle bien jouer dans la sécurité et pourtant nous avons siège de représentation la population à la base Nous avons ay conseils municipaux am ay maires yoo xam ne ñu ngi seen gox politique sécuritaire kenn du leen ci impliqué donc loolu je pense que c'est des défis mais euh, c'est une nomination boo xam ne de nañ ko trop te gëm ni euh, sécurité moom li ma wax rek yi jiitu noonu bu unité nationale amee cohésion sociale am jàmm am li ëpp ci sécurité réglé wu na li ci des kaaraange rek la. le rôle d'une police municipale lan nga ci xalaat. police police municipale c'est xam nga c'est dans le code des collectivités territoriales mais dëggal biñ ko wara a dëggal loolu mo dess moo hmm. ci anticiper parce que xamuma luñ ci wax ak lan lañ ci wara def. mais et puis je ne suis pas spécialiste mais li ma xam dal moy il faut toujours euh, privilégier l'évaluation des politiques publiques la concertation avec les acteurs li nga xam ne gën pour sénégalais ñu def ko pour ñu am sen kaaraange ak sen quiétude. d'accord bon aw ah, man damay ñëw euh, feneen. Mhm. Euh, donte ne priorité yi bari mais euh, comme dañuy soga a gouvernement. te gis nañu ne euh, alternance la ñu doon woote ba tey jii yàlla def ko am ñoo xam ne la dañ cee sóob seen loxo bu baax a baax muy euh, la diaspora euh, bi nga xam ne sénégalais yi dañu dañu wane seen bopp ci li nga xam ne moom mooy rupture bi ñu bëgg ñu gis leen nag ñoom ñu nekk ñoo xam ne nii dañ leen di joxoñ ñi bokk nañ ci ñuy gën a ëpp lu ñuy dugal alal fii ci Sénégal ñoom war nañ leen réserver benn politique gis nañu li ngeen dëxañ ci seen biir programme mais tey jii pour ñoom ak jàpp gi ñu jàpp ci alternance ak rupture bi ñuy xaar ban programme politique ngeen leen di tegal pour seen xaalis boobu ngeen mën gën koo utiliser ci biir Sénégal. effectivement il y a ce qu'on appelle euh, d'abord dañuy rationaliser les structures financières yi état bi am muy DER muy fonds FONGIP muy fonds SIS muy BNDR. E. Créer la BPIS la banque publique de l'investissement du Sénégal et il y am filiales donc ay maanaam ay ay C'est un rôle qui fait tirer les diaspora bi l'investissement. indi investissement dans le cadre de ce qu'on appelle dans le programme l'économie participative Nous bu ñuy sumb projets yi sénégalais a di mhm. donc il faut que les femmes jouer dans la diaspora qui nous nommait donc le chargé, donc euh, en tout cas le, secrétaire d'État euh, chargé des relations avec les Sénégalais, en tout cas chargé des Sénégalais de l'extérieur, bu ma xam Djouf chargé des finances du parti. Mhm. du coordinateur Pastef Canada. Euh, Pastef Canada nous le le Pastef njëkk a gagné en 2017. 2017 mhm. bi plus on a gagné le Canada. qui a fait un travail exceptionnel dans le parti donc c'est le lieu je ne le félicite pas de mhm. l'encourager et ko yombal mission mais en tout cas taxawaayam ci côté finance articulation bi du hasard que ku xam finance la te ku mën a mobiliser les ressources la c'est pas pour rien que <laughs> la participation le ñu levée de fonds c'est lui qui pilote tout donc loolu xam na ko lu toll ci stratégie de mobilisation des ressources de façon participative moom mën na loolu ba pare parce que c'est un Sénégalais d'accord secteur boo xamante également les attentes euh, bëri fa secteur de la santé ngañ dem ak transport bi mu yobale ko. gaay ñi ñu ngi wax ci désordre beeg ca. li euh, mu demee loolu El malik a du pain sur la planche. <laughs> vous n'avez pas avec vous le premier ministre hein? <laughs> bëgg ma wax ci lepp xam lepp hmm. mais xam nga euh, santé dafa bokk ci benn partie ci suñu axe programme yi cinq axes yi mooy le capital humain mooy faj. xam nga le secteur sanitaire dafa amoon benn loi bu 98 boo xam ne ci la ci état engagé wu. Mm-hmm. hôpitaux yi nekk ay établissement public am ay autonomie autonomie il faut revoir ça li ci des des nébuleuse buy am ci gestion hôpitaux mm-hmm. les gens n'en parlent pas mm-hmm. recrutement yi recrutement yi surtout recrutement yi parce que hôpital y a le personnel soignant mais là y a le personnel non soignant oui mais directeur souvent le personnel non soignant nous ñu en ba am prédominance. ci secteur alors que le personnel soignant doit être davantage renforcé li ci dem li infrastructure hospitalière la carte sanitaire il faut que nous renforcer ko donc sénégalais vous fu mu que am un plateau médical vous relevé bo xamné dina donc régler les problèmes. problème am. Mm. li ci dess moy amna programme je pense que de l'autre camp je pense qu'il n'a pas compris on a dit que dañuy jël dañuy fi jëlee couverture maladie universelle indi fi couverture sanitaire universelle mu connais ne c'est de la littérature couverture maladie c'est l'aspect bu nit ku mais quand on parle de couverture sanitaire dañuy intégrer désormais la, la phase prévention la phase prévention oui. couverture maladie moy bu nit ki feebaree nan lay fexé ba parce que nous avons participé mhm. à travers sa contribution mais couverture sanitaire universelle est désormais la prévention elle est sur le programme de couverture de couverture médicale donc je pense que l'olu, na sénégalais yi xaar lu am solo prévention est au cœur de la politique sanitaire madame Fagarou, nous avons fait mais Fadjou aussi il a ci solo quoi bien sûr couverture maladie c'est d'anticiper sur tout ça et de permettre sénégalais à quel que soit le revenu mu mën mu ci Issa wax transport bi également gis nañu anarchie bi nga xamante ne moo nekk ci secteur bi déjà infrastructure routière également ça pose un problème defe naa ñi demoon campagne dugg ci biir dëkk bi gis ngeen également à l'intérieur du pays comment ils sont desservis Oui, xam nga xam nga transport euh, c'est un grand corps malade au Sénégal mm. ñu ñëpp xam nañ ko parce que euh, ni mu dérég ni mu dérégulé wu muy ben ñaareel bi moy lan moo ci war rôle état à travers la société nationale qui est Dakar Dem Dikk Dakar Dem bon, ban ban ban rôle la war am ci secteur loolu mooy loolu moo mais le transport am wax n'a sànq au début mais wax transport informel ah, dans oui secteur foofu laay ñëw hmm. parce que moto yi jakarta yi ñuy wax hmm. en ville il faut que ñu wax ci hmm. ban gis-gis la ci état am ak naka lañ koy organiser lu luñ ci war a prohibé ñu assumé dañ koy prohibé léegi li amoon solo. mooy particulier yi daw. mooy li amoon solo mooy war gaynde yi xaw ma. Mhm. waaw léegi divers diversification transport moo ëpp solo mooy kiy jugee géejawaay di ñëw dakaar mu mun a jël berte mais en même temps mu mun a jël liñ trent 38 bus ñëw Tata kiy jugee Rufisque mun a jël TER. comme nous na jël Dakar dem gis nga boo diversifier rek dëkk bi day yaatu. Hmm. infrastructure hmm. transport aussi du du du concessionnaire yi. ak particuliers yi ak état. mais il faut un état fort voyez en France di tax transport dox TGV yi TER yi affaire parce que foofu état lu ëpp ci transport da koo ŋànkal boppam. à travers la SNCF la Société nationale des chemins de fer de France. à travers les la RATP. je pense que c'est c'est RATP. voilà donc il faut faire le secteur du transport moi je pense doon un état interventionniste oh. Oh. sur le plan stratégique day le secteur secteurs yi dama koy téel à travers des sociétés nationales fortes tout le temps il bàyyi sénégalais yi initiative ñu mais il faut un transport interurbain comme un transport urbain Il faut rencontre respecter l'exigence euh, exigences respecter exigence qualité à confort tax donc, bi 300 000 ou 500 000 salaire, du jeu salaire, de l'acti, 150 000 d'euros par juste parce que le auto. Parce que le transport n'est pas confortable au Sénégal. Le mhm. Transport public, c'est confortable, mais ça auto, donc, garé, week-end, Parce qu'en mhm. réalité, on peut bouger de la convenablement, tu le auto. Parce que le transport public, est confortable, Il respecte les exigences de qualité. Si tu à 8h05, tu es arrivé. 8h05, tu es en France, tu dëkk tubaab yi ni avancé ci loolu mais nag day ànd ak infrastructure yu baax ay infrastructure routière yu baax ay tali yu baax loolu moom je pense que depuis régime libéral Sénégal mu ngi ci def ay jéego yu am solo. mais à l'intérieur du pays. oui à l'intérieur du pays comme comme à Dakar même à Dakar à Dakar tey les ouvrages d'art yi ñuy mujj yi ñuy mujjee def mooy les autoponts je pense que am na ñuy wax cohérence bi ci yenn secteurs yi comme Kër Massar ni ñu ko defaree est-ce que orientation bu organisée je ne suis pas je ne euh, suis pas spécialiste mais autopont yi day souvent benn benn mobilité avec benn fluidité parce qu'en zone urbaine moom toujours toujours restructuré, restructurer parce que nit ñi dañuy gën di mais pendant le boo xam ne boo les politiques d'aménagement du territoire et de développement des collectivités territoriales bu doxee ba sénégalais bu nekk fa mu nekk mën fa comme Dakar mhm. ne congestion bi am Dakar wàññeekoo rek mhm. secteur transport dina mën de souffler moo secteur yi wax dañoo dañoo dañoo lié quoi. dafa am articulation. mam Mame sank sànq da ngeen wax ci lu aju ci suppression wu yenn yu si mel ni ay DER ay FONGIP et autres est-ce que loolu du indi ben entrave ci entrepreneuriat euh, parce que au niveau des financements euh, garder euh, yi nga xam ne nii ay fonds JUP ak lusimel peut-être indi ci ay coppite ay réformes def ci nit ya ca war xam ce qu'il faut faire est-ce que gënul que effacer leen parce que est-ce que dou indi ben entrave ci entrepreneuriat parce que vous naree jël financement di ko jox ci pour banque mën na diis vu que ni doole yi du yem ak lourdeur yi ñu ciy je réponds par une question c'est-à-dire est-ce que l'entrepreneuriat a amené le doole ci à travers les mécanismes qui ont été parce qu'en réalité le rôle am mooy de viser le financement rapide day joxe sans pour autant procédure bancaire effectivement fonds JIP et fonds fonds 6 c'est des fonds de garantie le fonds 6 vise les grands investissements fonds JIP investissement il a yi il garantir a nga def crédit mu a que fonds de garantie mais banque bi soko defé da nga rationaliser structure mais banque bi mun na am ay ay ay ay ay filiale day am ay day am filiale su dafa am rôle moy répondre à l'exigence de l'accès rapide au crédit mais le gouvernement le fera toujours est-il que pour l'entrepreneuriat toujours dañuy wax génnee xaliss ak joxé mais loolu du loolu kese ñun dañu wax né dans chaque parce qu'on a les pôles les huit pôles de développement économique. Mm-hmm. régionaux les huit pôles mais ci zone bu nek dafa wara am wax la maison de l'entreprise la maison de l'entreprise mhm. la maison de l'entrepreneur mhm. permettre entrepreneur bi lepp lu jëm ci accompagnement ñu mun ko def Bari na kuy entreprendre ci benn secteur 15 ans mhm. da ngay togg moom boo waxtaanee ak moom trente minutes mu xam ne li mu nekk commande publique bi ci secteur am mun na ci gagner lu il suffit que mu formaliser wu il suffit que mu def transition dem donc loolu rôle bu am solo la les chambres de commerce donc euh, euh, euh, l'entrepreneuriat dafa dafa am dafa am bu am solo ci formation sensibilisation formalisation avant d'aller jëm vers l'accès au au crédit qui est un pan extrêmement important Sénégal li tax est ñi sonn mooy da jot ci xaalis dafa jafe mm. tant que amuloo terrain bien immobilier un terrain wala wala wala kër wala nga yor salaire boo garanti la mm banques yi duñ la lebal. c'est ça te loolu. Euh, du souveraineté financière te lolu du économie bu bo xamné war na souffler. Mm. nit ñi buñ bëggee liggéey dañu wara jot ci xaaliss. c'est extrêmement important. kon est-ce que changement de monnaie bi du nekk un préalable. oui motax may wax né la banque publique permet de rationaliser les secteurs mais c'est une banque publique. Hmm. xam nga De da ko doon wax ci ben discours en 58 euh, en 46 ne l'État doit tenir les leviers de commande dem leen ñen xoolaat discours bobu le monde en France c'est un pays libéral mais <laughs> état bel faut présent. que ça, la privatisation euh, Valéry jusqu'à destin Mokotambali, après les Sarkozy ñëw yaatal mais Mitterrand a fait beaucoup de récupération mais dafa faut lui qui doit détenir le crédit. De Gaulle le tu ci waxoon discours les leviers de commande industrie euh, l'acier l'aluminium l'énergie le charbon bien sûr yooyu dafa waxoon ne état moo ko war a téye léegi le transport moom moo fixé woon cap boobu noonu ñu ko tuddee l' état doit tenir les leviers de commande discours boobu noonu mais état mënul bu yoree banque publique rôle am dootul nekkati comme banque commerciale yi ay banque commerciale yi seen rôle dem lebee ci ay taux yu yomb ci banque centrale yi ak euh, ñëw ñëw ñëw ñëw lebalaat ci taux yu gën a kawe non je pense que s'il y a une banque publique ça permet à ce que l'État ne pas rek sur le crédit mais il y a options stratégiques stratégique immédiate. le secteur privé, dama bëgg booster le secteur privé national. Je veux booster les entreprises nationales parce que je veux le crédit. une banque publique bu am doole boobu. bu vous du nekk privatisation vous avez une pour euh, l'essentiel garantie bu suprême pour bëgg vous te leble bi yow da ngay appliquer ay taux yoo xamante ne. en réalité li ngay bind ak li ngay appliquer du benn. Mhm. te te te dafa métti. mais dafa am donc la banque publique permettra de. CDC dafa am benn interpellation euh, Aliou. non non CDC rek laa ko bëggoon wax mun na jouer rôle bi muy wax. si mun na nekk benn c'est un investisseur de l'État. c'est l'État stratégique qui qui qui mobilise l'épargne. exactement les consignations les amendes ah c'est amende c'est après trésor mais les mmh. consignations parce qu'il y a l'ONRAC mmh. qui a été mis sur pied en 2021 mmh. avoir yi nga xam ne moom dañ ko saisiraale sax dañ koy directement qui euh, euh, kii ONRAC dañ koy euh, directement nu mu tudd CDC les consignations tout ça CDC c'est une innovation du régime libéral de Wade une filiale bancaire vous def li nga qui bir CDC. ay filiale yu am solo c'est hmm. un état stratège. qui investit CDC un ñu a renforcer là. Si, si il y' a Fadilou Keita qui était là qui en a parlé la fois passée que naa ne élargir le mais dafa am len ben interpellation modiné euh, le PM est euh, je vais pas dire contre mais n'est pas pour les jeux de hasard L'avenir de la narbe <laughs> est-ce que est il est contre. non j'ai pas dit il est ne euh, veux pas dire il est contre mais il n'est pas pour. oui nous ne sommes pas pour. Madame sénégalais vous sommes ñun suñ ñun booy ñu génn ci naar bi quoi. ah ak am naar bi dama la bëgg dëkk. léeg-léeg naar bi génne la fa garaaw. <laughs> tey da ngay ñëw naar bi dañoo parce que dafa nekk société nationale boo xamante ne dafa nekk euh, grenier bu am solo wàllu bu muy génnee. <laughs> mais en général dañu ko nekk waxuñu waxuñu dañuy supprimer l'ONAS waxuñu loolu. non non dafa doon wax jeunes yi maanaam effectivement mais damay leeral comme téléspectateur yi quoi. Uh-huh. que bu ngeen bëggee jug ci naar bi maanaam parce que ku liggéeyul souvent am na ñuy liggéey yu koy def mais ñi liggéeyul souvent ñoom ñooy nekk ci naar bi quoi donc loolu lay wax quoi. bu buñ bëggee am xëy lay wax maintenant nag. mënu ma la eh, wax lan lañ ci eh, eh, que xaw man maa ngi liggéey mais maa ngi ci naar bi <laughs> man moom day wax. <laughs> ci naar boobu noonu ñu des fa. parce que gis nga. je dis am na ñoo xam ne ñi ngi ci naar bi mais dañuy topp riir mi. di nëbb nañ wax dëgg ñi ngi ci naar bi. après ñu xool <laughs> foofu laa toogee cest à gis koo xam ne mi ngi ci xam na ne li mu nekk nii baaxul mu nekk ci <laughs> mais da koy nëbbu. soo ci nekkee ne nekk nga ci léegi nag ñu wax ne baaxul d'abord <laughs> sa diine mayu la ko ensuite baaxul parce que mun na la jug mën na la defloo leneen c'est-à-dire il faut que ça soit clair boo tax ma ne la maa ngi liggéey mais maa ngi ci naar bi parce que gis naa ñuy liggéey te ñu ngi ci naar bi d' accord Coro ñëwal ci point boobu après ma ñëw am na ay questions man kay damay génn ci naar bi parce que euh, <laughs> naar boobu noonu hmm. dafa bari ay jeunes yu mu découragé ba euh, émigration clandestine bi ñuy wax bokk na ci lu bari bari loo xam ne naar boobu dafa hmm. découragé booy yi ba ñuy jël euh, gaal gi dem et du naar une information du naar de du naar non du naar ah ni ñu ko tuddee boog Sénégal xam nga maîtriser naa waaw ni ñu ko tuddee boog Sénégal <laughs> naar naar bi la wax <laughs> pour la ñuy nekk ñoom ca kaw mhm. pour communiquer ak sénégalais yi naar bi la ñuy wax mhm. donc foofu nga mën a mën yem ci ñoom ak naar bi mhm. te gis nañu luy indi découragement lu bari bari ci jeunesse bi ba jël euh, gaal yi faatu gi amone ci fan yi regretter bu baax euh, maître euh, euh, c'est un bon communicant ci waxtaan ak jeunesse bi ci ci ci wi mm-hmm. lan nga ni loolu lañu jeunesse bi ci communication ci wax leen leen mm-hmm. jeunesse déjà duñ mais dañ leen di wan dañ parce que quand tu es au pouvoir su au pouvoir tu nekkul mais ñi nga xam ne dañu am gis-gis bu ñu porté ba ba sénégalais yi wóolu gis-gis boobu ñun ñëpp la ñu yor responsable ñu yor responsabilité dañu dañu war a gis nga yam ak ñoom ci respect ci proximité moo tax le président euh, le premier ministre wax un gouvernement de rupture un gouvernement de résultat mais un gouvernement de proximité parce que ki war a wax ak jeunes yi du dox discours yàgg dañ ko fi dégg toog leen ci réew mi réew mi mun ngeen fi tekkee te yow joxoo li tax ñu tekki fi mhm. mais melo ni tax ñom ñu am lu dala seen xel parce que mhm. dañuy gis yow ben opulence ben gabegie ben ben ben ben dund bo xam da ngay supérieur ak ni ngi leen wan mais duñu sentir né yow ak ñom yéen yam donc lu ngi leen di wan la ci ni ngay doxé la d'abord ñaarel bi moy un état qui les implique dans les politiques de développement nit ki même bu amul xey le rôle de l'éduca de de de de la direction de la euh, de l'éducation populaire à la participation citoyenne quelque chose comme ça en tout cas à mon ministère de la jeunesse direction du service civique national le service civique national dafa war a dire. au moins au sénégalais mais mën nga accompagner l'État bi ci ci nangam au moins ñu may l'opportunité opportunité nga une formation donc da nga leen di jox opportunité mais da nga am des désormais ay acteurs de war C'est ce qui restaurer cette confiance moo wax restaurer confiance bu loolu di nga mën a ànd ak yooyu noonu pour liggéey mais moom tragédie bii ñuy def topp Nicaragua Nicaragua moom dañ fa géej. Hmm. dégg naa booy moom ba keroog le 24 mars moom minuit la booy tëj yoonu Nicaragua bi ne jeex na. Hmm, parce que la confiance non elle est là elle xam nañ ne am na beneen am na beneen am na benn confiance bu am benn espoir boo xam ne ñëw na. Hmm. donc espoir boobu il faut il faut nga ñu capitaliser ko.

des fois sax dama laan la meeg ñaata ngay carte nga ne ma par exemple dinaa dugal 5000 man la 5000 boobu foogoon ne boo demee jënd warga ak suukar nga defar sa warga sa suukar bu baax nga génn nga jaay ko est que foogoon ne moo gën carte bi donc c'est des choses yoo xam ne euh, réalité la moo taxoon ñoom ñuy def loolu mais dafa am beneen xeetu ndaw jeunes yoo xam ne nag ñi ngi fi te damay ragal ñu sonal leen parce que mooy ñi nga xam ne dañuy tànn liñ bëgg def xam nga tànn li nga bëgg a def boo nee man damay toog liggéey bi jomb naa ko alors dina métti ci yéen pour ñu mun a éveiller les jeunes wan leen ne métier yi boo ci am baax na da ngay dem par ndànk-ndànk ba ngay attendre ba ngay atteindre fa nga jëm mais bu fekkee dañu toog ñu non lii duñ ko def alors que lii duñ ko def boobu buñ génnoon rek buñ génnoon Sénégal rek mun nañ ko nangu donc yooyu yëpp nag ay ay politique la ba nga xam ne ndaw yi dinañu dinañu éveiller mooy mooy rôle de sensibilisation c'est ça la maa ngi lay wax naan la duñ wax dañ leen di wan mais mm-hmm. en réalité wax day am mais kii wax moy kan kan moy wax oui xam ne jeunes yi amnañ ci mom confiance mhm. proche ne leen identique na ak ñom te gisuñu muy dawal hôtel auto na yalla bal auto bu 120 millions ci ministre donc genre yooyu bu ko sénégalais yi commencé constater gis ben arrogance boy ñoo di loolu du am inshallah parce que équipe bi ñun xam nañ ñan lañ dernière question avant may ñëw ci Issa lool dal moy moy indi moy changer mbir yi il euh, euh, y a eu des questions yu juk modi di ne les secteurs de souveraineté né nañu kagn lay dellu ci wacc ci loxoy sénégalais yi euh, mun nañ ci citer ben modi la gestion de l'eau mhm. la gestion de l'eau wa wa xam nga déjà dañu signé ay contrat de concession ak ay acteurs parce que l'eau, il y a, y a la phase amont, mooy la phase de de de d'exploitation exploiter ndox bi en tout cas génnee ndox bi. extraction exploitation etc. cetera Sénégal moi, ko moi, mooy SONES. parce que avant benn société la won, après dañ koo dañ koo tas. SONES avec deux heures. Mm-hmm. Légui, loolu Sénégal la ko variable bi Sénégal téegul wala volé bi Sénégal téegul moy volé wu distribution bi ak commercialisation bi. Mm-hmm. te moy fournir nit ñi ndox jaay leen ko. te mooy euh, société yi tubaab yi nga xamné ñom lañu defal concession yi je pense que c'est un secteur névralgique l'essentiel moy ñun suñu gëm-gëm ci politique moy la souveraineté. oui la souveraineté. donc lolu aussi secteur yooyu secteur yo xamné le gouvernement ne manquera pas en tout cas de de fixer ses orientations ñi ko dénk nak ñom ñoo ci wax ak. Euh, Sénégalais yi ñoo def hein? waa ñëwal avant Issa di ñëw maam kan boobu waaw ci ndox mi laa doon taxaw parce que bari na ci euh, secteur yi fii ci Sénégal yu baree bare bari rawatina ci Ndakaaru gi foo xam ne tey ubbi robine bëccëg da leen di taw wax ma laa guddi te ay infrastructure moo leen ko xañ bokk na ci BRT bi soo duggee ci secteur yi nga xam ne ci la jaar yëpp Scat Urbam waaw Wakaam Wakaam euh, Parcelles Assainies ah maanaam dañ am ndox duñu am ndox guddi bii scaturban bii fi ma suñu guddi rek ngay ngay ibbi bëccëg duñ ko gis fenn te guddi gi bu ñu ubbee ndox mi est-ce que euh, bi moo ko waral non non scaturban moom yàgg na parce que loolu lañu loolu lañu lay c'est ça est-ce que réellement loolu ko waral soo demee di euh, la ne la secteur yi BRT bi jaar yëpp daanaka problème bii la ñu am de parcelle ba ba bi yëpp Ah, donc le nouveau ministre même su ndox mi génnee tam da gis ndox mi dafay am beneen genre. man dañ laal tiw façon waaw bu ñu bu ñu génnee nga xam ne kon lii. Hmm. kon li ñuy wax moo leen. mën na fondé wu waaw d' accord maam waaw mais xam nga ndox moom bu ñu ko waxee euh, yaakaar naa ne euh, yaa gën na yaatu loolu. am na ndox mi ñuy inondé. Hmm. te ñu soxla ci solution. Hmm. am na tamit ndox mi nga xamante ni mu ngi ci fleuve yi. te ñu war ko indi ci territoire bi mu servir ñu mbay loolu yëpp yaakaar naa de manière globale war nañ ko xool mais xam nga également su may jàngat gouvernement bi eh, équipe bi eh, dañuy wax souvent si wàllu ndaw ndaw ndaw te ñu bëri dañuy jàpp ne ci wàllu emploi xëy na rek la ñuy soxlawee fu ñu taxawoo ndaw ñi ma seetlu ministère bi contrairement ak yeneen post yi nga xamante ni par exemple bu yàggul dara Je Sall dafa resserré éducation nationale pour le ministère de l'enseignement supérieur. Mhm. bi mu un ministère bi dañu dañ ko trois ministères. Mhm. ministère de euh, la formation professionnelle bu Moustapha Sarré mhm. ministère de l'enseignement supérieur Dr Abdourahmane Diouf Yorko. également ministère de l'éducation nationale man sama problème moy euh, formation professionnelle et enseignement supérieur est ce que war nañ ko euh, L'état mort ma wax loolu mooy soo seetloo ñun li yàgg a nekk suñu problème euh, sénégalais de manière générale Moi, que euh, li ñuy ci ay littéraire dafa bari da ngay statistiques nous ñu la par exemple plus de 70% des bacheliers sont des littéraires Nous mhm. bu ñu leen di répartir à l'université da ngay dem dans li ci ëpp ñu euh, envoyé leen à la faculté des lettres et sciences humaines. Mhm. nga avons ne nii day dem ba plus de 20 000 étudiants Nous avons ni li ñuy à part Fatou ay Robou, <laughs> italien <laughs> espagnol. ay russe de sorte que à part la langue la euh, langue bobu, ak mhm. comprendre civilisation de la langue bobu, la langue, xam leneen. donc ma jàppoon ne enseignement supérieur quelque part war na tamit en charge l'enseignement euh, la formation professionnelle est-ce que vous avez dit bon Je wu ma mhm. honnêtement parce que formation professionnelle du après bac cassé, avant bac c'est pas pour rien ni def bac technique muy G et T ñoom ñëpp un bac du bac général bi mhm. Mhm. parce qu'il dépend du ministère de la formation professionnelle nit bu xasee ba def cycle fondamental moy lu ko lu ko jaaree élémentaire ak moy secondaire muy 10 ans ci école Dès yu avancé yëpp ñi ëpp ci ñi jang fofu dañuy dem vers les pierres de formation professionnelle ta amaguñu bac formation professionnelle ça commence avant le bac. mais après le bac moy les CAP les DT BTS DDS etc cetera. moo tax ñun suñ programme ñu wax né dañuy la bac technique dañuy dooleelaat la enseignement technique dañuy dooleelaat la l'apprentissage. surtout nak su féké yow da nga bëgg développer numérique da nga bëgg développer euh, euh, nous euh, donc l'industrie mais ñaata nañ soxla ci ay personnel yu qualifié ay ouvriers ay ouvriers qualifié ay manœuvre ak ay emploi yo xamné soxla wu nit ki jangam sori te lolu avant bac la donc formation professionnelle forcément lié wut ak enseignement supérieur nga xam nit ku am bac la le régime général mm-hmm donc moo tax ñaari du du sama gis-gis. laa wax non comprendre na moo mais dafa gis ñu sen ñu session bi am quoi. comprendre nañ ne mais man lu ma bëgg wax. mooy léegi nag léegi. est-ce que euh, littéraire yooyu nga xamante ne nii ñooy constitué des bacheliers est-ce que ñooñu soxlawuñ une formation professionnelle au lieu que ñuy jàng ay italien ay espagnol ak ay russe. loolu laay pourquoi pourquoi soixante dix pour cent xam nga yow li nga wax mooy l'existant d'abord. waaw il faut régler ce problème. dëgg la mais au-delà de l'existant à partir d'aujourd'hui li est-ce que littéraire a ëpp il faut miser sur l'enseignement scientifique. voilà et su booba ministère comme ni ko Macky Sall hein, enseignement supérieur recherche et innovation su Boba, ñu fexe ba enseignement supérieur mu nekk yëfi élite élite ça ne signifie pas ko am bac doo dem mais ñi ëpp ci ñuy jàng lu ñu soxla mooy le cycle fondamental tabax la en tant que citoyen tabax la ci say gëm-gëm jàngal la calculer jàngal la lire jàngal la bind jàngal la les élémentaires les lay préparer ci gestion après nga am xarañteef am métier à 17 ans 18 ans tu peux travailler tu peux travailler. boo commencé jàng boo commencé jàng. ngay yokk sa liggéey ngay yokk sa jàng. voilà c'est aussi simple ñi dess ñeneen ñooy dem université ñi nek ay avocat ñi nek ay ingénieur. des secteur d'activité ñi nek ay économiste. léegi moy vision pour ban bi ëpp solo. nak nga yaakaaree ne mom lañu ko mëna tourner manam au lieu de ñu am. 70 pour de voilà de littéraire. ñu am 70 ño cent ni peut-être. ay scientifique ah, la laaj ko laaj ko ministre yi ñu ko falal après <laughs> après te il le il le dit il le feront et il le diront. aywa euh, euh maître dafa am ben patch bu am solo il y a une de direction générale qui mm-hmm. exécution politique Vous y a engagement que direction en tout cas appel à candidature ngeen privilégié. Mm-hmm. quand on connaît la euh, procédure appel à candidature mm-hmm. est-ce que nous le temps trop quand on connaît les priorités aussi ak que euh, nga vous mi ngi vous déroger engagement boobu programme appel à candidature euh, da ngeen tout simplement maintenir ñi nga xamante ni ñooy directeurs généraux yi fi nekk en attendant ngeen ngeen ngeen ci procédure boobu di appel à candidature pour mun leen remplacer. bon modalité d'application yi c'est le chef de l'administration sous la direction du président de la République qui le fera le président premier ministre ñoom ñoo xam naka la exécuter mbir yi man je suis un acteur politique dans le parti bind nañ ci projet bi ne yenn direction yi appel à candidature mais au-delà des directions l'administration en général la fonction publique nous méthode yi ni privilégier davantage appel à candidature à concours pour pouvoir les postes nga que une culture mérite les dons. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme nous mais nous avons appliqué la phase transitoire comment on l'a fait nous avons dit que nous ci il ne faut pas oublier que le ministre de la fonction publique est un inspecteur du trésor. Qui ah. ah, ah, après Issa on tourne. Il y a une question. C'est le PM ou les autres ministres qui seront habilités à y répondre. bi tey na indi PM mu toog fii. mu tëjee ko salon d'honneur bi ma bi ma koy concerné mooy euh, ñu euh, euh, modifier statut greffier en 2011 yow en tant que greffier. Euh, lan nga gis ne war nañ ko seen di ci ay coppite les choses yu ñu war a changer. waaw li ëpp ci li greffier yi di di joytu te ñu nekk ay travailleurs yu exceptionnels dans la justice c'est le moment ma rendre leen hommage ci seen taxawaay ci liggéey bi ñuy def ci justice ci noppi te kenn du leen xam te souvent nit ñi bu ñu wax ci acteur justice yi fàtte leen te ñu am compétence bi am taxawaay bi am probité bi budul ñom la justice mënut fonctionner mais rendre leen hommage ci sen taxway bi ñu ma arrêté wé ñu faire preuve d'une solidarité professionnelle Nous xamné nous man daf ma mujj sax ba risquer risquer tout lolu daf ma marqué euh, greffe nak li ëpp ci li joytu am ko ci ay acquis sur le plan statutaire et légal fonction publique bi fi nek ñiko ko jiite ñoo bañoon duñ ko appliquer li am solo moy am nañu gouvernement bu bess am na ñu ñu dénk secteur yoyu syndicats yi rôle il y a deux syndicats dans la justice il y a une amicale des greffiers du Sénégal donc li ki sen rôle dinañ ko def gouvernement bi dina def preuve d'ouverture ñu fexé li nga xamné ne moom lañ war régler lu jëm ci ñaari hiérarchie yi am ci corps bi parce que man may man bokk na man si promotion promotion, bi ñëk recruter sur la base de la licence nga xamné après formation de deux ans au CFJ on est sorti avec bac plus 5 niveau master nekk RH A2 man fof la bokk te amna na yeneen ñaari promo yu ñëw après man alors que ñi ñi jitu ñom ñoo xex ba ak yi am mais basculement bi pour ñom ñu profiter ki lool ba légui amagul loolu c'est un problème te loolu taxi mi ngi fi mais juste appliquer ko la mm. li jëm ci li ñi lacc ci payor ci ay prime yo xam li des moy euh, insérer ko te fexé ba mu ba mu ba mu ba mu ba ba régulariser ko loolu aussi mi ngi fi organisation concours yi loolu c'est des ay ay ay ay ay revendications la yoo xam li ci ëpp volonté politique rek la donc li ma ci munti dire, wax mooy gëm gouvernement bi dina ci def lépp lu mu mën pour améliorer conditions de travail d'autant plus que le premier acte posé par le en tout cas annoncé par le président de la République mooy les assises de la justice te profession yëpp nañu impliqué donc assise yoyu, c'est un moment important pour que greffe Je l'ai lancé appel greffe wax ben au nom si ben baat waxuma nak baat yi mais mu am unité ci li ñuy waxee te à chaque fois yu nek ci mois important lolu greffe da koy def hmm. donc su boobaa suñuy doléance ci justice li jëm ci ñun travailleurs de la justice parce que greffe bi du greffier yi Il y a les secrétaires de greffe et de parquet y a y a d'autres agents il y a les interprètes judiciaires donc greffe bi ñu jox ko cëram ci justice mais mbir mi nekkatul nekkul sax greffier boo xam ne day wax moom ñi améliorer ay conditions ak cëram ci justice mais au-delà de ça euh, lan mooy rôle greffier dans la justice ak ban gis-gis la am dans l'administration judiciaire parce que xam nañu justice mhm. muy cabinet d'instruction yi muy pôle flagrant délit yi muy grande correctionnel, yi muy chambre criminelle yi bu bu cour d'appel yi bu greffier amul muy cour suprême en réalité liggéey du am. Mhm. donc nous avons un rôle prépondérant. Ah. j'ai l'habitude de le dire et je le répète. le pouvoir judiciaire greffier dañ ci am rôle bu am solo bu ñuy jouer. donc cër bobu nonu dañu ko wara a du lu sax réclamer dañu dañu koy assumer and ceeg yeneen acteurs yi nga xam ne sans ñoom liggéey mënul dox. Mhm. muy magistrat yi ak yeneen acteurs de la justice. d'accord ñu nekkoon au pouvoir dañu jàpp ne da ngeen amoon une opposition féroce envers eux.

nangul nit ñi seen gis-gis bu wuté ñu exprimer wu librement dans le respect des lois et règlements. donc lolu problème du am. j'aime bien li nga mujjé wax dans le respect des lois et règlements. lolu mu su gën intéressé. <laughs> d'accord isa Issa euh, parce que dañoo bëgg emprunter ak mom le chemin de l'exil. exil. Mhm. ndax xam naa ne na ay téléspectateurs yo xamna tay bi ñu né leen maître Ngagne Demba Touré lañ invité lolu lañ doon xaar. Mhm. ñu euh muy le 10 août bu ma juumul ñu gis maître Ngagne Demba Touré ci benn gal mu sol benn yére euh, je pense que su ma xëy na fleuve Sénégal la après mu daal di bind benn texte wax ci que ni dem na Mali euh, dañoo bëgg nga retracer ñu déjà la cause parce que wax nga que ni dañ la doon euh, maanaam dañ doon persécuter nit ñi est-ce que doyoon na pour mettre nga jëmbaturee jël yoonu exil bi ak exil bi ci yenn dëkk ak yenn dëkk nga jot a dem parce que benn instant gis nañ la fu mel ni Mali mais aussi maa ngi doon gisaat yeneen dëkk dafa mel ni wa merci ci question bi parce que sénégalais yu bëri doon nañ ñu ci laaj lu bëri mhm. te laaj nañu leeralaat leen ko parce que dama am lu ma gëm ci politique mooy choix walla option bu jotee nga def ko da koy def mais soo ko defee da nga koy assumer soo ko assumer ba pare nga leeral sénégalais li nga def foo ko teg exil li ñu xam ci histoire la mais ci mœurs politique contemporain yi sénégalais yi miinuñu ko mhm. mais jàpp naa ni amna ay jëf yi am ci politique au Sénégal ci at yi weesu nguur di ko teg opposition loo xam sénégalais yi gëjoon nañ ko dégg je donne un exemple dissolution d'un parti politique donc loolu dalay dalay fixel rek ban environnement nañu nekkoon que c'était des extrémités exil dafa am cause comme tu as dit parce que dama nekkoon ci parti politique d'abord je suis un fonctionnaire boo xam ne mënoon naa def politique nekk ci jàmm di ko sama salaire ne li may jëriñ sama réew naa ko def ci su ma xëyee sama bureau huit ba di secteur te kenn du ma xas lu dëgg te mën a am lu nekk ci fonction publique parce que lépp compétence lay laaj ak nangoo góorgóorlu deuxième bi mooy mënoon naa nekk fonctionnaire di def politique te du ma ko fësal c'est un choix te bëri na mais j'ai choisi fësal ko troisièmement dama nekk fonctionnaire di def politique ci secteur boo xam secteur bu sensible la justice nga xam ne actes yi posent contre suñu parti daf may impliqué directement nga xam ne actes yi ñu koy posé man dama leen personnellement muy juge d'instruction yi doon jël yenn actes yi ak yenn juge yi doon atte ma xam leen liggéey ak ñoom ñenn ñi ci bëri ñeenteel bi mooy ci parti politique boobu je suis secrétaire général d'une section communale qui est Grand Yoff mais je suis membre de la autorité de régulation du parti depuis octobre 2022 ce qui est une haute instance du parti Je suis yam confortable mais nous sommes responsables nationaux responsable national des jeunes le contexte bo xam ne buñ la ko defee cible régime bi ngay doon ma ko quatrième mois loolu su amé poste de responsabilité bi jël en connaissance de cause le 5 juillet 2023 Nous avons ci deux semaines ma entamé une tournée dix jours qu'on m'entame entamé une tournée tournée boobu noonu laay wax sénégalais yi ne ci lu régime notamment le ministère de l'intérieur parce que en 4 jours mardi mercredi jeudi vendredi nous avons 9 départements du Sénégal les 5 départements de la région de Dakar le département de Mbour et de Tivaouane la région de Thiès département de et le département de Bac. kuy suivre politique politiques nga ne au au Sénégal qui koy zone de mm-hmm. et que pour mobiliser jeunesse pour que nous puissions participer pour nous jouer son rôle la mobilisation bi nga bëgg zone un rôle à jouer Et dama assumer ce ma je damay def point de presse la presse locale bi ma je damay wax dit jouer jouer responsabilité de protéger candidature du président Ousmane Sonko ñi ma ànd ak sama bureau exécutif national parce que du man maa ko def man kese loolu bi mu amee si nañu nekk ci cible régime cinq jours plus tard vendredi 28 juillet nañu arrêté le président Ousmane Sonko bi ñu ko arrêté wee dama jàppoon ne dafa am benn obstacle bu parti bi Ousmane Sonko mbiram da ko doon jëlal boppam en c'est-à-dire bu ñuy jëm ci échéance bu ñu ko waree àtte wala ñu fixer benn procès wala ñu jël benn acte contre moom moom mooy def live Facebook wala def déclaration wala point de presse wax ak sénégalais yi directement expliquer enjeu yi mobiliser troupe yi bu ñu jàppee président Ousmane Sonko il fallait que mu am ñoo xam ne li mu doon def buñ ko mënta def ci niveau bi mu toll moom parce que tolloowuñ dayo mais mu am kuy communiquer ak nit ñi. moo waraloon ngeen gis pendant une semaine boo xam ne de façon répétitive dama yenu woon taxaw di communiquer ak sénégalais yi directement loolu moo indi exil loolu moy une exil. avant da nga jot menace parce que manam dama bëgg wax ne bañu jappé Ousmane Sonko. Mhm. suma ma sama bir ronlal exil du am du dëgg. Mhm. bu ma nekkoon fonctionnaire bu dul def politique wala may def politique di ko ce que je respecte nak wala ñu bëgg ma jox responsable des jeunes ci contexte boo xam ne bu dee renommé am naa ko ci politique bu dee base am naa ko ci politique bu dee responsable national bu mag am naa ko ci politique kon responsable des jeunes amul apport bu mu lay indi lu dul ay risques après les événements de juin. ak li Macky Sall bi mu discours de 2 ou 3 juillet ba ne bokkatul bi mu wanee ne ñun la jëm. donc lolu mo indi exil moy japp nañu président Ousmane Sonko ma jël décision nak fofu lay duggee sur le détail des faits. ben post la def sans page Facebook. je naa ko répéter dama à la jeunesse le contexte est favorable Macky Sall n'est plus au contrôle la liberté de proche du président Ousmane Sonko ne dépend que de notre détermination Lila Je bind ma dugg di julligee ñëw fait ñaari appel ak benn message bu ma bind ne commissaire tel de la DIC Je daal di ko merci de me rappeler ma daal di ko vous êtes convoqué demain dimanche à la DIC donc ma toog réfléchir ci waxtaan ceeg ñenn ci ay nit ma jël décision ne d'abord la convocation respecté la prescription légale parce que je suis régulièrement domicilié fonctionnaire là ñu Nous ma affecté Matam ñaarel bi que xam nañ fi ma parce que yor nañ sama dossier nous indi wuñ ma une convocation m'a établi ñu tok di ma par téléphone. y'a Matam.

mané ñun mënuñ leen yombal ñi comme nit ñi parce que japp bi nak du ay japp parce que dañuy toutes les personnes qui sont susceptibles de mobiliser les gens. Mhm. donc dañu bëggoon décimer parti bi. une entreprise de décimer parti carrément li mënuma ci déféré. Le mhm. président Ousmane Sonko joxe signal bi mars 2021 wol nañ ko fi mu japp ne jaarul procédure mu ne demut. Mhm. juin prochain ak ndaw sos doon ko jiiñ loolu bi mu bi ko bi ko waré àtte ñewul won té organiser nañ ñu bañ ko jàpp en se trouvant si lieu bo xamné du foofu moy lieu de résidence habituelle moy mooy Ziguinchor du won lieu de résidence habituelle mais parce que contexte bobu du adversaire mo wara déterminer dama ko bëgg a rek dama koy jàpp donc mané kon duma wuy ji le lendemain mo may wo donc wuy ji mo won et nak après nak la fexé nak ba semaine bobu xamna né décisif na parce que lundi bi nañu waroon a inculper président Ousmane Sonko on était sûr que dañ koy place sous mandat de dépôt amon nañ ay information que parti bi dañ koy dissoudre yegna un soit transmis du parquet que suma ñëwé dañ may japp déployé nañ aussi unité bu am doole wala contingent bu am doole bu mo wër fi ma nekk mais yegna lolu avant ñi ñëw nekkaatuma fi ma nekk fenen donc lolu bi mu amee semaine bobu nonou ma continuer di communiquer ak sénégalais moy comme semaine bobu di mobiliser jeunesse bi à travers l'opération ville morte wax ak jeunes yi pour ñu génn lundi bi ñen ñi génn nañ mardi bi mu xawa a faiblir ma lancer opération fess fep mercredi jeudi mais téw ñi ñi génn wuñ ma lancer vendredi vendredi de libération nationale li may wax dama ko publier sama page parce que jàpp naa ne légal na dëkk yëpp am na fa ay manifestation la mhm. voilà droit la constitutionnel la mais ñom ñoy interdire toutes les manifestations vendredi bobu aussi amna ñu génn ñu bari ñu jàpp leen ci. ba semaine bobu Il yéen a ngi fàttaliku dimanche boobu la wax président Ousmane Sonko suma ma jumu dañ ne dugg na comment. Mm-hmm. wala mi ngi euh, am na nu koy tuddee réanimation. Mm-hmm. dimanche boobu nag laa def laa toog di réfléchir ma ni lii mënut bien que j'étais en congé en tant que fonctionnaire. ok loolu début août la non loolu fin juillet la mais ba 15 septembre je devais être en congé. Mm-hmm donc ma période bii en tant que fonctionnaire je suis en congé. Hmm. donc est-ce que demain on a organiser ñu jàpp ma donc il faut que ma kii toog ci dëkk bi di làqatu amul durabilité amul viabilité. Hmm. kon da nga koo mujjee rëccu sa exil. non déglu ma rëccu. bàyyi ko ma ñëw bàyyi bu ma ñëw rek. naa la wax exil bi lan la jëriñ. Hmm. parce que maa ngi ci contexte bi ak cause yi. pourquoi bi ma bi ma bi ma xalaatee laa ne moment bi moment wu fexe ba ñoom duñ jot ci man la au prix de ma carrière parce que ni dee gënuma leen carrière mooy lan donc c'est la décision d'autant plus que j'ai ngi congé aussi ma daal di ne damay et le choix a été fait sur un pays voisin, pays voisin la ñaareel bi sama passeport presque expiré expiré dans quelques mois donc mënuma dem ci dëkk tubaab yi et puis mënoo jaar ci aéroport je me disais que aussi le choix devait être porté sur un pays qui xam ne amul risque de ñu lay extrader parce que option politique est en jël Sénégal mm-hmm. sur le plan diplomatique c'est pourquoi j'ai opté pour le Mali bien choisi voilà légui yone bi Nous lu meuna wax moy sans mm-hmm. précision yu détaillée je suis passé par voie terrestre euh, jaar ci voie terrestre. parce que c'est une méthode de contournement la fi nga jëm jëm directement euh, ba yegg fa si sante yalla ci 4 jours yo xamné ne même vous avez fait jours en route oui parce que comme li ma wax détournement yi contournement namai euh, te contournement aussi jël auto mhm. donc amna moment yo xamné ci all bi ngay nekk charrette pendant cinq heures de temps ci donc euh, avec tous les risques pone bi jékki euh, bi photo nit photo mhm. donc am moment tricycle tricycle ils nit ñi di def bagage yi. Mhm. am moment yo xamné ay mini car la am moment yo xamné ay jakarta ñolay déplacer mais dal ba fi ngay yegg. Mhm. Euh, benen bi moy li metti won ci exil bi moy incertitude y avait quatre inconnus wala bok quatre conséquences yi ci ñew première bi moy je suis parti avec 300 000 dans ma poche donc il y a une conséquence sociale qui sera là lan mo lay dundal fi nga nek mhm. loolu moy benn deuxième bi moy une conséquence familiale moy mm-hmm. sa njaboot bi nga fi bàyyi mm-hmm. amna naa soxna amna dom doom mm-hmm. ñetteelu conséquence bi une conséquence professionnelle moy sa liggéey bo deful nank dang nga koy perte j'étais quasi sûr que loolu lay démé mais na na ñëw après ñeenteel bi moy conséquence politique moy limay wax est-ce que nit ñi dañ ko comprendre comme ni mako ko mais foofu ma ci won parce que dama ne après l'avenir moy vais édifié mais dama ci dem ak gëm yalla bima yeggé si ma rapproché des autorités maliennes euh, dem fi avec wax CNCR commission nationale chargée des réfugiés qui dépend du ministère de l'Administration territoriale ñom et de la décentralisation donc ñom ñu avons ma kayit bi ma permettre ma mën établir foofu espace CEDEAO établir mais en tant que exilé politique. Il mais foofu sax laay bëgg parce que quelque part nous créer une incidence diplomatique entre Sénégal ak Mali. Nous mhm. ne un opposant de Macky Sall bien traité au Mali xalaatoo woon. que... loolu dama éviter. parce que régime politique là amoon ak jafé jafé mais du Sénégal là am ak jafé jafé motax tax nanguwuma affiche ak ay autorités maliennes. Il y lañ ma jël ci panel scientifique sur la mm. constitution malienne fek ñima tok ñima tok ak na ci ay ay officiers de l'armée malienne wala en tout cas ay militaires baña catégoriser officiers wala mais nous dama ko doon éviter Nous musuma mosuma ak autorités tout ça et puis ñom aussi ils ont veillé à ça mm. donc dama fa dem parce que ñom une loi bo xamné 98 la mais y a la convention de Genève de 51 do xamné mayna aduna bi kuñu ñu gund xataal ci sa dëkk pour des raisons politiques d'ailleurs ethniques ou religieuses nga nga nga dem donc ñom si am nañ loi 98 bo xamné permettre na nit établir fofu non en tant que réfugié politique donc ils m'ont permis de de de de m'établir. bi ma fa défé nak mm-hmm. quelques jours. Mm-hmm. la jël décision yëgal ko Sénégalais fofu lay waxé né aussi benen tournure la mënoon naa dem rek ñi ñi di ko gis may communiquer ak ñu xam ne nekkuma bi tax wax ne exilé wu naa ñun début bi xamu ñu fo nek dañoo gis rek dañuy gis non non bi may njëkk bind ne exilé wu naa Mali ah, boobu lay doog def sortie ci ne ñëw Mali mhm. parce que acteur politique lo def dang koy assumer vidéo yi ma doon def yoyep avant Sénégal la nekkon mhm. acteur politique dama gëm ne loy def dang koy assumer da ngay wax ne li la def motiver texte bi ne li motax ma exilé wu trois jours plus tard ma def émission et je dama ci léral lan moo tax exilé wu légui exil bi ku koy bañ dang kay par rapport à sa pertinence par rapport à son opportunité ou par rapport à l'histoire histoire laay tàmbalee képp ku ne waruma exilé wu acte de lâcheté comme juge ñu ne da nga daw. waaw kay wala daw ñi ñuy. léegi nel nel c'est vrai que juge bi loolu la la wax. waaw non da koo bind ci mandat d'arrêt dinaa ci ñëw. ok yonent yi ñu si exilé wu bëri nañ surtout yonent bu tedd bi. ay saxaabam ñooñu dañoo agir sax ci yàlla moo leen jox ndigal. Oh. ayatollah ni Iran exemple la. général de exemple la. fii ci Sénégal Omar Blondin Diop exemple la. Mhm. Majmoul Diop exemple la. al Ndiaye exemple Maroc euh, euh, euh, Algérie Mohamed Boudiaf Boumoudi dirige Algérie exilé pendant plus de 28 ans entre 64 et 1991, 91 après il a été assassiné. oui hein. en tant que président de la République parce que réforme de l'armée armée bi tout ça Comme l'histoire histoire Algérie Mohamed Boudiaf doit exilé Elle, exil El ah, exilé où? Londres. Mhm te exil exilam boobu mo permet stratégiquement ba ba Italie dominé won na leen mais mu leen note kon exil mom ku koy jël réduire ci né exil baaxut moy xamuloo histoire lolou moy par rapport à l'histoire légui nak histoire kasse doy da ngay nan contexte bi ñu nekkoon est-ce que pertinent na ma exilé wu foofu man duma ma tontu jëf yi ñëw après exil moy tontu est-ce que pertinent won na ma exilé wu xam nga lutax bima exilé woo permettre à travers la JPS ak frappe bi ma donne ak ci ñu sur pied plateforme chemin de la libération organiser visite chez toutes les familles des détenus politiques presque toutes leurs. mettre sur pied le collectif des familles des détenus politiques en tout cas nous avons impulsé te visite dans presque tous les départements def contact avec ak famille defal len def ay lettres ouvertes ministère de l'intérieur ak UMS organiser ay manifestation, yoo xam dañ koo interdire permettre nañu ba ñu tollee ci bataayu candidature président Ousmane Sonko la candidature de ñu naan képp ku bokk Pastef du nekk candidat ñun ñu téye la bataille juridique dans les réseaux sociaux sénégalais Nous doon nañu suivre permettre nañu ba ñu tollee ci parrainage la commission bi gère le parrainage du parti bi amuñu woon personnel en tout cas de confiance bu ñu bu ñu bëgg liggéey ak JPS bi ma jiite def appel à candidature pour fournir du personnel suffisant ñooñu def saisie bi maa leen rendre hommage tey bu bu candidature amee parce que ñooñu noo ko def liggéey nañ ci en tout cas ak ñeneen SNIT ak SENOP bu parti bi. loolu permettre nañu ci parrainage ñu lancer projet dix mille jeunes pour un million de parrain si on est dëkk bi jeunes yëpp ut parrainage ba parrainage Bassirou Diomaye Faye doy ak yeneen entité wu parti bi nag. Du parrainage du 16 décembre 2023 au 28 janvier 2024 nous avons lancé la grande offensive fatt Nous avons les militants de militante Médina ba placé sous mandat de dépôt en 45 jours ñu déroulé dans 81 communes et dans 23 départements du Sénégal pendant 7 week-ends d'affilée avons sensibilisé les sénégalais à l'élection et retirer carte électorale. dans la sobriété di communiquer dans les réseaux sociaux page Facebook loolu bu ñu exilé wul woon du ko mën bi ñu tollee ci dajale xaalis pour la campagne la campagne boobu permettre de ñu gagné bi ñu nee def leen levée de fonds exil boobu moo ñu permettre ñun waa JPS ma jiite ko ñu dajale 10 millions exil boobu moo ñu permettre bi Macky Sall xëyee le 3 février à 10 heures du début officiel de la campagne électorale ne dafa reporter élection yi pendant 5 jours nit ñi gis nañ ñan ñoo doon porter xeex bi dans les réseaux sociaux et dans la communication avec les Sénégalais ak ay live yu viral pour faire ñu faire contre le report te tay élection yi amna le 24 mars Le ci def dans la coordination du ma ko wax loolu nak lutax que ma parce que j'ai tout consigné j'ai fait mon bilan de l'exil vous savez pourquoi mm-hmm. parce que génération yi di là, ñun luñu ci politique pour pour suñu réew ñom dañ ko wara xam te man dama bok ci sénégalais yo xam dañu wara xam lan la pour yéemu ma ci sam bopp nag mais xeebu ma ci sama bopp deuxième bi mooy dama koy def parce que sama njaboot dama leen fi bàyyi génn ëllëg dañuy màgg ñu xam seen papa la moo taxoon mu génn bàyyi leen fi man dama gëm contact boobu ak samay sama doom dama leen gëm man dama leen bëgg ñetteel bi mooy dañu nekk ci politique àdduna dafa gudd tànk ay nit mun nañ taxaw pour fa pour pour pour fànk jëf lu mm-hmm. dëgg ci ci boor yëpp nag ci boor yëpp loolu moo tax li taxoon ma def ma bindoon ko ci page Facebook soo delloo lépp lu ma def